dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw mbokk yi ci barkeb Sidi Hadj Malick ñu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci télévision future du euh, télévision <laughs> future du damay boole bëgg wax une heure du matin ak future média mais bon euh, ñu ngi leen di euh, ndokkeelaat ci cofeel gi ngeen am ci suñu ay programme tàmbalee ñu waxtaan wi nag ñu ngi ci waaj a dugg léegi xanaa fàttaliwaat leen rek ni ñu ngi leen di xaar yore nañu fi seen ay yóbbante ay ndimbal yoo xamante ni yéen la ñu ko jagleel tout au long de cette soirée pour éviter saturation bi am na numéro yoo xam ne ni moom mën na ma leen ko digal bu ko defee ngeen woote ci euh, léegi jot ñu jox leen ay enveloppe yoo xamante ni bu ci nekk def na ñaar fukki junni euh, plus ay panier yoo xam ne bu ci nekk def na ay dundu ceeb diwlin euh, soble ak loo xamante ni mën na leen a soxal pour un mois yooyee ay la yoo xamante ni télévision Futur Média daf leen koy jagleel ci période bi la nga xam ni période du jàppal ma jàpp la donc 88 628 72 86 88 628 65 65 ak 88 628 99 80 wala 88. 628 628 euh, 76 76 donc bu amee ku nekk ci ligne bi léegi ñu euh, jël ko euh, bu ko defee ñu mën ko euh, jox ndimbalam teg ci ñeneen laataa ñuy tàmbali waxtaan wi ci guddi gi nga xam ni guddi Sidi Hadj la ci télévision Futur Média allo. waaw. kooku. allo Fatou waaw da ngay sonal sa gémmiñ ak téléphone bi ñu mën a déggante bu baax. waaw. nga ni noo tudd. Jibi Sall Jibi Sall. ah fooy wootee. yaa ngi wootee Grand Mbao très bien Jibi Sall naka waa Grand Mbao. waaw Cité Cité Ndeye kay Cité Ndeye Marie sunu koñ la koñu maire Touré la euh, du ma la téye lu yàgg mbaa yéen a ngi moytu rek di yokku set gi euh, di protéger mag ñi ak xale yi ci kër gi ci mbas mi. bu baax ngi takk masque yi. waaw ñu ngi tànn match waaw. yéen a ngi dandante parce que dégg naa léegi ay toog caay ak nog yooyu xewatul de kenn du toog ci biir kër gi di nog. Ah, très bien parce que affaire bi kenn xamatul ku ko am ay cas communautaire yu bëri lañu am léegi. du ma la téye lu yàgg dama lay teel a libéré loo bëgg ma jox la enveloppe. wala dund bi carrément. ah bëgg eh, eh, léegi. léegi ah. léegi. da ciy tànn benn. <laughs> am na sa nawle yu nekk ci ginnaaw sóor leen ñoom it dañoo soxla ci lii ñuy joxe. dëgg la moo gën a rafet gis nga euh, kii euh, Ablaye nga tudd. Jibi Jibi Sall. Jibi Sall. damaa biime Jibi léegi quartier général may na la cent mille moo la gënal ñaar fukki junni moo la gënal. waaw bëgg naa cent mille bëgg naa pañe ndogu tamit. bàyyi ma jox la cent mille yéen jaafuwaay ngeen dañ leen jox cent ngeen kott ko <laughs> jël suukaru koor bi dem jox ko seen <laughs> yaayu gel yi du ngeen ko jox seen yaay xam naa leen dama leen miin jaafuwaay waa fis <laughs> bëggee sama yaay sama mère bi laa koy jox quoi après yow woo xale bi waaye gaayaan man di démb ci tele bi am naa fa ab pañe waaye jox ko mère bi quoi voilà donc bàyyi ma jox la ñaar fukk rek ah d'accord jaajëf yaa moom ne quitte pas comme ça ñu euh, teel a jël sa euh, adresse nga mën a jot ci cent mille yi ay ca très rapidement bu amee keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu euh, jël ko teral ko maa ngi ji yaa oustaz waa daayira Seydi Aj Malick bu New York ñoom ñëpp ñu ngi réagir ñoom ñu ngi leen di ñaanal bu baax alo allo. Ajaratu Mbiru Sarr neex a kooku. kookan la dégguma la bu baax allo waaw xam naa wooteem ndaa sori wala mu war saturé rek euh, moo tax ma proposé leen ay numéro téléphone yoo xamante ni maa gëstu ba xam ne numéro yi baax na waaw du lu ma waroon wax sax waaye jaral ngeen ma ko ndax ñëpp bëgg ci ndimbali ñuy séddale 88 628 22 22 yaa Fatou mu ngi Thiès yaayu jamilaa Kan maami Mouhamed ma yaay la moom dafa càng dafa càng Sénégal xam nga ñi euh, euh, jóge woon Sénégal dem càng bitim réew actuellement dañoo bëri mais bëri na itam ci ay nit yoo xamante ni dañoo jóge woon bitim réew ñëwoon vacances doon waaj a ñibbi mais malheureusement dañoo càng fii te seen billet yi perte nañ ko dañ daan liggéey di yónnee fii Sénégal neexula lijjantee dara euh, je pense à suma benn yaay tata Ndeye nekkoon Italie daan ñu dimbale ñun ñëpp mais mu ngi toog bloqué Dakar c'est c'est c'est li am ci période bi. ñoo xam ne sax xam ne ah maa ngi gis keroog dafa mel ni kenn ku bind benn billet. kese rek aller simple près d'un million. ci billet boo xamante ne xañ na 300000 la woon man am naa sama benn frère bu fi ñëwoon boo xamante ne waroon na bu yàgg sax mais chaque fois mi ngi doon wootee diggante Air France di jaabante ba sonn laataa muy dem sonn ne te cas mel noonu bëri fi torop torop corona daal li mu li mu yàq daal mi ngi noonu njëgu pàkk la nga jënd ko billet pour dellu uniquement te boo demee est-ce que di nga reprendre sa liggéey déedéet da ngay toog 15 jours parce que ki may wax dafa ah, dem toog 15 jours 40 da ngay ci sa boobu demee da toog 15 jours balaa nga xamante ni moom lañ permettre pour le moment ñu xaalis ba jox sa waa kër ñu dund. c'est ah, compliqué. yàlla baax na yàlla baax na xam naa balaa affaire yi jeex dinañu maye ay billets d'avion rek. Mm, mm, mm. waaw loolu loolu sas naa la ko euh, Pape Cissé ak waa service à valeur ajoutée bu groupe Futur Média comme ñu ngi euh, jàpp ci euh, combat bi di joxe ay enveloppe mën nañu dimbali quelques sénégalais yu fi can quand même mais confirmé wu ko xam naa peut-être dinañu ko négocier ci ginnaaw ñoom Alice Newman jóge Canada can Sénégal des billets ay billets yoo xamante ni c'est c'est à des coups de millions. c'est cher dëkk Sénégal mu faj soxlaam dem fu ñu jëm dëgg la de jël beneen téléspectateur allo allo kooku man la Amadou Ndoye Amadou Ndoye na def soo alhamdulilah très yow ku dal nga fay wootee may wootee Tëngéej Tëngéej fan Tëngéej jokkul yaa ngi jokkul kaw wala suuf jokkul waat <laughs> <laughs> très bien mbaa yéen a ngi moytu euh, di protéger seen bopp ci mbas mi. waaw ngi moytu bu baax baax. yéen a ngi moytu bu baax. baax waaw kay kon ñu dimbali la loo bëgg ñu jox la xaalis bi wala dund bi. Ah, ñu jox la xaalis bi. waaw. jeena kon am nga ñaar fukki junni yu ñu la dimbalee ci guddi gi tey. jërëjëf. voilà mu ngoog merci euh, El Hadj Man Garmi ñu ngi euh, jëm nag ci ki nga xame ni. Euh, bëri woon lool ay muqadam. ñu ràññee ci Serigne Ndiaye Buna bu na Albouri qui faisait partie des muqadam de Mame Sidi Hadj Malick. ñu am mbégte lool. Hmm. nar tàmbali guddi gu exceptionnel El Hadj. xanaa rek Baye Cheikh di la wax ni sànq bi ñu tàbbee ci yëf yi. sunu waa kër baay bu baax di Alaaji Basiru Diagne grand sëñ de Dakar moom itamit digganteem ak Seydi Boubacar ak Seydi Hadj Malick àddina yëpp xam na ko ñoom itamit tubaarkàlla nee nañu ñoom ñëpp lu nu jàppoon bàyyi nañ ko di wax ne tamit xam nga ne ñàkk nañ bu yàggul Alaaji Maas Mbeng moom itamit bu waxtu ma masaana jot Tiwaawan rek moo ko ñor di wax ne tamit Baye Cheikh maa ngi lay wax ni sa xarit sa soppe Maxtaar Jaw surtout Njaay Saar borom kade ba ca Ndar moom itamit kenn mënu tudd Tiwaawan te sa xel tam du tàbbi ci moom di wax am na sunu benn jigéen bu baax bu naan Naar Sow madame Cissé mi nga xam ne moom meññ Alaaji Maodo Cissé moom itamit nee na bég na loolu kontaan na Baye Cheikh jëm day àddina wax naa la ko léegi ne al sëñ Bay Si Mansour dafa wax rekk ñaari baat xam-xam nit ki dana ko jàngi xam-xaw mu riir wuti Maodo. kon loolu mbir sunu borom la. kii tey nuy bëgg a waxtaane di sang bu tedd boobu nga xam ne nii mooy Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu soo ko masaan a gis soo ko xoolee rek dangay xam ni kii leer kese la. leer nag mooy jur ay leer. leer mooy am ay leer. looloo waral ne sëtam yii nga xam ne tubarkalla ñooy meññeef te ni ci réew mi. soo leen xoolee ci seen yiw ci seen yar ci seen teggin ah. bu nu yemee rek ci sëñ Maodo si mu Alaaji Abdu doy na bu nu yemee rek ci Pape Malick si mi nga xam ne tubarkalla mooy porte parole doy na waaye Baye Cheikh maa ngi def daal ci daal ci kii nu bëgg a tabbi leer la ci àdduna bi yëpp waaye nag leer la nag tubarkalla ci senegal gii nu nekk nga xam ne tubarkalla na taaliba Cheikh yoo xam ne seen xool boo ko xaree doo fekk dara Maodo rek nga cay xam naa Mamadou Mansour tey war na kontaan de. wallaahi Mbaye. président tous les communicateurs traditionnels bi nga xam ne ni moom nag moom la moom la ñu moom la ñu duppee ma dëgg-dëgg euh, euh, sangam bu tedd ba. Hmm. dëgg-dëgg muy muy sëñ Mansour si borom tampon ba. Hmm. kon daal fii nu jëm. addina yëpp ñu ngi taataan ak di déglu li nga daal li nga xam ne moom la ñu mën a barkeelu ci góor gu sedd googu euh, góor gu sell googu Baye Cheikh macha allah kon ñu dem ci beneen studio bi tàmbali waxtaan bi oustaz Assane Seck euh, euh, ma nga fa oustaz Pape Anne guddi gi Sénégal yëpp di ko xaar at bu jot dafa dem ba nekk tradition ci quartier général bi yaa oustaz mi ngi noonu Assane waaw jërëjëf Baye Cheikh comme ni ñu ko waxee ñu ngi ndokkee laat ñëpp si guddi gu màgg gi nga xam ne ki ñuy waxtaane tey maa ngi koy junj sànq nee ne ne jarul laajte mhm. buñ ne lee kuy Maodo rek ne mooy maamu Cheikh Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum mhm. radiallahu anhu loolu rek day no présentation ndax ka nga xamante ni wax dëgg yàlla saa su nekk bu jamono jaaxlee ñuy wut ay solution mhm. bu ñu tegee kasetam rek gis solution nga xamante ni lu mu waxoon démb la kooku su ma leen noonu kon ki nga xamante moom moo di maamam jaratul présenté muy góor ga nga xamante ni ku umpale woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boo demee si téeram bu ñuy wax xilaasu zahab fii siirati xayril arab kan mooy saxam kan mooy mam Maodo radiyallahu taala anhu mm-hmm. dana la fa jàngal siira dañ la fa jàngal balaaxa dañ la fa jàngal naxwu dañ la fa jàngal sarfu mboolem xeeti xam-xam yi nga xamante ni al luga al arabia am na ko di langu al quranul karim suñu maam Maodo radiallahu taala anhu jàngal na la ko foofu si xilaasu dahab mhm. kon nag tey fa tabarakallahu ñu siy ndokkeel eh, njabootam yépp buñ jëlee ziar bi teg ko si suñu loxo wayjur Serigne Babacar si Mansour moom mi nga xam ne wayjuram bal xaw mi li mu waxoon maam Maodo Seydina Ali di des ñëw si kanam zayyanta sunnata man lawlaahu ma barazat shamsun wala badrun wala hudu kooku moom mooy Cheikh Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu oustaz Pape Anne jërëjëf mu ngi noonu <laughs> alaaj Pape moom daal xam naa téléspectateurs yi moom hmm. euh, kenn rek lanoo xaar déglu ko muy boroom xam-xam bu mag baax lool yaru lool xàmmee lool doon taalibe yiw lool samaam kat dafa jàngale woon moom Cheikh Seydil Hadji Malick ne nit ñi li noo puukare woo mooy alal ak askan waaye nun xaaji malik li noo puukare woo mooy xam-xam ak teggin annaasu yaftaxiruuna bi maalin wa nasabin waaye wa nahnu naftaxiru bil ilmi wal adabi mhm. alaj nu invité di borom xam-xam nekk ca daara ja mhm. waaye nekk taalibe ba tey gisul boppam ronu ci ronu sunu kilifa yi ndax nit dafay am kilifa nit dafay am wiiruwaay si naalum jaañ nag am kilifa am wiiruwaay waaye ba tey génnul ci loxo ay kilifaam ñëw fii ci ndigalu xalifa bi sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour xalif général de Tidiane ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér lool maa ko waxoon ca gàmmu Mbuur ca gàmmu sëriñ Maodo Fall maa ngi koy nuyu ca gàmmu Zawiya Seydil Hadji Malick mu yëkkati gàmmu ko teg sama loxo ma ne ko si naalin moo waxoon ni yow sëriñ Bay Mansour moo waxoon da sulaay boo ne ko jàkk da ngay tiit waaye boo jaxasoo moom da nga koy bëgg waaye ma ne ko yow sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour nit ñi di la woowee ñàkk caaxaan mooy sa dëggu nit ñi di la woowee pas allemand mooy sa dëggu waaye la waral loolu lépp mooy dëggu gi nga dëggu yow sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour si naa lu waxoon ni man ra'aahu badihatan hëbahoo mhm. waaye wa man xaalatahu maarifatan ahabaho mu ni Seydina Muhammad loo ne ko jàkk da ngay tiit ndax dignité ga ak tëy ga ak personnalité ga mhm. waaye boo jaxasoog moom da nga koy bëgg ndax mbaax ga noonu la Serigne Babacar Mouhamadul Mansour mel ak rakkam yépp kenn koo ci jël mu El Hadji Malick seen maam nag mooy garab gi waaye ñoom njaboot gi ñooy car yi te garab nag El Hadji Pape euh, car boo ca laal borom yëg ko mhm. kii ñëw ci ndigalu Serigne Babacar Mouhamadul Mansour ñëw ci ndigalu euh, Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ak ndigalu njabootu Seydil Hadji Malick yëpp di borom xam-xam mm-hmm. ànd ak euh, rakkam léppam di Serigne Sidi Ahmed Mbaye alaaji Pape Daal euh, taalibe yëpp a ngi xaar waa Amérique nu ngi seetaan waa aut waa waa waa Autriche ñu ngi ñu ngi seetaan waa Australie sama soppe yi nekk foofu nu ngi toog nee nañu nelawunu waa Europe Asie Afrique Sénégal yëpp taalibe seex yaa ngi xaar ñi nga xam ne dañu jeex takk ci jàmbar ji seex Sidil Hadji Malick ñoom itam nu ngi toog di xaar euh, nuyu bu baax a baax sunu wóor la ren nag faaw nuyu ko muy Seydou Mouhamadul Makhtar Cissé ministre ñu ngi koy nuyu moom itam ndokkeel ko mi ngi toog di la seetaan si naaw mi ngi lay nuyu euh, Serigne Maodo Malick Mbaye mi fi ñëwoon barki démb <laughs> ñëpp moom itam mi ngi leen di nuyu mi ngi toog di ko ndokkeel ndax baayam moo nekkoon ak Cheikh Sil Hadji Malick ak Alhaji Mouhamadul Mansour moom daal Alhaji Pape euh, Abdoul Aziz Ndiaye mi nga tudd léegi baax lool alaaji ilimaan laam euh, jàmbaari kër gi nga xam ni daañu daj lu ne ci ndax kër Seex Sil Xaaji Malik ndax Maodo moom euh, mooy géej mais géej la goo xam ne ay dex rek ko wër tey daal xam naa mi ngi guddi hmm. du ma bëgg a yaatal waa ñu tàmbali euh, bu ñu tàmbali kon nit ñuy def rek euh, jox si naa luñ mu nuyoo. Mm-hmm. bu nuyoo rek euh, ñu jox si na euh, Serigne Sidi Ahmed wala Serigne Sidi ubbil ko. waaw waaw Serigne Sidi ubbil ko rek comme xam nga ñun lu ñu tàmb mooy bala ñoo conférence bala bi ubbil ñu nag sofinu ah. waaw dama bëgg nag Sidi sofe saal bi ba mu yëngu. échauffement daal bi yëngu échauffement si naa luñ tàmbali. ayca kon na sofe léegi. waxtaan ak téléspectateurs yi. jeena. wasalli bi ya ilahi wajzi أبدا عنا كثرة الشوق فيه لقيا لسيدنا سيدنا loxoy ca kaw ca kaw wa katru dikri salaatin summa nusratuki jafa mawdo تخلق ما قد من شيء مولانا جنة الكاني وصلي يا إلهي يذكرها فقدما قدما أنا بلغ المفتاح تؤتى مولا بجنك الكاني وصلي يا إله كصفية تغرني سمحت أبدا ما بك مولا محمد محمد لنا المختار في القيل يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القدم يمر يا من يريد هنا الخلد يسكنها يسكن قال طلب المفتاح تحترمي mën nañu dem Sidi Ahmed euh, euh, toj na fi kon defe naa tàmbali jot na nag. noonu tàmbali tàmbali tàmbali tàmbali jot na. Khady Cissé Talibé Cheikh. Mhm. nday ñang yaayu Asi Mbeng ca Espagne Ndeye ñang yaayu Asi Mbeng Espagne ak ñëpp euh, yàlla na seen jàmm yàgg kon defe naa top départ bi rek la ñuy sifflé. Mhm. tàmbali nag yow saas waxtaanee ki nga xamee ni moom laay wax boobu ba léegi ni xajul ala kulli al ci quartier général am mbégte nag dalal koo xamee ni ab professeur la ci ki ñuy waxtaanee di Serigne Alioune Diagne. jërëjëf alaaj Pape eh, xam naa Oustaz Assane moom itam eh, indi na ay question yu ma war a si ne Alioune mhm. waaye Sina Alioune eh, tey jii daal bu njëkk mhm. mooy pour pour téléspectateurs yi xam ne boo jugee ci biir bii topp ci boo jógee ci biir bii topp ci xam naa ci biir waxtaan bi Oustaz Assane dana ci dugg ak yow mhm. bu njëkk bi mooy kan mooy Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu ba ca topp nga wax nu diggante Maodo ak ay taalibeem ba ca topp nga wax nu manaaqibuhu mu bu Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu anhu nga xam ne foofu lu baree bari dina ca feeñ ba ca topp nga wax nu xam-xamu Seydil Xaaji Malik mm-hmm. beneen laaj ba ca topp mooy tegginam mm-hmm. tegginu Alaaji Malik mm-hmm. cër bi ko yàlla jox fi mu àgg ca yàlla tegginu Seydil Xaaji Malik ba ca topp nga wax nu mu xaddama mi mu Alaaji Malik ñi mu defar ba ñu nekk ay Seydil Xaaji Malik tasaare leen waxuma ci réew mi mais ci àddina nga wax ñu mu xaddam yi mm-hmm. ba ca topp nga wax nu cofeel bi Seydil Hadji Malick am ci rasulullahi ba ca topp nga wax nu cofeel bi seex Seydil Hadji Malick am ci seexu yi radiyallahu anhu sharif ba ca topp nga wax nu ñu seede ci moom moom Maodo ndax nekkoon na fekk tubaab yi mm-hmm. nekkoon na fekk ay nitu yàlla ñoo xam ni euh, kenn ku ci nekk àgg na ci yàlla am na lu ñu seede ci Seydil Hadji Malick mm-hmm. nga wax nu it gis-gisam ci àddina moom Maodo waaw gis-gis bi mu am. Mhm. ci àddina moom Seydil Hadji Malick. Mhm. Euh, ba ca topp nag nga wax nu ay waxam. Mhm. Euh, xam naa ci biir Sina euh, Sina Sène. dana ci dana ci ñëw Sina Aliou. aouzu billahi as-samii al-alimi min charri shaytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi allazi manna alayna. ala hadihi aljalsati alqayimati alchamilati bilfutuhati wal anwaari alilahiyati almuhammadiyati attijaniyati almalikiya alhamdulilahi ala kulli xaal alhamdulilahi alladi iktafa wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin almustafa wa ala alihi wa ashaabihi ahli listifa wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ila yawmi alwafa ولرى الله الخالد عن شمس السموس وبدر البدور وإمام الأمناء وسيد السادات مولانا أبي العباس أحمد التجاني الشريف الفاطمي الحسني وعن جميع مقدميه وأحبابه وأتباعه وعن سائر خلفائه فمنهم جدنا وشيخنا wa sanaduna wa qudwatuna wa malaazuna xaamilu liwaa'i tariqati tijaaniya fi garbi ifriqiya maam Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy ibnu Ousmane alayhi ridal maliki ila yawmi lmahaalik wa li jamii awlaadihi wa ahbaabihi wa muqaddamihi wa atbaa'i wa li jamii xulafaaihi al axyaai minhum wal amwaat ila an yarisa allahu al arda wa man alayha wa baadu ayuha almushahiduna alkiram al azatisa wal ulama al abaau wal umahat hmm. bi izni cheikhina wa wasilatina alcheikh asayidi aboubacrin si ibnu cheikh alhaaji mouhammadun ilmansour si hmm. radiallahu taala anhu xalifatuna alhaali nuxayikum bi taxiyatin islaamiya qaa'ilan lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa bismi jamii ixwaanihi fillah. macha allah. jullit yi ñuy seetaan. ñu ngi yëkkati kàddu nuyoo gu ànd ak ziyaara ndokkeel. ci sunu ay ndigalu kilifa. ginnaaw bi ñu sante yàlla. ci xéewal gi mu ñu defal ñu teewe jotaay bu tedd bi di waxtaanee kenn. ci nitu yàlla yi di yëkkati kàddu gi ci ndigalu xalifa bu tedd ba sang bu yiw ba a saadiqul masduq a cheikh seydi abou bakar si ibnu cheikh alhaaji mouhamadul mansour cheikhul xawma ñi nga xam ne képp kuy wérde salaatul fatiha tey te sa silsila di cheikh seydi alhaaji malik mooy sa bunt ci yàlla yàlla na yàgg te sax di ko ñaanal yàlla wér bu baax di ko ñaanal yàlla sutura bu sax di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi ndax innahu kaana magnaman li umma al islamiyya ma sha allah di nuyu rakam ju baax ja sunu baay bu tedd ba sëriñ Pape Malick si an naatiqu arasmi bismil xalifa wa bismi usra al malikiya at tijaniya fi tiwaawan di sëriñ Pape Malick si baay bu yiw baay bu sell baay bu mën a wax lu rafet di nuyu al aarifu billah ak taqiyu ak naqiyu ak saalix Mawlana Cheikh El Hadj Malick. ibnu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh Malick. taajul udabaai wa adibil ulamaai. di ko siyaara bu baax di ko ndokkeel. di ko ñaanal yàlla li ñu ñaanal xalifa bi. amiin amiin yaa rabbal amiin amiin. waaye di nuyu ki nga xam ne ñun mooy sunu Cheikh Seydi El Hadj Malick. mooy sunu buntu ci Cheikh Seydi El Hadj Malick. Hmm. nunu mel mooma. moo ñu fekk jëlee ñu fu sori andi ñu fii ñu ne tey di baay di sëriñ al mujahidul akbar di mawlaana al cheikh seydi aboubacar si ibnu cheikh alhaaji abdas dabax mali ayadahu llahu wa nasara wa adama baqaahu ma sihati wal afiya amiin amiin amiin di ko ziyaara bu baax a baax di ko ñaanal yàlla li ñu ñaanal xalifa bu tedd bi hmm. ndax ku tax nga mel noo xam ne bur woon ak moom doo ko hmm. mel waaye waaye wërsëgu jàmbur ku tey waayaasee war koo gërëm. wallaahi. Mm-hmm. di siyaara mboolem usra almalikiya. Mm. bàyyiwuñu kenn ginnaaw bi ñu siyaaree Serigne Babacar si Abdou ñuy siyaar xaritam ba Serigne Mouhamadul Mansour si ibnu Cheikh Al Hadj Abdes da baax Malick di ku baax di ku yàlla defal. di jaar ci moom di nuyu rakkam yëpp sunu pap Sid Ahmed si da baax sunu pap Badou da baax sunu papa Cheikh da baax. sunu papa Ousmane Dabakh sunu papa Alpha di nuyu sunu baay sunu xarit Cheikh Al Hadj Malick si bu maam Habib si. ci Mouhamadul Habib di jaar ci moom. di nuyu Serigne maam Ousmane Serigne Moulay Serigne Cheikh Serigne Moustapha Serigne Cheikh Serigne Khalifa ak mbooleem njabootu sunu maam Habib. di nuyu seen doom yi tedd yi Serigne Mansour si Jamil ak képp ku aju ci Serigne Moustapha ci Jamil mm. moo xam nasaban wa taalluqa ñu ngi lay nuyu di la siyaara di nuyu Serigne Mansour si bu Serigne Cheikh si ak képp ku yaakaar Serigne Cheikh Tidiane si di nuyu Serigne Cheikh Tidiane si bu Serigne Mansour si borom daara yi ak ku yaakaar borom daara yi di nuyu sëriñ Babacar si bu sëriñ Abdoul Aziz si ak ku yaakaar sëriñ Abdoul Aziz si di nuyu di siyaara sunu mag Serigne Hadj Malick si bu Serigne bu xalifa bi ak rakam yu baax yépp te munuñ ci ñàkk tudd Serigne Habib mhm. sëriñ Cheikh sama xarit sëriñ Lamine sama soppe di leen siyaara bu baax a baax a baax masha Allah du nuyu njabootu sëriñ Babacar sëriñ njabootu Sidi Hadji Malick si Maodo sëriñ baabakar si ak ay rakam sëriñ Cheikh Omar sëriñ Moustapha sëriñ Habib sëriñ Cheikh sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha ñëpp ñu ngi leen di di siyaara mboolem njabootu Cheikh Sidi Hadji Malick ngeen baal ma rek nuyoo bi du yàgg ndax man ñàkk c'est normal ndax loo jeg jege Lat Joor Lat Joor di Lat la. di nuyu sunu bàjjan yu tedd yi. Mm-hmm. soxna Safiyatu bu Sëriñ Babacar mm-hmm. mu ngi fii ci Dakar Medina di ku baax. du nuyu sunu bàjjan aminte si xalifa ñoom ñooy bàjjanu kër gi di nuyu sunu bàjjan day sofi si Mouhamadul Habib mm-hmm. ñu bàjjan umul xayri si da baax ak soxna faat si da baax waaye suñu bàjjan suñu xarit soxna ayda si da baax rakam mm. soxna yaay safi si da baax mm, ñu bàjjan métt suñu bàjjan laal la mm. bàyyiwuñu kenn suñu bàjjan umu kalsoom si da baax suñu bàjjan umu kalsoom si habib suñu bàjjan maam faama habib suñu bàjjan roqiyatu da habib bàyyiwuñu kenn tax ñoom ñu ñu mel seen maama tax ku ma tudd rek maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara mm. waaye di beral nuyoo koo xam ne bu émission bi amee jàpp na ci muy soxna kaltoom si ndax bi mu Oustaz Pape waxee programme bi dama ko ne condition ma dem ci kilifa yi bañ na waaw kese su ma amee ndigalul kilifa yi ñu ne waaw bismillah su ma amul seen ndigal ah man jabootu jàmbur laa mm-hmm. rus naa toog ci télé nit di ma seetaan kenn ci kilifa yi ne kii fi mu jëm ko ko fa yebal bi ñu amee ndigalu kilifa yi ñu am problème lu ñu indi ma woo Oustaz Pape ne ko laisse passer te loolu balaa may ñëw xaaj Pape Cheikh Cheikh Bale moo ko waroon a lijjanti. ci mooy kilifa jotaay bi. dëgg la dëgg la. dans les normes. suñ Pape ne ma maa ngi woo Soxna Kaltoum. ah mu woo ko ci saasi moo demal boppam préfet ci préfet. bu ma ko yëgoon kaltum lay woo. lijjanti laisser yemu ca mu ne ñu ne oto yu ñuy yóbbu. ñu am problème mu oto. mu ne sama oto sama sëfoor dinañ leen booleeg ñu leen escorté yóbbu leen ba Tiwaawan ba ba tey. wallaay ngeen yëg. kooku munu man de mënumaa dox fii ba fii ba Tiwaawan. Mm-hmm. <laughs> te yéen joxu leen ma lu ma fi indi kon moom moo tax émission bi am. Ah. kon soxna Kaltoum jërëjëf si Malick. macha allah lii rek lañu xaar ci yow. waaye nag. di nuyu Sidi Ahmed mi ma àndal di nuyu safoor yi ñu indi maam Khalifa Bus ak As. xaaj mhm. Pape. Mhm. di nuyu Soxna Maymuna Mbóoj mhm. di kenn ci kër Seydi Hadji Malick ku bëgg kër Seydi Hadji Malick. radiyallahu ta'ala anhu di ci def alalam te yàlla tax. menace tout di nuyu di ziara. meeru Tiwaawan Diagne si Mbengue. Mhm. Diagne Sy Mbengue dafa yëg émission bi rek wool ma boppam. te kilifa la. Mhm. mënoon na ko ci bañ a fekk. Mhm. encouragé ma ñaanal. bi may ñëw ci yoon la ma Aziz Alé Ndiaye mosuñu gisa suñu toog. wala Amin Fatim Bakary nit ko. Oustaz la laaj sama numéro mu jox ko ko mu woo ma encouragé ma ak kilifa yi nga tudd yëpp ñu ñuy seetaan. Masata la bokkal. nit ñi ñoo toll noonu ci Cheikh Sidi Hadj Malick waaye to bëgg ngeen ko jarta dina leer. lay jar na ko. di si caf. bu maam Habib. ak mbooleem diaspora bi. du mhm. ñaan yàlla ci barke góor gu tedd gii ñuy bëgg a waxtaanee. Mm. feebar bi yàlla na ko fi yàlla jëlee. di nuyu mbooleem xalif général yi. Mhm. bàyyiwuñu kenn fu xalif général ne. maa ngi lay nuyu ci sama làmmiñ waaye di ci wuutu xalif général des Tidiane. ak ay rakkam ñu ngi nuyoo ñu ngi siyaara xalif général yi ci di yor diine ji ndax waati waawan dara ñoru leen lu dul diine. Mm. kon ku nekk ci diine seen mbokk ngeen mm. maam laa jab das da baax moo waxoon ne al muminuuna kulluhum ixwaanu laa yambaxi baynahum la udwaan alaa jab di neen jullit yëpp a bokk ndey ak baay mm-hmm. ñaawul rafetul ñaaw na ñuy dégg jullit ak jullit kon mm-hmm. ñu ngi nuyu xalif général yi di mm-hmm. nuyu mbooleem tariqa yi oustaz Pape laaj nga ma koo xam ne waxtaanee ko lu yomb la waaye lu jafe la. kanay Seydil Hadj Malick. man huwa Cheikhul Hadj malik mhm. li tax mu neex a waxtaanee mbiram dafa leer. Mhm. Hadj Malick. Mhm. buñ la laajee kon mooy si Hadj Malick mooy neel misbaaxun min masaabihi diin. loolu mooy lan. benn làmp la ci làmp diine yi. yàlla jagleel ko gox bu ñuy wax Afrique. waaye nag wàccee ko ci dëkk bu ñuy wax Sénégal. yellante woon ak waa Sénégal xam ko. macha allah. Seydi Hadji Malick bu ñu la laajee man huwa Oustaz Assane. Hmm. ginnaaw bi ma la nuyoo si yàlla yow ak Oustaz Pape Oustaz hmm. ku baax ak ñun. ku sonn ci man ma ñëw fii. suñu xarit la. Hmm. suñu soppe la. suñu genn wàll la. ñun duñu ay naataango. ay frère lañu. macha bu yoree rajo di wax rek ñun ñëpp dañuy yëg ne Oustaz Pape mooy wax. ndax kenn ku nekk day wuutu borom ma. laa tey na. wa in taala suduudu waqat yujfa unaasun waxum fi sirri ahbaabu mm-hmm. looloo tax suñu digganteeg moom moom ak Oustaz Assane ak mbooleem Oustaz yi ci di nuy waa télé bi mm-hmm. di siyaara Pape Cheikh Diallo ñu ngi koy nuyu mm-hmm. di rafetlu liggéeyam ak ñi mu àndal ak techniciens yi ci télé bi yëpp yàlla neen yàlla jàppale amiin yaa rabbal alamin yàlla neen yàlla suturaal amiin bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Mawlana Cheikhul Hadji Malick buñ la laajee mooy kanneel umdatun min umaadi diini mm. dina feeñ ci biir waxtaan ni benn kenu la ci kenu diine yi mm. cenu la boo xam ne mosta rëq mosta yëngu te lépp loo ko teg ci ginnaawam attan na ko sëriñ Babacar moo wax ne fa in jitum ila xarmi fa loosoo bil xaraa ahla la ilaha illallah loolu mooy boo wéeroo ci ginnaaw Cheikhul Hadji Malick lu sa xel attane te mu jëm ci yàlla attan na ko uhuh. lu tax mu ne diinee ma leer ndax fa kullu mu wasilun wasilun waaye walay sa bi kulli wasilin mu wasilun uhuh. oustaz Pape uhuh. ku lijjanti ba nga gis Macky Sall Mm-hmm. lijjantiwaat nga gis Macky Sall lijjantiwaat nga gis Macky Sall nga toog grand place di lijjante ndax kooko mën naa gis Macky Sall am déet yëgoo li xew dëgg la de waaye du ku ñu yóbbu yi nga mën a yóbbuwaate déggoo li ma wax du ku nga mën a yóbbuwaate waaw ah, waaye ku yóbbuwaat kenn la wareen man ngaa demam déet waaw ah, foofu saf na de waaw akbar moom la cheikhul qawmi alaaji Mansour wax ne asxaabuhu jullaasuhu mm-hmm. axnaw ka antas fii tawsifihi ñu ne am na ñu mun a waxum fi kulli makaan billahi yow mi may laaj kat mooy si Aji Malik mun a bu ci sonn ñi ko yaakaaroon bàyyi seen kër bàyyi bàyyi seen kër maam yi bàyyi seen kër ndey jaayanteek moom bañ delloo ñëpp xam nañ ne ah cin bari na waaye lu ñuy sax bopp si Aji Malik ku pare ci yow ñu naw lool dina feeñ ci biir waxtaan buñ la laajee man huwa Cheikhul Haaji Malik neel muxlisun lillah ndax alquran ne na wa maa umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu diin lu ngeen ma présenté man yàlla lu dul ngeen sellal sama digganteeg yéen bëgguma Sadio Malick nekk jaamu yàlla boo xam ne digganteem mag boroomam dara takku ci mhm. saas pap ñëw ci biir waxtaan bi maa bu ñu lay wax kan mooy Sadio Malick neel koo xam ne li mu am yëpp rëg-rëg ji Cheikh Laa Jab de Dabaax Cheikhul Xawmi sëñ Babacar Si maam Habib sëñ Mansour borom daar yi sëñ Moustapha si Jamil mi tëdd fii sëñ Cheikh Tidiane sëñ Abdel Al Amin yooyu góoru yàlla ku leen tëgg ñu jógee ci sa njaboot xam nga lu ko ko may hmm. fi'lul ma'muraat wa tarkul manhiyaat lu yàlla digle si ajmaali ga ci man lu mu tere kenn mosu ko ci dig te dina ñëw ci biir waxtaan bi très bien maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu buñ lay laaj kan mooy Maodo neel alhaaji Malick si kaana waliyan mursa ñu yonent bu ñu yónni mu am pouvoir gindi ay nit yóbbu leen ci yàlla noon la wëlli bu mën a yóbbu ci nit yàlla moom la Cheikh Umar Fuuti Taal sunu maam ju baax ja wax ne laqad sallaynaa kathiira hmm. wa sumnaa kathiira hmm. wa tasaddaqnaa kathiira hmm. maa arafna allaaha xatta saaxabana rijaal dañoo julli ba dee xamuñu yàlla ñu ne ba dee xamuñu yàlla ñu daje góor yàlla mu dugal ñu ci ruq ñu génn xam li xew loolu la seqoon ak téye nit. Hmm. rompe ko ba mu lay jëriñ. yee ko ba muy jëriñam moo ko gën. Hmm. dégguma de Maalik bu njëkk téye nit téye nit. Ah. nax ko ba mu lay jëriñ. nga yee ko ba muy jëriñam moo ëpp. am affaire defar na la ba ngay jëriñ. billaahi defar keneen ku dul yow. Uhuh. te dina ñëw ci biir waxtaan yi. macha allah. Seydi Maalik radiyallaahu taala hmm. lay laaj kan mooy Seydi Maalik. bu ma xaar ci Maodo moo xotti tey jaww ji bu ma ci xaar. bu ma xaar ci Seydi Hadji moo daaneel bi dama lay wax ne la nit ku simple la ku jëfe sunna ku sell ku yiw ku bëgg nit ku wàccee boppam ku ragal yàlla ku bari xam-xam ku mën a jàngale ku mën a defar nit ku xam boppam ku mu fare ci yow nit ñi yaakaar foofu laay jaar ak yow ci Seydi Hadji Malick nga laaj ma lu tax luy sa tegtal ci alquran ma ne alquran e rasulillahi kullu naqussu alayka min anbaa'i rusuli maa nusabbitu bihi fu'aadak yàlla mu ne yonent bi xissa Muusa xissa Isa xissa mhm. Daawuda mhm. dinaa la ko indil ci alquran mhm. ngir boo jaaxlee nga xam fi ngay teg sa tànk waaye Cheikhul Xaaji Malick du marchandise mu ngi exposé radiyallahu taala du sama làmmiñ yu tuuti yi mooy tax nit ñi xam kan mooy Seydi Hadji Malick xam nañ ko ba pare du sama làmmiñ yu tuuti yi mooy tax nit ñi bëgg Maodo la in madaxta Muhammadan bi maqaalati walakin madaxtu muham maqaalati bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa ne sama làmmiñ weeg sama xalima gu ñaw gi mm-hmm. téewuma ko di tagg rasul pour tagg ci rasulillah maa bëgg a sagal sama bopp ci tagg gi may tagg rasulillah looloo ma dal tey maam Alaaji Malick dem na gànnaar dinaa ci ñëw mm. vingt cinq jours la fa def jëlee fa vingt sept ijaasa benn bokkul ak moroomam ijaasa bu ci nekk borom lim bind ci suuf dafa bind ne ko tabarrukan fii mustaqbalik suñu bàyyi Seydou Wele wax na ko ba taay xam nga lu mu ko wax bindalu ma la ijaasa parce que dama am garaatu di la bindal ijaasa bindalu ma la ijaasa c'est parce que dama laa mat sëriñ Mouhamad Daymaani moo ko wax ne ko anta waliyun mursal sëriñ Cheikh Tidiane si nettali na ko ba taay almaktum xam nga lu tax ma di la bindal ijaasa mag ñi ko bindal yépp ñu ne ah mu ne ko dañ lay bindal ijaasa pour barkeelu ci yow ëllëg avenir bi nga am bu ëllëgee ñu tiitaroo de ñun mos nañ la bindal ijaas professeur bu taxawoon fii jàngal Macky Sall boo taxawee da naa président maa ko jàngaloon mm. sa sag la parce que ku jaar ci sa loxo tekki ba ñëpp xam sag la magi gànnaar ne ko gànnaar gañ yaakaar ne ko ñun nag dañuy profité ci yow ndax xam nañ fa nga jëm boo doonee loo dan bu ëllëgee ñu tiitaroo la maam Cheikh Hadj Maay radiyallahu taala anu nit ku koy kontul wala bëggoo ko wala doyu la li la doy xam nga mooy kan ñaara la dal xat tunkirul xat tunkirul xat tunkirul famm mm-hmm. taamul maa imun saqamin wa tunkirul wa xat tunkirul aynu daw u samsi min ramadin waaye wa tunkirul fammi taamul maa imun saqamin mm-hmm. waxkat ba dafa ne mm. waay waay waay ku wànnentu ba ay bëtam mënta xool mm. mu yeewu mënta xool jant bi ne dàng ah. mu naan waa dafa niis xanaa jant bi du fenk boo ko yeddee da nga koo yab. fekk jant baa ngi ci kaw. jant baa ngi ci kaw. mais moom dafa wànnent. moom dafa wànnent. moo tax gisul. ci siburu ñu tegal ko ceebu jën bu neex nit ñi dank mu naan ceeb bi saful dara bu ko yedd. Hmm. te gémmiñ gi la. wallaay lu ko doon Saaji Malick ku ko ñam mu saf la. dafa pali. dafa pali. <laughs> baabu korona. Saaji Malick radiyallahu taala eh. yàlla dimbale ko ci mu mu bàyyi xel ñett. te ñett yooyu moo ñu fi indi. Eh. dafa bàyyi xel ñett jëfam yépp mu consacré ko ci ñett déglul sama ñetti ñett yi ñett Mawlaaji Malick dafa bàyyi xel baynahu wa bayna rabbi hmm. yàlla wax ci alquran ne eh coow li bari na de hmm. ay xalif général premier ministre maay nii leen ko foofu yegg siwul ci man ah bon ay ustaas beeg imam bi yàlla neen na yem foofu de bu mu ñëw de ah ñu ne ah, yàlla lu tax mu ne in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahmana abdan la akbar laqad ahsaakum ahsaahum wa addahum adda te nag yow aatihi yawmal qiyaamati fardan babaan xam nga ne coow li yëpp sama sëriñ kuy dem doo ànd ak sa sëriñ yàlla ñun dama leen jël tête à tête huis clos hmm? yawmal qiyaam amul nañ ànd de déw kenn ku ne sa bopp nga li jël sa bopp parce que bu nit deewee moom rek la suul moom rek la ñuy suul mooy preuve bi bu ñuy dekk kenn ku nekk ak sa bopp maam alaaji Malick bàyyi xel lool bàyyiloo ko taalibe yi na leen xam ngeen lu ma man ñu ne ah mu ne teg leen ci yoon ba bu ngeen dajeeg yàlla du ngeen ruus yàlla nee na ku ñu bind ci kaw suuf jaam laa bindool su dee ñëw dàll du ko topp mbubb du ko topp seen sañ sa yooyu foofu la xew bu ngeen dee ñëw it dara du leen topp in kullu man fi samawati wal ardi illa atrahman abda si aj Malick annoncé boppam Mm. wa qaraya baabal xayri yaa rabbi lam yufit lidaaka sarrafna naxwa baabika wijati mm-hmm. mm. fa anta karimun fal karimu man ittaja ila baabihi ya man kullu ni amati yàlla ne waa kii fëgg sama buntu kan la oh. mun yow a kan mu ne ko abdun la ilaha illallah alaaji maali mos ta wax kenn sëriñ laa mosu koo wax alaaji maali mos ta wax ne képp ku ma jàpp sa affaire baax mbindam yëpp dem ci damir buy dellu ci moom amul dana yàlla jaam yàlla na ko laaj maali bu ma nax damaa bari jaam ñu nangoog ñu bañ yëpp samay jaam ngeen bañ jaam nga ci jaam yi mu ne yalax wax ja dem ca taysiir ba ne ko abdun salilun faqirun xaasiun wajilun soo jasayin asifun yàlla ci oh. nit ñi yaakaar ba di ko waxtaanee quartier général mu jaral ku ne di tëb di dal hmm. lu ngeen yëg ci moom ba di ko cëpp cëppee moom ci kanam yàlla jaam bu torox la jaam bu wàccee boppam hmm. jaam bu takk jaam bu tekkiwul dara ca kanam yàlla hmm. jiitu dikk naa baadiyee sillati lu ma bon la yàlla mu ngi nii seet ma boo ma yërëmee ma jël boo ma yërëmul ma xam noo may def waaye attention yàlla mm. Mm. alaaji malik mu ne yàlla teeyal mm. da ngaa bindu aljana bindu safara ne ku ma jaamu dem aljana ku ma jaamul dem safara man dinaa la jaamu nii aljana nii safara hmm? bugguma aljana ragaluma safara yow laa bëgg yàlla ko lu tax mu ne ko safara jaam la boo ko ne wu lakkal du lakk ibrahima dugal nañ ko safara safara lakkul dëgg la dëgg la aljana ku fa dugg jaam la yàlla ko naan neexal ci dit pour kat may jaamu may wut lu neex yàlla pour am jaam ni man ñu yàlla na ko Maodo lu la saf mu ne ko taraktu ilahi irada al qada li ajliba minka rida bir rida fama minka ila jamilu sanii li anna al jamila jamilu al qadai fa kayfa atiradu zalilun haqirun bi rabbin kabirin bi rabbin azizin kabirin qada macha allah man alaaji Malick dañ ñu naan yàlla nii la ko waroon a doxaleeg ne ma ca <laughs> fa kay fa atiraadu naka la nit di amee xalaat ñu dugal ci problème mu feebar bii tey ku ne di wax Maodo ne benn solution laa leen wax bu ngeen ko defoon feebar bi wér ñu ne amu ah, ne yéen ngeen xam ne yàllaa leen ko teg ngeen dellu di ay jaam bàyyi njàmbat leeg coow li la leen yàlla santoon ngeen dellu ci rek problème am. est-ce que problème bi sax si maa réglé na ko feebar bi xam nga nu mu doo ma laaj fan la ko réglé ca xantaratul murid kanzul fina xaslul ina tarku zina min al umuri al jalibatul ghina allahu akbar xoolal bii tashbih taam saañ maa ne bu loxo yi dee set hmm. hygiène de vie bu baax am laal gel di laal sel bi ku yem ci sa kër ngeen moytu jigéen ñi jaay seen bopp moytu ngóor jigéen bi mm. moytu caay-caay gi ci dëkk bi mm. feebar bu leen yàlla tegoon mu teg mm-hmm. ci Maodo lu nit di dund ci kaw si Seydi Maalik wax na te dina ñëw ci kaw radiyallahu taala mu ne yàlla nag abdun saliilun faqiirun xaasiun wajilun zu jasa'in aasifun yàllaahu yàllaahu oh. ne taalibe yi ñu ne ah masta wax baatu taalibe ci gémma ñëm Mawlaaji Maalik ne su ma déggee diw naan diw sama taalibe la damay tiit ree damay jàpp lu tax mu ne nan la nit di taxawee ne diw sama taalibe la wala diw sama njaboot la wala diw maa ko yilif ñu ne ah mu ne yàlla am njabootam nga bokk ci njaboot gi njaboot yàlla nga ciy wut koo njaboote waat eh waay ndaw xolaa moosu bi rabbi naasi maliki naasi ilaahi naasi yàlla moom ñëpp yàlla moom ñëpp ñetti martaba la xam nga li xoloos bi rabbi naasi mooy bi ngeen nekkee ci seen biiru yaay te génn gu leen seen bàyyi ordonnance rek lañ mën a jënd seen yaay di taflee ko man rek maa la fa fekk di <laughs> xam nga liir bi rek Malick Naas. liir bi bi mu juddoo ku ko wax jëlal weer bi xamul nu mu tudd xamul fu mu dëkk. Ah. xamul nu mu sant. Ah. muy jooy nga jox ko weer bi mu nàmp ah. bu kuus bi tàngee muy jooy ñu ne dindul kuus bi ñu ne manta wax xamul dara mu ngi communiqué ku ko bind. Mm. yow yaa xamagul fu mu toll waaye moom xam na fi mu ne. waaw akbar ne mooy bi rabi bii mooy Malick Naas ilaahi naas mu ne bisa gi ñëw ci bisi ñu laxas ko takk ko ñu ne ana kem yaakaar lool mu ne nañ ko jox yàlla mooy ilaahi naas maay wéete yow ci bàmmeel maa wéetoon na yow ci sa biiru yaay <laughs> fi nga jéemee dox ba fi nga mënee dox bay sol mbubb di sañse di am oto di takk jabar di jaay affaire di kalan-kalangi mën a bu ma seetaanoon du baax mooy affaire bi man jàmbaar amul ku yàlla dimbalee yàlla lépp man man la Sadio Mal ne loolu laa jàng moo tax damay rus kuy wax diw sama taalibe la te yàlla radiallahu taala mu bàyyi waat xel bedd wax naa la benn bi digganteem ak moroomam mm-hmm. mu bàyyi xel digganteem ak njaboot gi ko yàlla booleen jàppale leen dimbale leen waxuma ko alaaji Mansour doomam ju baax jaa ko wax kuy waxtaanee Cheikhul Haaji Malick 30 minutes tuddoo alaaji Malick waxoo li xamoo li ngay wax dafa am alaaji Mansour ku waxtaanee Maodo 30 minutes te turu mm. alaaji Mansour duggul essuie nga dama laaj lu tax ndax tàqaliku 22 ans saa ñu tàqaliku oh. loolu kenn amu ko ci moom dinaa la wax muqaddam yi kenn ku nekk diil bi nga def ci Maodo dem bu ñu ko waxtaanee mayee moom rek moo amul chance takk ak moom 22 ans tàqali ko woon. Oh. ñu ne ko kuy sa baay mu ne suñu baay xam nga nu àndeewoon ak ñun. Mm. man na. Mm. alayna bi cheikhin walidin rahimin barrin atufin muqisin minhu tajwid allahu akbar cheikhin mm. walidin rahimin barrin atufin muqisin loolu mooy njabootu maam Sidi Ahmed si waaw bu sëriñ Babacar si bu sëriñ Babacar si. radiyallahu taala anhu. sëriñ Abdou Aziz ma ca kër ga ak njabootu maam Sidi Ahmed si bu maam Alaaji Malick. moom Alaaji Malick ma def ca Saloum. wallaahi sëriñ Alioune Sall di ko siyaar sëriñ Alioune Sall ca euh, Jàmmalaay. man na fi'lu maadin mamniyun ala al-fathati la mahalla lahu min al-i'rabi wa fa'iluhu damirun mustatirun wujubun taqdiruhu huwa Allah. Allahu akbar. ba arfu jarrin min maani at-tahdid shay'in ismu majrun bi ba wala ismu majruurun bil baa wa alaamatu jarrihi kasratun zaahiratun fi aaxirihi waalidin maatuufun rahimin maatuufun barrin maatuufun rahim yëpp maatuufun alaaji Mansuur a mën a jàng te kenn jàngalu ne bàyyam damaa jaaxle a mën a jàng te jàngiwu ma mu ne ko sëriñ bi nga am laa amul hmm. mu ne ko sëriñ bi nga am laa amul man see sëriñ ñoo ma jànga ma dajale téere yi yàlla da ko def ci man leer yow nag danga nga maa am ma préparé la balaa ngaa ñëw Seydi Hadj ko man. man da bi am laa amul. ndax man. man nga am man see sëriñ laa am. see sama jàngal see sëriñ ñoo ma jàngal ma dajale am leer. yaw man rek ma yow nga judd man rek ma def coow li may def man jàngalu ma la damaa def coow li ma def. te dina ñëw ci biir waxtaan bi. radiyallahu taala anhu ma Mansour ne man na xéewalal nañu allahu yàlla. Mm. bi seyxin ci koo xam ne ñun ñoo ko tuddee sëriñ waaye moom dafa bañ waalidi nee na moom sunu baay la. Oh. déggoo ni ma firee mm. mag ñi dañ ko yaay sunu sëriñ mu ne déedéet ñaari tarbiya am tarbiyatul xaali tarbiyatul himmati bu ma leen yeboo ci tarbiyatul himmati du mat takk sa ndigg di daw di yéeg di wàcc ba sa sëriñ dimbale la yóbbu la ci yàlla am na waaye sañse sol lu rafet xeeñ lu neex tagal mbaxana bokk ak sëriñ bi oto bi bokk ceebu jën bi mu xool la nga xool ko mu jël si room branché la ko nga doon li ngay doon man alaaji yi boobu laa leen di defal tekki leen digg yi ma yóbbu leen ci yàlla allahu akbar déggu leen li ma wax tarbiyatul tarbiyatul himmati la sëriñ Babacar si de bul way rabba bila xalwatin ashaabahu alanan hatta staqaamu fa yàllallahi man haahu fastaqim kama umirta kama umirta moo tax dafa doon yonent Seydi Sidna Cheikh te dina ñëw ci biir wax Sëriñ ma radiyallahu taala anu boo may laaj koy kan dang mooy kan danga koy laaj benn naar dañ ko laaj kuy Seydi Hadji Malick mu ne ah, sell naa ci moom yii de hmm. wa daaruhu daaru si lin li tuqaa ussisat asaasuha diinu wa takrimu wa zaad mu ne kër alaaji Maal dañ ko fondeek ñett sutura ku fa ne yàlla suturaal mm-hmm. moo tax suñu kilifa yi dara feesul seen bët loo mën a am ci àdduna am nañ Seydi Hadji moo tax damay faral di ñaan ne man Alioune Diagne lu ma am yàlla na fekk may njabootu Cheikhul Hadji lu may ñàkk yàlla na fekk ma ñàkk ko tamay njabootu Seydi Hadji Malick radiyallahu taala ne wa daaruhu daaru sillin zillin waaye li tuqaa usisa maam Alaaji Malick dafa fonde këram ci ragal yàlla ndax dafa ragal yàlla te dinaa la wax lan mooy ragal yàlla léegi mu ne asaasuha li nga xam ne moo yenu kër alaaji malik al ikraamu wa zaadu ku ñu gis mu ne lahoo masaabiixu laa tanfakku mawqiduhu min kulli ma wijhatin yaatika awqaadu te loolu du sama wax de sëriñ Haadi Touré bàyyam sëriñ Cissé moo ko woo ne ko Haadi mu ne ah, mu ne ko an sa waaji mu ne ko Haadi yënga ma ëpp mu ne ah mu ne ko gaa ki nga bokkal jamono waaye bu ma doon ndaw nga xam aa du góorgóorlu ci sa waa ji ku la ci mën-mën la Maalaaj Maalik ku la ci mën-mën la. sëriñ Hadj bàyyi moo ko ko wax. mu ne ko waa moom nu turam mel ci nit ñi mu ne ko ah am na quelque nit ñu koy tudd mu ne ko jamono ngi ñëw ci àdduna kuy bañ ku tudd Seydi Hadji Malick ci mii réew sa xol ci tàng lay dëkk radiyallahu taala jëfam dina feeñ ba ñëpp gis ko waxam dina leer ba ñëpp gis ko ñi mu defar dinañ na daan te boobu Seydi Hadji Malick fi mu yegg señaat ne ko papa lu tax mu ne ko ñaar laa seetlu ci moom man mag naa yàgg naa ak yàlla bu guddi jotee damay yor sama kurus di gëstu guuru yàlla yi waaye musuma ñëw ci Seydi Malick illaa wa raaytuhu jaalisan yaqra'u alqur'ana aw jaalisan yaskuru rabbahu aw qaa'iman yusalli allahu akbar oh. loolu mooy lan musuma gis alaaji Malick guddi lu dul dama koo gis mu toog yor kurusam di tudd yàlla mbaa mu yor kaamilam di jàng alquran mbaa mu taxaw di julli ma xam ne lii ku ko dëkkee te mu yàgg te mu dëgg boo lëggee yàlla rëgat xol yi ñu bëgg la moo tax tey kenn nelawul ndax Seexul Xadiim radiyallahu taala anhu Seydi Malick nee naa la dafa dafa dafa dajale mbiram ci ñett faam mm-hmm. xam nga lan la dundam yëpp daf ko véhiculé ci ci ñett moo tax mu réussir. Mhm. ban ak ban ak ban li tax boo gisee liggéeyam dara taxul. Mhm. dundam yëpp daf ko teg ci ñett dafa amoon uslub méthode de vie. Mhm. ayatun muhkamatun nee ma benn. benn. wa sunnatun qaimatun nee ma ñaar. ñaar wa ahkamun adilatun. loolu dafa jël mbiram teg ko ci aaya alquran lu alquran wax. Sadio Mali amu ci werante da koy topp ba mu jeex tàkk. sunna yonent bi mu laxasu ba waxal boppam ne fii ba màkka ku fa nekk ci dëgg maag yow a ànd man ngay dimbale ñu ne ah Maodo déet mu ne dëggug yàlla gi génn la te laxasu naa ci ba pare ku nekkati ci dëgg maag yow a ko boobu Cheikh Seydil Hadji Malick bi Cees ban la mu ne wa lu sariya àtte ci sama kaw ma nangu ko Seydi Maay radiyallahu taala benn wax war naa tax nit ñi xam ne la nitu dimension la daf ne alaa yaa rasulallahi kulli wa jumlati fa inni fi hada zamanu garib may mm. waay ya rasulallah mm-hmm. ñu ne waaw mu ne kulli lépp lu ma am mm-hmm. wa jumlati maag ku ma am yow yàlla yow yónent bi teg naa ko ci sa loxo mm-hmm. lu tax mu ne man alaaji Malick maa ngi dund ci kaw suuf seen maam ngeen yaakaar ma mais yëg naa ne damaa tumurank ndax bul fàtte ne moo ne woon nu daa maanaa bu dóorul nañu raatu ay na xit nan minta nii ni nu daa ñamay bokkal di naanaaneel man du ñii ñu ne amu ah, ne saxaaba ya la nu ñu mel ci yonent bi alaaji maali mel naa ko nu ñu bëgg sa sàmm man alaaji maali seen maam si alaaji maali sàmmoo naa ko Maodo ne ñu ne ko Maodo lu tax nga ne jamono bi lu tax nga ne yonent bi yow daal jël nga saleb jox ko ko toog mu ne samaanu unaasin fii umatati sunnatin fa basul ulumi fii aw yóbbu hmm. ñu ngi ci jamono boo xam ne hmm. sunna moom kenn waxatul lu ca jëm la neex rek ak ki la neex la maam Abdel Dabax daan wax. radiyallahu taala mu ne boo jëlee xam-xamu diine di ko jàngale na dañ lay jàppee ku tardé. Mm-hmm. seetal Maodo li muy wax am na wala déet. mu ne daawa wal ilmul muakkadu indahum wa muntasibun fi diini fa huwa laawdu balaa nit a ñu ko mën a gëm rek mu ñeme di woote di woote ay garanti taxamul ci boppam dara. Mm-hmm. mu ne bi ma gën a métti nag mooy tafaadulu turuqi wal jidaalu xadiisukum kama qaala zarruqun jazaau mujibu xam nga luy waxtaan waa senegal ñu ne ah, sama tariqa gën sa tariqa sama sëriñ du sa morom mu ne ay nit yoo xam ne ñoo bokk diine bokk sharia bokk yonent bokk alquran ñëpp war a àndandoo nekk benn ñu jaamoondoo yàlla yàlla gërëm leen dugal leen aljana ku ne samp sa mos mu mel ni ay mbër yuy com yuy compétir Sëriñ Maalik ne lii nag bokk na ci li ma naqadi ci jamono Maam Alaaji Maalik nekkoon Oustaz Pape Hann dina bari koy wax naan la ñun tariqa yi tariqa mooy tasawuf diine lislaam ñetti ñetti wagon la am ñetti wagon rek a ci ne al imaanu wal islaamu wal aqiqatu da nga yëg ci imaan ñu ñu ñu natt la ba nga at mi nga dem ci ashariatu ñu natt la ba nga at mi nga yegg ci alxaqiqatu xaqiqa nag du lu ñuy wax mas naa dégg ci sunu baay sëriñ bay si Mansour mu waxtaanee ci sëwee Seydi Hadji Malick mu ne yàlla du lu ñuy wax dañ koy dund koo dégg muy wax yàlla xamawul yàlla waxtaan ko ci burdi bu yàgg maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu di nitu tasawuf Pape tasawuf juróomi ponk la am pour nga xam ne Maodo nitu tasawuf la déglu lii ma lay wax usulu tasawuf bi ci njëkk mooy taqwallaahi fi sirri wal alaaniya mhm. da ngay ragal yàlla ci li nëbbu ak li feeñ waay waay waay boo déggee nit ñi nettali ñu ne dañu dem toolu jag saaw di bay julli jot si alimal ne dafa mel ni julli jot na mag ñiy bay mu ne dafa mel ni julli jot na mag ñiy bay mu dem jàppal boppam jullil boppam ñëw yaru yet fekk leen fañ toog mu kar leen dóor seen gopp yi mu damm mu ne bu leen ma jaawaleeg yàlla dem leen jàpp julli mbaa ku julli bul duggati sama tool ñëpp génn abal ko mu ne bi waxtu wi dugg si ba fi ngeen am ñu ne ah mu ne buddi leen ko ngeen gas ko suul du ma ko lekk yàlla di ma ko laaj xanaa loolu fee tax walaay yem ñaareel bi bay sa gerte mu ñor nga war ko mën a bàcc jéeri ko jaay ko mu ne nañ ko witt ñu ne ah mu ne suñu ko bàccee benn benn ngooñ mën na ci bokk ñu peese ko benn ngooñ ñu peese ko ma jaay ko tubaab bi wala commerçant bi ma dem alaaji maal yàlla na ma alaaji maali mu ne ah, mu ne ma sa gerte ga nga doon jaay am na benn ngooñ bu ca bokkoon te fayoon nañ la xaalis bi kaay fay ko nañ ko fi ba dara kon taqwallahi fi sirri wal alaniyati da ngay ragal yàlla ci ni moom la maam Alaaji Mansour wax ne maa maddari ji lay fii qawmin iza jtama'u mhm. fii xalwatin hakaza min xawfi mawlaahu min xawfi mawlaahu min xawfi mawlaahu maam Alaaji Maalik mos ta toog ci mbooloo tàllal tànk maam Alaaji Maalik mos ta tax gees même bu wéetee du tànk même bu wéetee du tànk yi da koy bank maam Mansour daf koy bës di ko bësal ba mu yàgg ronkañam toog ci yeelu Cheikh Seydil Hadji Malick mu ne ko Amadou dafa mel da ngay jooy mu ne waaw looy jooy mu ne ko papa dama la yërëm nangu woo lekk jaamu yàlla gi dafa bari ba dama yëg ne sa der bi dafa collé wu direct ci yax bi yaram yi amul yàpp direct dawul te yaa ngi dund papa de lekk mu ne ko xam nga lu tax du lekk mu ne ah mu ko damay bañ a lekk bu ëllëgee ñu di ma yëkkati sama jaat gi diisal nit yàlla di ko laaj. allahu akbar rus naa man nit di ma yéen di ma. suuf oh. may diis. ne ña ngeen ni. <laughs> ak sant ba ñaar fukk ak ñeneen ba Seydou Ba. bi ci des mu ne ah xam nga sama tànki lu tax du ma ko tàllal mu ne ah mu ne ko bàmmeel la ngi ñëw kum neex tàllal kum naqadi tàllal su ma demee ci bàmmeel doom tàllal bàyyil ma xormaal yàlla bank ko ba dem ci bàmmeel su ma demee bàmmeel tàllal Eh, foofu ngay nattee dimension wu taqwallaay Seydi Hadji Malick ñaareel bi mooy ñaareelu tasawuf mooy ittibaa sunnatu nabii fil afaali wal aqwaali da ngay da ngay roy sunna yonent mm. ne léeg-léeg nga dégg Pape ne Maodo nee na Alioune Ndiaye nee na mu ne ku ko wax na wax astaghfirullah man maay ku dund ba génn àdduna mosumaa wax déggoo ma de ah. garmi yaa ngi may déggam maa ngi laa dégg jaañ sama na ba dee mos wax ñu ne déet musuma def musuma wax hmm. ñu ne looy def mu ne wa kullu ma faaltuhu nawaytu fihi iswatuhu salla alayhi mustafi lu ngeen dégg na maa ko wax wala ngeen dégg na maa ko def defuma damay toppandoo kooy toppandoo mu ne benn fan sa laa am mooy rasulillahi lu mu def ma toppandoo lu mu wax ma toppandoo lu mu deful ma lu mu waxul waxuma ku may ma ci rasulillahi mawlaaj ma radiallahu taala anhu balaa nga mën a nekk nitu tasawuf da ngay def al irada anil xalq hmm. da ngay dëddu jaam ñi dëgmal yàlla. ku jël nit ñi jël leen. def leen ñuy sa maaliki yow mi diini ñu fooye la. bi jees moo di ar rujuu ila llahi fii kulli zamanin da ngay jox sa bopp yàlla ci bépp jamono lu yàlla àtte ci yow nga dogal mu ne war a dini bil qada rabbi musabilani ala balaika ya rahmanu yàlla mu ne feebar bu corona bi maa laaj maa ne bàyyi leen jàmbat mi hmm. ñu ne ah mu ne bu ngeen taxawee ne yàlla corona bi na saf-sàpp na gën a yokk kaay na yokk ah ñu ne ah mu ne ko yaay suñuy jaam lu la neex ngay def ci ñun loo def ci ñun neex nañu mu ne sama gars yi nand nañ ma suba du ngeen dégg kaa tant que yéen koy jàmbat may feeñal kaa yi bu ngeen waree na neex na leen rek ma dindi ko mu Cheikhul Hadji Malick war a dindi bil xada war a dindi yàlla dama laa may loo ma teg mu métti rek mu neex ma rabbi musabbiran musabbiran yi nga muñ loo ma ko lu teg lu ñëw rek na métti nay saf-saf ala balaika ala balaika lu natt yu métti yëpp teg ma benn waaye dafa ñëw di ko boole maam waxal ci diw mu ree ne ko doom mu ne ah mu ne ko sama tànk yi dafa amoon feebaru sedd li ma ci yëg ci sedd man alaaji Malick si fukki ponkal boo leen ko séddalee woon ñu partagé ko bu ñu xëyee du ñu jóg boo jëlee bombat bi ñu baal jël Yékini sama xarit bi Modou Lo jël Eumeu Sène gonte eh, mbo ponkal yi ci arène bi li ma yëg man Malick Fawad di ci sama tànk droite bii ci métti boo leen ko séddalee ku ci xëy dañ lay yenn yóbbu hôpital te rus naa koo tudd teewumaa jàngale teewumaa dem ci jàkka ji teewumaa dem ci tool yi teewumaa teew ñëw wasif mu ne wa rabbi ni bil qada rabbi musabbirani ala balaay bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahman ya allah شكرا ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا رحمن يا الله ragal yàlla gi maam Maodo amoon radiyallahu taala anhu daf ñuy delloo sa suratu Ali Imran mm-hmm. yaa ayyuhal wala tamutunna illa wa antum muslimun dimension spirituelle la xaqa mm-hmm. tuqaatihi xaqa la si ajmaali toll woon allahu akbar Pape Hann yënga ne si ajmaali benn yoon laan lekk ci bis bi ah mm-hmm. na loo xam ne néew na tudd def na ko vingt cinq ans yi mu mujj dund benn lay lekk ci bis bi dund na 45 ans guddi gu jot mu julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi xaaju kaw rakka bu jub bi xaaju suuf muy tolloog wëlli yu 45 ans yi mujj a dund guddi gu jot dina julli ñaari rakka première rakka baqara ba suuratu kahf deuxième rakka mariam ba minal jinnati wan naas la ilaha illallah nahnu qawmun la nakulu hatta naju Ablaye Sow nettali na ko nettali na ko maam Alaaji Ablaye Sow dinaa ci ñëw waxul maam Alaaji Ablaye Sow bi ci des mooy benn yoon lay lekk ci bis bi <laughs> du lekk ceebu jën. Hmm? du lekk mburu du yeey gerte. Hmm? du naan ndoxu robinet du naan ndoxu teen du naan boisson du naan canette du naan kafe du naan meew du lekk mbaxal. du lekk damadaa du naan soow du lekk yàpp du lekk ginaar. du lekk maafe. Sadio Mané du lekk sulux yii yëpp lekk ko. waaw du ngeen ma laaj lu muy lekk. lu muy lekk lu muy lekk waaw dañu jaaxle mbay. laaxu daxaar lay lekk laaxu daqaar duñ ko suukar duñ ko xorom. lu tax mu ne boo ko xoromee day joxe appétit. Ah. te appétit kuy wut lu neex a koy def tabakk na laaji Malick waru la am lu neex. su ma ko ñemee yàlla laaj ma ko. du am xorom day neex lu neex yii rus naa koo lekk yàlla di ma xool. te buy lekk du tibb sëriñ Hadé ko nettali boo demee ci téere Cheikh Tidiane Gaye bi Serigne Hadé Serigne Cheikh Tidiane Gaye nee na Serigne Hadé ko ko wax. buy lekk du tibb day jàngale nu ñuy lekkee nu ñuy lekkee ci sëwiya bi mm-hmm. ne kuy lekk da ngay raxas sa ñaari loxo toog téye bool bi di lekk di xool ci sa kanam ah. benn waaye ne ko si ku fàttee wax bisimilah ba mu ne juróom-ñaari tibb ndax mën nga ko dabaatal mama laa ji maal ne ko as gor ñeme naa lekk juróom-ñaari tibb te di ko te ko tey xanaa day xaw juróom-ñaari tibb juróom-ñaari tibb ci biir ay waaye loolu de foogoon naa ne ku ma defarus na ko mm-hmm. fukki yeeg juróom benn donc xam nga lu tax bu ne du lekk laaxu bi saab ñu ne ah mu damay bañ bisaab bi. Mm-hmm. ci taqwa bi ngay wax mm-hmm. xaqatuqaat yi. Mm-hmm. damay bañ bisaab bi ñu ji ko ci diggu jàmbur. ñu dem buddi ko indi ko jaay ko ci marché bi sama soxna wala sama taalibe jënd ko ñu togg ko ma lekk ko Maodo na ma coow li ci nga bokk. <coughs> ndax bisaab ba ko ko bind ca diggu jàmbur la wala moomu ko te su ma la tus alu na yow ma isin anil naimi ay anil xalaali yàlla nee na li dagan laay xisaab li daganul xam nga xam naa bul wax. li ñuy réglé mooy li dagan. li dagan la yàlla réglé li daganul kay moom. du ko xam nga yàlla xam na. allahu akbar kon yi daganul daal dañuy li daganul moom bul wax. wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun alamadi ilaykum yaa bani aadama allah taabudu shaytaan. ngeen la inni lakum minhu nasiirun mubiin ngeen la. gaa yi taxawee ne la gaa yi taxawee ne. lu ngeen di xoolee haazii jahannam. haazii jahannam latii kuntum tuu'aduun wal yawma bimaa kuntum takfuruun al yawma naxtimu alaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun oh. keroog la tànk taxaw na yàlla kii maa ko maa doon dox mu seeti ndaw sa loxo ne man de ba mu demee ca ndox ndaw sa maa ko raay. <laughs> loxo buñ ne man de maa ko fóon. nga ne noppil ñu ne la ñaaw bañ antaxana laaw antaxa kulli sey yàlla nee na ñun nañ wax tànk foo mos a dem wax eh, loxo loo mos a wax bët loo mos a xool làmmiñ loo mos a laal ko wala tax fu ma laysa laka bi ilmun illa sama wal basar wal fuaada kullu ulaayka kaana anhu gàttal leen tànk yi gàttal leen tànk man yooyu détail laay bañ mu fekk du ma lekk laa ko ma lekk laa ndax damay bañ mu ma ci ne ndeke ko ko jënd sax man sama xaalis leew na léegi léegi sama ko jaay mu fu mu ko jëlee. mais lu lekk si yàpp. lu tax lu ma lekk yàpp mu ne damay bañ gàtt bi ndax wóoru ma mos naa ruur toolu jàmbur. allah ñu ratt sooma wala yàppoo ñu jox ma ko xaqatuqaati asar yaa ma ci yóbbu. waaw enseignement. doo lu muy lekk Pape Cheikh Diallo. lu muy lekk laaxu bisaab duñ ko suukar duñ ko xorom. laaxu daqaar laaxu daqaar ñu ne ah mu ne Ablaye Wade ñëw na fi indi na gowaanaa daqaar ñëwul. Ah, Kaane njëkk a ñëw. Malick Sall ñu ngi koy nuyu suñu frère. ak moo yor Reva. nga hmm. daqaar amu ca. plan Reva. plan Reva daxaa amu ci daqaar yàllaa ko saxal. kenn eh, xamul fu mu ko jëlee. man damaa gëj a dégg Dakar sax. Sadio Mal ne Dakar gi yàlla saxal ci sama tool bi ma goral sama bopp ak dugub ji ma bayal sama bopp ak ndox mi ma gas sama teen ñetti yi laa composé lekk ko xanaa lu yàlla mën a mën a laaj nag baal ma ñett yi. moo tax njaay metti. tey dégguloo Sadio Mal. jàng jàngale bay bay te buy lekk du tibb. Hmm? nee na rus naa tibb di ŋaang nit di ko gis. Hmm. dafa am ay muqaddam yu ko seet si Seydi Malick jox leen gura Pape Hann xam nga ne ku yëy gura da ngay tabe te ku tabe du doo dem safara nit ku tabe du dem safara julit bu tabe rek première laisser passer aljana mooy julit bu tabe hmm. Hmm. aljawaadu laa yadxulun naar moo tax mag ñi daan yëy gura sëñ kër Si mën Mansour ñëpp daan yëy gura lu ñu ma sàmm dañ koy joxe yàlla moo tax da ngay fell am yëy yëy yëy <laughs> Mawlaay Maalik mag ñi seet si ko mu jël doomu gura mu jël gure gi def ko ci palaat ne Cheikh Hadji Mansour doomam séddale ko mag boobu Mame Mansour xam nga ñaataat la am sept ans Mame Mansour di ko séddale benn mag ne ko damaa bëgg a barkeelu ci yow doomu guro bi ma sa baay jox yéy ci ma yéy ci ndax ma barkeeloo sa baay ñemu ma koo sa baay Mame Mansour cekkati ko seqati ko seq ko nuyu Mame Alaaji Maalik fayu nee na dund naa ak sama baay benn yoon la ma mos a yedd mooy keroog lu tax mu ne ko maasul li ma yaakaar ci yow ak li ma def ci yow pour soo toog ay nit toog ngay sàqami ñu lay xool xale warta sàqami ci kanam ma te boobu juróom-ñaari at la juróom-ñaari at am sàqami léegi nag amal sa doom boole ko gan ginaar léegi nga toog léegi léegi nga rus pooju gauche ba lay jël bu droite ba xëcc dënn ba damm looso taj nga naan ko toogal déet du toog nii la meloon may ñu jàmm la ilaha illallah ci àllin mii fu mu jëm ñun ci guddi gi. oustaz dellu si waatal foofu. ma dellu si foofu. waaw mu ne du lekk Sidi Hadj Malick radiyallahu buy lekk du tibb. kenn du ma Maodo. doomu laaj bi muy lekkee. muy dugal loxo yi ci biir Serigne Cheikh Tidiane Gaye ko bind. man Maodo génn adduna ba def genn wàll siècle man may gën adduna lu ma la wax ci Maodo dama koo liir mbaa nit ku wér wax ko. ko du ma inventé rus naa ko. déedéet lu ma la wax ci Maodo rek xam naa cëslaay la. Hmm. nee na day jugal loxo yi laa ci baat ci daqaam ci laa daq ba mu tax mu mar baaraam yi dugalaat ba mu takk mu mat dugalaat ba mu takk muy mat ba muy sept fois mu ne alhamdulilahi lazi at amani min baadi joo bu ko defatee suba ci heure ba la te xam nga heure bu mu daan lekk diggante timis ak gee diggante timis ak tàkkusaan dinaa la wax emploi du temps ci lay def sunnaango moo tax sëriñ Babacar si radiallahu taala anu mm. alhaarifu billah mm. alqutbu arrabani boo masaana toog ci wetam nga ne alhaaji malik si mu ne ub insaanun de walakin ruuxahu malakiyu oh. la ñëpp day lekk day naan waaye waxu malaaka la yàlla monteel xam nga lu tax maam laa mën soo def na vingt deux ans laa dund ak sama baay mosuma koo gis mu ne la xalilu naw men wa aklin alla minhu sharabun bul way siidi maa ngi ciy ñëw néew ma du lekk nee na dund naa moom vingt deux ans ñaar yoon laa ko ma gis mu doon naan ndox ñaar yoon laa ko mës a gis mu naan ndox Pape An magama nettal na ma maam alaaji Malick da daan wóor ci weeru koor ba heure bii mu ne tànk leen ci ndaami jox ma ñu tànk ci li jox ko mu guux ko ñetti yoon gallaxndiku ko lekk benn doomu tàndar ma dem maam alaaji Mansour ne ko waa papa yow damaa gis ndox mi boo gis na da nga koy yàbb mu ne ko dama koy guux pour teral mbàcceer bi waaye damaa gént gis yonent mu jox ma benn kaas ca Kawsara keroog ba léegi ndox safatuma bu ma ko sexee day day wex ci man ndax Kawsara ku ko naan doot lépp sax dara doot la sax inaa atte naakal Kawsara asalna bi war oh. xarit na sani ak Sadji Malick homme de dimension neexu la waxtaanee neexu la waxtaanee mm. boo ko waxtaanee rek mu am lu mu jur moo tax dañ ah, laa naakulu hatta najua wa isa akal naa oustaz oustaz Pape Anne la Aline mi fu mu nekkoon mi ngi mi ngi mu ko xawoon na fii la dëkk ci des mu ngi fi woon. bi ci ah. des Pape ma wax la leen Papa. Ah? ci alaaj Malick nga ma laaj rek ci laa ne de. mais ba tey yaa ngi ci kanay si. mais kan mooy si alaaj Malick. commencé gudd ah. dinaa la wax léegi manaaqibu dinaa la wax aadaabu ay tegginam. dinaa la wax muqaddama mi. dinaa la wax téere yi mu bind bu ñu ko temps bi maye. dinaa la wax dinaa la wax. incha allah balaa ngaa yeggal loolu yëpp corona bay dem balaa ngaa yeggal loolu yëpp. waaw corona dem. kon incha allah rabbul alamin yàlla na corona. amiin si alaaj Malick danga may laajaat kuy moom si eh, Papa. waaw. sama alaaji Malick mooy nit yàlla bu mos a dem jàkk mos a dem jàkk loolu mooy lan sëriñ si dañuy tabax jàkk tabax daara tabax kër dëkk ca kër ga ak njaboot ga taalibe yi dëkk ca daara ja ñuy julli ji ca jàkk ja di jàngale ji ca daara ja di tëddi ca kër ga ma alaaji Malick tabax kër njabootam dëkk ca mu tabax daara taalibe yi dëkk ya mu tabax zawiya ba moom dëkk ca di dem ca kër ga moom demul jàkk daa dëkk ci jàkk di dem kër dooma laaj lu tax Maam Alaaji Maalik nga dugg ci biir jàkka ji quatre mois moins dix du matin mu ngi génn ci jàkka ji mois moins dix te du yeesali njàpp ah non boo bëggee waxtaan si Alaaji Maalik homme de dimension la daloon Cheikh Oumar Fouti Taal boo toogee ci wetam ne Cheikh Tidiane ku ko wax ñu ne amu mbaa yor na jàpp hmm. mbaa mësoor na mbaa ragal na yàlla mbaa jublu na penk ñeent yi comme daje ci yow tudd na ci yow waaye garaat yooyu la yàlla def ci maam Seexul Haaji Maalik radiyallaahu taala ma ñëwaat ci ragal yàlla am Seexul Haaji Maalik dafa ne yaa rubba laylin bittu saamina ndeg xat yi mutajaawiban

مساجل حما موضوع هب صاحب والله خاتم بسام بكفى شينت بي يا مرتهى والله آمالي يا رب الورى دق المولى إني أتيتك لا بسام keneen si aj Malick waaye may nuyu waa daara ki nag <laughs> ca daara ja laa jógee waa daara jépp sunu mudir Oustaz Pape Ndaw sëñ maam Ousmane. Pape Ndaw. waaw ah, di nuyu. maam Ousmane si maam Ousmane si. suñu mhm. xarit suñu soppe. Eh, Ibrahima Ndiaye imaam ñëpp rek. macha allah moom du Kébé. Ibrahima waa Daara ji ñun ñoo ñun la sëriñ bi yarandoo. macha allah ñoo nekkandoo foofu. ba tey yaa ngi ci kër fii dafa mel ni. Maolay Mali waxtaan yëpp da koo synthèse Sidi dafa indi synthèse. Hmm. waaw du ngeen moo du may laaj lu tax. lu tax dafa mel ni Alioune Diagne wax yëpp dañ ko ne waaw Maodo foo ko jëlee. liñ wax yëpp nan la mën a nekkee mu ne huwa sirruna Mm. huwa nuuruna mm. huwa majduna mm. li ma am huwa moom rasulillah siruna mooy sama secret du dara sallallahu alayhi wa sallam ma branché roy ko ba mu branché oh. huwa nuuruna mooy leer gi ne Tiwaawan du leeruk Alaaji Malik huwa rasulillah nuuruna huwa moom majduna mooy sunu tedd ba sama sët ku ko xool doo jaawale kenn Pape Anne wax naa ne si Seydi Hadji Malick posé na benn question. Hmm. keneen ku ko posé woon ku dul Maodo doo am réponse bi Maodo am. tey. muy hmm? lan. waaw yéen li ma nekk ak yéen muy tariqa tijaan bi hmm. ak diine jéeg jàkka jéeg wasifa wu subaa ngoon bu ma demoon ba ëllëg ma teg ko fi indi la neen nu ngeen du def ku ko waxoon sa njaboot ñu ne laa ñun kay la wax rek ah ñun kay ah <laughs> ñun kay ñu osé ne ko eh xam nga lu xew boo liggéey da ñuy may jàmm dañuy xam ne la dal du jàmm. bis boo ñu waxoon ni. bàyyi boo ñu bàyyi leen lépp bàyyi leen li ma ne leneen diine ju leer ji tariqa tijaan yi bu leer bi wasifa suba ngoon jàng alquran bëgg say bokk respecté képp kuy doom ku daax nga xam ne tariqa Cheikh na Tidiane yi dafa ne sama tariqa ñetti tànk la am ñett. ma ko hmm. sa baaraam at tabaxuru fi ulumil muxtalifati uh-huh. maa ñaan man Seexu Tijaan sama maam rasulullaay mu may ma sama tariqa tariqa xam la xam-xam la réew moo dem quartier boo dem ruq boo xam ña fa dàq jàng nekk fa ay super intellectuel sont des Tijaan mmh. man mmh. maa ko ñaan dama laaj benn mooy ban mmh. istimaalu sunnati nabi jumlatan wa tafsilan lépp luy sunna yonent bi taalibi Cheikh da koy appliqué ba mu jeex bi jeex ba nga a waxu bu ahlillaay jamian kuy nit yàlla ñu bëgg la sopp kuy nit yàlla taalibi Cheikh yi ñëpp lañ bëgg parce que dafa bokk ci sàttu tariqa tijaan boo mënta respecté yeneen nitu yàlla yi Cheikh Tidiane ne la baal ma fi sama kurus. ku bëggul beneen nitu yàlla rek bokkoo ci man. Mm-hmm. kuy xas nitu yàlla bokkoo ci man. macha allah maam Alaaji Malick ne mag ñi waaw su ma ko fi tegoon indi leneen ñu ne ko ñu ñaanal la taxam lañ la dal du jàmm. <laughs> ma ne ku posé woon question boobu boo moytuwul dina bari ñu la dafa xamoon nit moo wax ne wa si siyamil aalimi an yakuna aarifan bi ahli dahrihi yaqina borom xam-xam dëgg mooy dégg jamono mhm, borom xam-xam borom xam-xam dëgg day xam jamono dégg jamono fu jamono toll mu mën koo peese ak li muy def mhm, mhm. moo tax mu ne yaa saalikan sunan tijaani mu'tasifa dayata umraka fi raqmin ala almaai wa saamili l aqla alla allahu yaftahuhu hatta tumayisa bayna addaadi wa addaai Eh, mais si naan tey bu ñu fi naree nekk ne rek kanay Maodo dañ fi am weer. Ah, kanay Maodo de man léegi Assane du luy jeex. non il faut nañ dem ci oh, oh, deuxième oh, question bi. waaye xam nga lu ma gën a impressionné si Hadj Malick nga ñëw ci beneen question. mais Cheikhouna Tidiane li ko wër ci ay muxaddam. maam Dinin Misri yi. Mm-hmm. Mahmoud Kurdi yi. Mm-hmm. Ibrahim Rayaax yi. Mm-hmm. Alioune Harazim Barada. Mouhamed Avi nitu yàlla yi. ponkal yooyu ñoom ñëpp Cheikh jox leen wird suba ngoon wasifa ngoon kese wala suba Maodo osé ne su wasifa suba ngoon man borom der bu ñuul bi maay indi boobu. te day sax mais Cheikh Tidiane wasifa suba rek. wasifa suba rek la fi andi wala bu ngoon. radiyallahu taala benn ci suur benn ci suur bi mu xaddamu Cheikh Cheikh Tidiane loolu la def. waaw gaañ ñu benn weer. Maodo Maodo ne non. ñu ne ah mu ne kenn ku nekk sa kër baay ci yéen ñii fi toog. ba nga ñëwee fekk sa kër baay muy sàkket fexe nga ba muy seng. bu mm, oh. fekk sa kër baay di seng fekk nga muy terrasse. ku fekk sa kër baay di terrasse def nga ko étage kon bu dee ci àdduna ma war a taxawu Cheikh Tidiane mi nga xam ne moo doy loo Cheikh Oumar mu doy loo ma ma dooleel ko ci loo xam ne bu ñu demee ci alquran gëstu ko ma ëddi ñu ne Maodo bindal mu woo mu ne wa waxtuwa sabaau awil masaau jam'uhuma fa xasanun rabaahu boo defee suba baax na boo defee ngoon baax na ñu ne ah mu ne waaye boo xëyee for 10 000 Pape An Aline xëy for 10 ngoon mu for 10 000 xëy for 10 000 Aline gont for 10 ngoon mu for 10 bu weer jotee buñ compté kuy ëppale ñu ne borom subaa ngoon mu bëgg ma sama taalibe kenn ëppale ko anab ca kanam yàlla yàlla nee na yaa ayyuha lazina subaa ngoon laa ko soxla Cheikh Tidiane xam ne bu commencé subaa ngoon mu dis mu bàyyil sama xalifa baa ngi ñëw ñu ne kan mu ne alaaji ma boo demee réew di Cheikh Tidiane suba ngoon la ñuy def te Cheikh Tidiane bàyyi ko fi grâce à maamu sëñ oh, ñëwal teer sëñ Hadji Malick si na ngoog ni ko alaaji Pape ni ko alaaji Pape Cheikh Diallo waxee ni ko oustaz Alioune Diagne waxee Maodo xajul si génn guddi xajul si quartier général ah, waaye dañuy mosandi rek fa tabarakallahu mm-hmm. masha allah tey jii bu ñu ko toppoon si liñ ko njëkkoon laaj kan mooy Cheikh Seydil Hadji Malick mm-hmm. radiyallahu anhu yaakaar naa wax naa ko corona bi dina dem te duñ fi jóg <laughs> ndax dimension bi nga xamante ni la toll mais ñu siy ziar soxna Umu Xayri si Dabaax suñu ñuy topp bu baax a baax yaa wax naan yaay um bàjj woo na ma léegi suñu bàjjam ay si ñaanal ñu yëpp ñu ñëpp a ñu woo. yaa ngi may wax naan tonton Mara Dieng toj toj na ay télé toj na ay télé moom xam nga moom xam nga suñu njabootu maam Fatou Dieng Maysa. Fatou Dieng Maysa la ndeysaan. maam Fatou Dieng Maysa moo yor sama sëriñ sëriñ Babacar si Abdou sëriñ Babacar si Abdou maam Fatou Dieng Maysa. Mhm. mbooleem kuy dund ci kër Sidi Hadji Malick sant nga ko gërëm nga ko ndax taxawaayam ci maam El Hadj Pastef. yaa Fatimatu Zahra. yaa xayra amisati. ko waxoon ci maam Fatou Dieng Maysa. faatoo la ko def ci moom. oustaz Alioune bi ñëw. ah mm-hmm. ñu dem fële. am na ñaari maam yu baax yoo xam ne yile mm-hmm. ku ci nekk sa sët woote na. Mm-hmm. muy Thierno Amad eh, Thierno Bachir Tall. ba ca Louga. nee na bég na lool. ah kooku mooy suñu sëriñ. nee na daal tey li mu yëg. gëj na ko yëg. dëgg la mi ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fante sax. bu baax ñu ngi koy nuyu. sëriñ Maodo Cissé bu Pire. waaw waaw waaw. moom itam ne Amadou Mbaye Garmi maa ngi jabatu rek. maa ngi ñëw ci baayam ci kër gi xaw ma nu may def. maa ngi ñëw ci baayam. nee na bég naa lool kontaan naa lool. Mm-hmm. di la wax ne daal tey daal tey. Mm. waxuma la daal réew mi. waaye daal amul benn benn benn nopp bu tegu ci kaw laal tey. Mm-hmm. loolu daal yàlla dogal na ko tey. kon ñu ngi lay ñaanal yàlla sàmm la ci guddal sa fan. amiin bi jaay rasulullah te ñu bokk Baye Gar bi jërëjëf. sëñ euh, yow nag Baye Gar bi xamul tax ma bëgg la. Mm. da nga niroo kàddu ak mbaa El Hadj Mansour mbay moo ko yar ah loolu la tam ñun Baye Alaaji Mansour lañu am alhamdulilah moo ko yar mbay yàlla fi na turandoo Serigne Alaaji Mansour moo ko ne at moo passé mi ñëw ko ko dàq allahu benn at nawet la fanaan ak moom la nekk moom jog saaw rek garantil ko mooy la ma waxoon rek ku ama góor yàlla affaire sa dara dootul tax dëgg la de dëgg la de ah, macha allah yal mm-hmm. yàlla guddal fanam te wéral ko ndax am na ñoo xam ne seen dund si réew mi mm-hmm. bénéfice la oustaz Ali tey bu ñu ñëwee wax nañu li nga xamante ni si tënk rek mm-hmm. kan mooy Mamadou radiyallahu anhu mm-hmm. tey alaqatuhu bi mm-hmm. tullaab maanaam Mamadou radiyallahu anhu relation bi mu amoon ak ñi ko waroon si ay ndongo ko taalibe lan nga ñu siy wax Assane ma wax la leen ah. dinaa la wax léegi matière yi Maodo doon jàngale yëpp dinaa la ko wax matière yi mu doon jàngale heure bi mu daan jàngale dinaa la ko wax mais daf ci am bis boo xam daanu ko jàngale benn waaye dafa ne lan mooy kiimtaanu maam alaaji Malick radiyallahu taala anhu ma ne ko ñaar duma la wax benn karaama mbax ma laaj ma nee na karaama moom ku koy tudd jëm sama kër bu ma tudd bu ma man newuma ci karaama dunu ma ko ñu ne yàlla ta mu ne innal karaamaati xaydum di rijaali mm. fala tasif li nafsika innal wasfa lillahi loolu mooy la soo amee karaama ba di ko jaay nit ñi yelloon na ñu ne ah mu ne am nay jamono amoo ku judd am ndey ak baay ñu génte la nga am bis ñu di la dëjal di la dugal ci biir suuf ngay tëdd lu feeñ ci yow delloo ko yàlla mi xam ne moo lay mujjee moo gën nga Maalik a baax radiallahu taala anhu dafa am benn bis daanu ko jàngale nga ma laaj boobu bis mooy ban mooy weer wu jot bay na foofu ak taalibe yi nga ma laaj mm-hmm. dernier àllarba bi mujj Sëriñ Maalik di ko jàngale xam nga lu mu koy def mm-hmm. leçon morale leçon morale la koy def day ñëw toog rek ñuy waxtaan ci àdduna ñu di ko poser question ci dundam ak nangam mm-hmm. bu ñëwee xam nga nu muy ubbee waxtaan man kat yàlla damaa natoo ñeent bi ci njëkk mooy diine ji ñaareel bi mooy tariqa bi mm-hmm. ñetteel bi mooy tool yi ñeenteel bi mooy dërs bi juróomeel bi mooy zawiya bi lii ay sama métier aw ma juróom benn aw ma juróom ñaar ku ci gis lu doxul waxal waaye kii ku ko respecté wul say oh, taalibe doo leen ko démocratie interne démocratie ku gis lu doxul waxal chaque dernier àllarba loolu lay wax ci zawiya bi dinaa la wax lu mu mujj dénkaane bi muy dem bi muy waaj a faat mm-hmm. ñeent yi mu dénk taalibe yi téyel ma ko paat dinaa la ko wax baax nga xam digganteem ak taalibe yi. Mm-hmm. loolu loolu dernière question la. ca dernière question yi. Mm-hmm. benn taalibe bu ko si ajmaa laajee rek mu ne ko man si si loo wax rek. <laughs> ñaareel yoon mu woo ko mu ne ko man kay si laa wax rek <laughs> ko mu ne ko man kay si laa juróomeel ba woowu ko juróom-benneel woowu ko waa ji jaaxle ñëw ne ko si loo ma déggal mu ne ko dara a ah, da daan woo ñëpp woo ma tey woo too ma mu ne ko déet damay bañ a yàq sa temps man Alaaji Maalik kuy jëfandikoo xelam di gis lu baax mu wan ma ko gis lu bon mu wan ma ma gën caa góorgóorlu moytu bëri kooku laa soxla koo xam ne sama xel rek a ko doy ma bañ koo tardel te ma wax ak sama xelu bopp ànduma ak yéen ci maa fi ne damaa ànd ak yéen ci nañ ànd dem ci yàlla. allahu akbar. keroog bi muy immigré jimaaw Tiwaawan ji ah, wax ne Cheikh Seydil Hadji Malick tubaab koo may benn mètre ci Sénégal juum nga waaye duñ ci dem polémique laay bañ bi ñuy immigré jumaa ji ci Tiwaawan xam nga lu mu wax. Hmm. mag ñëpp dañoo ñëw sañse néew di ko jël jël si ku ne sañse di ko siikar pour jël si ko mu ne sëriñ sëriñ Alioune Guèye waaw coow loolu lan la ak hmm. suñu suñu maam euh, nu mu tuddati euh, papay Baye Mansour Mbaye déedéet Baye papay sëñ Mansour maam Amadou Mbaye Maodo Amadou liir mi lan la hmm? mu ne ko si maali gaa yi lay jël si mu ne pour lan mu ne julli ji jumaa mu ne déet julli jumaa lu ñu ciy jëli demal Tiwaawan ilaa naa haza amul benn jumaa wala jàkk bu ko sant si di jiite amul jamais Sadio Mané nee na rus naa jël sama njaboot sax muy ne ci kanam nit ñi ñoo jàngal nit ñi ñoo yar nit ñi dañuy taxaw ci ginnaaw nit ñi ki ñu jàngal moo leen di jiite bu ñëpp dajee ñu jël kuñ jàngal ne ko waxal te lu mu wax mu doy bu juumee ñu toog ci rukk na bu ëllëgee waxee te noonu la yonent bi ànd ak ay saaba. sallallahu alayhi wa sallam. man man mu ne Amadou mu ne ah mu ne waaw. man ñi luñ ma jël see Malick li ko waroon def nag jënd naa titre foncier tabax naa ko ba mu yegg jox naa leen caawa ji neel waa Tiwaawan nañ seet ku leen doy muy seen imam Malick topp ci ginnaaw alaaji Malick rus naa imposé boppam ay taalibe. ndax aw ma taalibe ñun ñëpp ay taalibe Cheikh Tidiane li ma tee nelaw mooy na may def ba nekk taalibe Cheikh Tidiane bi Cees woo ni mu daan dundee Cheikh Alhaaji Malick ak taalibe yi nga xam dafa dafa génnee ci seen xol yi àdduna da leen a dimbale parce que boo demee ci hadiis yonent bi daf ne inna dunya mal'unatun wa mal'unu kullu ma fiha illa bi arba'in lu ne ci kaw suuf paap yàlla da koo rëbb bëggu fi dara ñu ngi sunu mbubb yi yàlla xoolu ko de étage yi oto yi may yàlla nee na du ma ci teg sama bët yooyu c'est faux ñu ne ah mu ne ñett bu ma xoolee àdduna rek man yàlla ñeent laay xool mm. ku téye kurusam di ma wéetal mbaa borom xam-xam buy jëfee xam-xamam wala ku bëgg xam-xam di ko wuti wala kuy sellal ndax man xam gu mu xam taalibe yi ak mën a defar nitam dañuy gas teen ba ca jeg saab ñu ngi nii suñu bàyyi Sidi Ahmed borom jeg saab teen ba ñu gas pap boo demee moo la teen ba diggante fas ak jeg saaw la ne mhm. teen bi def nañ ci weer teen bi mënta bëtt pour wax la Cheikh El Hadj ni mu xamee jamono ak ni mu daan dundee taalibe yi ñu ñëw ne ko si ñaanal ci teen bi mun a ñaan ñu ne amu ah, ne teen bi bëttul ñu ne amu ah, ne xam naa li ko tee bëtt ñu ne amu ah, ne ñi gas bi ci taalibe yi am na ñaar ñu jubóowul am na ñaar ñu am na ñaar ñu dul tuddante. dem leen ngeen gisante ci seen biir bu leen ma nax. ñu dem dikk ne ko ah diw diw de mu ne noonu lay demee nañ baalante àq te muy dëgg ci ñoom ñu dugaat ci teen bi seet ñooñu baalante àq dugg ñu coqati ndox mu ne bëll mu ne xamoon naa ko. allahu akbar. Seex Seydi El Hadji bi ci des mooy dafa toog ci daara ji di jàngale buy jàngale. nit ñu ñuul ñi maanaam wolof yi ñun wolof yi wolofan gën a naq di yilif day jël saraa bi di liir saraa yëpp lay liir. buy jàngal tukkulóor yi buy jàngal tukkulóor yi kon tukkulóor yi saraa bi yëpp lay lii xam nga nit ku tukkulóor nax ko yombul lu leer nga koy wan boo ko wanul lu leer mu teg la fi wolof nag bu la xasee doy loolu wax boo ne weex na mu ne tàll nga ne ñuul na mu ne kókko nga ne xonq na du du lijjanti nu mu ñuulee nu mu xonqee Cheikh Ibra dafa teel a maîtriser ni ñu di ko jëw naan waaw moom yaayam baayam tukkulóor la moo tax tukkulóor yi la fomp bu leen di jàngal saraab yëpp lay liir ñun nag wolof yi ci yax bi rek lay yem ak ñun <laughs> mu dugg dégg ko pap pap weeru gàmmu jotagul de Sëñ Maali woo benn tukkulóor ne ko diw mu ne ah mu ne ko yënga ne weeru koor yi te feeñ na bu subaa la ñuy woor mu ne ko feeñ mu ne ko foo ko gisee maa laaj maa ne ko xoolal ci asamaan tukulóor bi xool xool xool ne ko ceerno miin de mi yaraani ay dara man de gisuma <laughs> ay dara mu woo wolof bi na ko yëngëne suba danañ woor mu ne ah mu ne ko mu ne ko damaa gis weer ma nga ne wolof bi xool ko ne ko laay simaali nga laay mu ne xam naa li may def ki nga xam ne lu leer nga koy teg ma wax ko li ci téere yi ñi doyloo sama dënn bi ma yem ak ñoom ci sama dënn allahu akbar gis nga esprit bi muy doxaleeg taalibe bi bi jees maam laaj ma radiyallahu taala dafa am benn naar bu jógee gànnaal bari xam-xam lool pour wax la ni mu daan jëflanteeg taalibe yi ba defar leen waaye yàlla da koo nattu bari xam-xam am turu yàlla di dem ci këru sëriñ di jàngale turu yàlla mu ñëw Tiwaawan moo dana mag ñi bu ko kenn laaj turu yàlla lu ngeen soxla Cheikh Tidiane jox na ma ku bëgg a defaru ma jox la waaye nañ koy teral ndax ikraamu day fi ndeke naar bi day toog magi Tiwaawan magi Sénégal li ñu gënoon a bañ ci àdduna mooy tukk mhm. fu mu dem ñu xam ne day tux ñu génne ko Seydi Malick ñëw woo benn taalibe ne ko naar bi ci kër gi lijjantil ma lu mu gën a bëgg kooku di lijjanti ba xam ne naar bi day tux mu ñëw ne ko Maodo jox ko xaalis ne ko demal fële jëndal ma póon mi muy tux joxal ma ko ko te bu mu xam ne maa ko jënd naar bi di tux di muqi rek buy ñëw ci jàkka ji tuuroo parfum Maodo di ko xool mu ngi koy nëbbu te Maodo jënd póon mi ba dara desul lu dul ñibbi Maam Alaaji Malick ne xale bi ko doon teral yow mi jëndoon poon bi xamal ne ko poon mi maa ko jam mu ñëw ne saa naar bi mu ne ah mu ne ko <laughs> na la póon bi nga doon jam ne moo doo ko jam mi nga mu ko déet fu nga ko xamee mu ne ko sa deuxième jour la ko laaj ma ne ko ma jënd ko jox ko ko te mu xam mu ne Alaaji Malick kër gu ma dem ñu génnee ma ma ñëw këram mu may jëndal póon te waxuma ko cër bu ma doon jox mu ma koy gën a yokk du ma gën a gore ma it tey laay doganal ci sama yaram dootuma naan dootuma tux póon kera la ko naar bi bàyyi demain. ne kullum riin bépp as cam su bëggal sa bopp dara mbaa nga bëgg lu baax borom ba ne kaare bi nee na kullum bépp as cam bu fekkee bokk naa Cheikh El Hadji jamono boo ko laajee loo gën a bëgg ci sa àdduna yeex wi ma ngay yéene ma ngay bëgg la nekk almunaa ca mébétam bi liqaa'ihi ci dajoog Cheikh Hadji Malick jamonoom ku ne la la gënal mooy dajeeg Maodo ndax xam nga ne boo dajeeg moom mu duyal la fa liqaa'uhu yawmal mu ne boo amee sansu su si Seydi Aji Malick benn bis mu defar la nga dellu ci seen bokk say bokk bu leen xeeb sens nga Maodo ku dajeeg moom sens la nguur a taxul nga dajeek moom bu ko xeebee kenn ku amul sens dajeeg Maodo sa ñaari Touré moo wax moo wax ñoom Pape kebe na leen amu leen sens. Mm. ñu ne amu ah, ne yéen da ngeen a sëriñ yu leen di jàngal ngeen dem jàng mokkal ñun dañoo dajeeg sëriñ boo xam ne boo waxee mu dugg ci sa xol nga mokkal te doo jàng. maam Khalifa nee na ma dahru deet jamono jaada mu mën a tabe ba andi. bi maani jamono ca la ma dahru deet jamono jaada mu mën a andeeti ngay wax. bi maalikin ci ku mel ni alaaji maalik fi Maodo sosoo ba keroo àdduna tukki ku mel ni Maodo dootu ñëw wa kamaliki Maodo ka dëxri ka dëxri marra ka dëxri foofu nag la ñuy taxaw ñu lijjanti ko ka dëxri marra gar mi yaa ngi may dégg billaay mbay sëriñ Babacar si dane lii lii ñëw ku mel ni sama baay dootu ci am seet loolu mën nañ koo dégg. lii ñëw lii ñëw ku mel ni sama baay dootu ci am. Hmm. li weesu it amu ci woon. Hmm. allahu akbar déggu leen wax la. wax la de. ñu ne ko maam Khalifa waxati nga musiba. rasulillahi. sallallahu alayhi wa sallam Cheikhu Tidiane. Cheikh Abdou Khadir Jeylaani mu ne déet da ngeen maa déggul. yonent bi ma nga juddoo màkk. 40 ans yàlla yónni ko. 13 ans mu taxaw màkk lu mu wax ñu ne du dëgg. fu mu taxaw ñi di ko sànni xeer wa jiima asabta aman fi quraysi sawa munaadiyan qawmahu wal qawmu fi lxarami mu gàddaay dem Médine am doole def fatu Màkka nit ñi da koo gëm kon kooku sonn na nit ñi da koo yaakaar Seexu Tijaan judd di jàng di jàng ba am vingt ba am dix-neuf ans di jàng ba am vingt et un nekk professeur complet di jàng ba yegg li mu awalu la ko maamam fee ñu jox ko wirdi bi awalu laam trente la waaw six alif benn muy trente-sept muy dund ba am li mu wëliyu waaw 6 la am 30 yaay 10 muy 46 ans mu nekk taajul aarifiina wa mu mu diim Pape An kooku sonn na doog am wala déet. Cheikh Omar Fouti 40 xare la xeexal tubaab bi 40 xare yëpp 35 yi moo ko gañ yi ci des dañoo niil. kooku sonn mu ne sama baay rek kese doom képp la baayam ak yaayam faawaatde wele ak Ousmane gisanteeguñ ñu bind ijaasa buy doxal àdduna bi mu di ko xaar ku dul alaaji Maalik mosoo ko am te doodoo ko am kon te dafa marali Maalik mi dari marra bi Maalik lil Maalik jërëjëf jërëjëf sëñ Sidi. Mm-hmm. Euh, sëñ Assane jërëjëf question bi doy na waar. macha allah mi ngi noonu sëñ Alioune yal na yàlla barkeel la. amiin amiin amiin kon ñu dellu ci euh, ca beneen studio bi fële ca kaw. Mm-hmm. Euh, fekk fa alxaaji Pape Cheikh Diallo alxaaji Pape. yow Saas mi ngi noonu. man li ma la laaj léegi rek laa lay laajaat. waaw sëñ Alioune mii fan la nekkoon. <laughs> des na ñeneen. ndax man dem naa ba mu yàgg. ma mm-hmm. bëgg a quitter plateau bi dem rek ndax niveau bi a xam ne nii yóbbu na fa waxtaan wi te ba tey waxaguñu kuy maam Maodo. mais waxagu ko ñoom xam nga xam nga ñoom oustaz Ahmed Fall ñëwagunu ñoom Serigne Habib Kebe ñëwagunu. ah bari na bari na ay kàngam ay njaboot ci kër Cheikh Seydi El Hadji Malick ndaw ñoo xam ni euh, façon xam-xam bi nu yoroon ni lu koy génne des na. Mm-hmm. te si naa mi mm-hmm. euh, euh, maanaam dafa ñuy mosal rek waxtaanagul. Mm-hmm. li mu war a waxtaan ci Maodo xajul ci plateau bi. wallaay xajul ci plateau bi kon alaaj Pape ah. ñu dellu ci yow. ba ca ñu dellu si waat. mu ngoog. <laughs> sunu baay bu baax bi El Hadj mbay Mbaye. Mhm. nee na Amadou Mbaye garmi sonn naa lool mi mënu maa tëdd. baay Mbaye mhm. Diop dégg ngeen jaañ sama waa ji. nee na sama woy juróom dafa taxoon lool ak Sidi Hadj Malick. Mhm. radiyallahu taala anhu. su ma saan jël kaddu. sama baay Amadou Mbaye Maodo mooy nekk jotam moo koy wax. noonu nag dina taxoo tamit ak bu Boubacar. ak rakkam yu baax yooyu de. waaye nee na Alioune. nee na xol bu sedd bu fekkee ne doy na ñaan. xolam sedd na guy. nee na bu masaana mayee kenn fii ci zawiye Seydi Hadji Malick ñu tej goro gi Maodo ne goro gi li mu firi ana faate bi ak ak salaatu ala nabi bi ndax doyul mhm. nee na kenn du Maodo mhm. nee daal tey daal dëgg-dëgg bégam ak contentement tey tey mhm. nee na daal bëgg naa tëddi mais mënu ko mhm. nee mi ngi lay ñaanal yàlla man a sàmm yàlla na yàlla sàmm di wax na nag Rasoul Ndiaye transitaire bu mag bi Amadou Mbaye gar bi ah nee na bégg na waaye man tam kontaan naa de léeg-léeg message tab bi de may mbay Pape euh, euh, Baye Seex xanaa bu suma mu yóbbaale la rek su ma dee dem moom du ma la fi bay <laughs> macha allah ci barkeel sallallahu alayhi wa sallam tey tey defe naa ñëpp bëgg. laa ilaaha illallaah euh, internet bi moom toj na. Twitter muy Facebook muy Instagram. ki ñuy waxtaanee ni mel. waaye ki koy waxtaanee itam. pédagogie dafa am solo. lool barki démb loolee. rafet lu ci taxawaay Baye Ndiaga Diop. waaye tey Alioune Diagne ñii mu ñëw def wane waat na am nay mag waaye am na itam ay borom xam-xam yoo xamee ni ñoo gën ay professeurs yi ci université am pédagogie boo xamante ni boo toogee rek jàkkaarloo ak sa télé. Hmm. dañoo comprendre ni mag ñi lépp la ñu réglé xoolal matières yi mu tudd ni euh, Maodo jàngale na ko. te ba léegi waxaguñu kan mooy Maodo. Hmm. comme quoi wax ji mooy ñëwaat ni Maodo xajul ci quartier général. ñu ngi jot nag ay yóbbante mais neex na waaye ñu bëri itam mm-hmm. dañuy bëgg ñu leen di baaxee ci ndimbal yi euh, moo tax lu nu aalu aalu ci émission bi ñu ngi wootee en même temps donc bu ñu leen mënee di dugal en même temps ci numéro téléphone yi 88 628 22 22 wala 88 628 04 jot nañu fi nag ay yóbbante yu bëri yoo xam ne ni mu ngi jóge fu ne ci àddina ay 10 mètres Jesner euh, euh, maa ngi gis jeune Euh, maa ngi gis euh, euh, jeune Tidiane yu New York ci jiitalu soxna Aïda Diagne. Hmm. ak ñoom Alioune Sine. techniciens yu mag yooyu nekk foofu ca New York ñu ngi def yóbbante bu am solo jagleel ko sëñ Alioune Diagne ci kontaan gi ñu kontaan ci taxawaayam tey ak pédagogie bi nga xam ne ni daanaka moom la ñu woon tey ci guddi gi ma yot fi jot fi itam yóbbanteeb sa taalibe Serigne Habib bu borom daara ji. bu New York Oustaz Pape Anne moom itam jox na ma yóbbante bu toll ci un million pour ñu euh, jébbal ko sëñ Alioune Diagne donc voilà Mansour voilà donc mu borom daara ji Mouhamadou Rachid bu New York Rachid waaw waaw moo ñu moo ñu moo ñu jox ah Rachid mooy taalibi sëñ Habib waaw kay waaw ma nga New York si na Alioune Rachid nee na hmm. jox na la million addiya Cheikh Seydil Hadji Malick voilà ak yeneen mi ngi noonu ak yeneen yóbbante yoo xamante ni euh, ñoo ngi koy jot te di ko rafetlu lépp rek euh, guddi gi euh, tàmbaleegul ndax ba tey waxo guññu kan mooy maam Maodo xanaa rek profité ci balaa ñuy contribution <laughs> tour de table ah <laughs> nañ ma may ba seen kër commencé gu ma. waaw moom kay commencé gul. nañ ma may wala ba seen kër yi demi sax. léegi xam nga xam nga xam nga lu may def. Ah. mën nañoo dem ba 6 heures du matin. waaw kay Maodo jar na ko ngir yàlla may ma. nañ dem ba 6 heures ngir yàlla Pape may nañ dem ba 6 heures. man na ma ko ba bi ma bi ma nee bi ma booba nee Maodo la ñuy waxtaanee. ma gis Pape An ma gis Pape An nag ni mu koy organisé ab njëgënaay laayu ndaale. Mhm. waaw man damaa teel a faggu donc mën nañoo dem sax ba 7 heures et demie euh, euh, bu ko defee comme suba dimanche liggéey amul mhm. donc ñu euh, continuer donc ñu ngi ndokkeel suñu xarit ci yëpp euh, wallaay ni ku lim juum suñu portable yi Euh, mu ngi toj ndax message yaa ngi jóge un peu partout à travers le monde daanaka euh, Sénégal yëpp yonent bi rek leen ñor ak góor yàlla yi nga xam ne ni euh, ñoo ngi leen di waxtaane dañoo tàyyi ci politiciens yi dañoo tàyyi ci débat yi dañoo tàyyi ci yeneen yi nga xamante ni amul bopp amul genn ñii ñoo jar a waxtaane ñu mel ni sëñ Aliou ñoo war di ñëw di toog di ñu dimbali ñun ñi nga xam ne amuñu benn xam-xam suñu jëm yu xeebu yi ndekete am nañu ay maam yoo xamante ni moo waxaat ko encore réglé nañu problème yëpp donc yàlla mm. suñu borom dëgëral la sëñ Aliou Sidi Ahmed maa ngi gis euh, waa Kër Fatou Seye Mbaye yi Kumba Gawlo moom daan na ko communiqué la yónnee xam nga tubaab la te yéen a bokk saago ne Birame moom def na communiqué mon frère je suis quand vous parlez de Mame Maodo je fier ah, te nga ko wax ci ngéwél rek mu ne ma bég na ma waaw ci barket ndeyam Fat Sey Mbaye ñu ngi koy gërëm Adja Kiné Lam mm. euh, moom it nee na kontaan na lool ci mbokkam bi ma mm. invité euh, tey ci guddi gi maa ngi jot daal xeetu message yu ne ku ma na nga na nga ñu na nga ñu na nga ñu jéggal léegi ñu jël ñu jël euh, téléphone bi mm. yi ak sunu xarit yi bu ko defee ñu mën leen bégal nee na tey ñu ngi jëm 6 heures ma yokkal ko ci une heure de temps muy 7 heures du matin <laughs> donc euh, ñu euh, teral leen ci ndimbal yi nga xam ne ñoo ngi koy séddale ci période bi la nga xam ne période du mas mbas la voilà Mansour euh, Mansour Jong ak soxnaam bànneex Euh, ñoom ku ne xam seen taxawaay fa Tiwaawan Aziz Ndiaye ku ne xam taxawaayam Malamine Fatim Bakary euh, Elimane laam suma waa ji ku ne xam taxawaayam euh, ci ci ci ci ci ci yoon wi donc ñu ndokkeel itam honorable député Yaya jàlloo ak colonel Fari Fari Sène Fall ñoom ñëpp ñu ngi rafetlu jotaay bi allo. allo oui. kooku. man la Aliou Diémé. Aliou Diémé na nga def. jéeme aleykum salaam alhamdulilah jërëjëf jéeme di kontaan trop si émission bi baax jërëjëf jéeme wax dëgg yàlla xol yi tooy jërëjëf jéeme macha allah sas papa nii maa ngi dëkk Grand Yoff yaa ngi dëkk Grand Yoff ngi dëkk waaw jërëjëf jërëjëf jéeme nu ngeen def mbas mi mbaa yéen a ngi moytu waaw ñu ngi sant bu baax li xam ne moom yàllaa ko dogal moom sant rek waaw eh, yàllaa ko dogal moytoog yooyu yëpp waaye boole ci Pastef dégg nga moytu bu baax. waaw ñu ngi moytu baax a baax. di déggee Oustaz a baax. jërëjëf jërëjëf. ndax ñoo ñoo bokk daayee alaaji ma dikkee Addis. alaaji ma dikkee Ndiaye yal na ko yàlla yokk yërëm. ndeysaan yal na ko yàlla yokk yërëm Mouhamadou Mansour jàmbaar ja ndeysaan koy ñëw dañuy waxal diine ji. daan na ma wax fa yéene na aljuma ju jot ma tànta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaaj ma dikk jaay borom hadis baas yal na yàlla yërëm macha allah Pape Cheikh bëggoon ci xéwal yi rek ah danga may wax rek tànn sa bala neex la bala neexee ma def ko dund bala neexee ma def ko xaalis bëgg ñaar yëpp ndax jamono soppeeku na waaye boo jox ma jël ah jamono jamono jamono metti na waaye am na say morom yu rang te bëgg nañ ci ma jox la ñaar wala ma jox la benn ah kon jox ma xaalis bi rek jeex na am nga fi ñaar fukki junni yu la quartier général may ah waaw am nga fi cent mille jërëjëf waaw jërëjëf yàlla na ko yàlla soppee xewal ma amin bul raccroché comme ça ñu yónnee la xaalis bi nga mën cee jot nu mu gënee gaaw ay ca très rapidement na beneen téléspectateur dugg koo dugg rek di nga am euh, lu ñu la lu ñu la tëralee euh, su ma xariti politicien yaa ngi réagir naa ma déet yow ñun ñëpp la bëgg kat xam nga wax ak àll dafa euh, dafa xaw a sëñ sëñ àllun mii moo ñu tax a àllu waaye ñoom ñëpp sumay xarit la ñu <laughs> maa ngi leen di ziar bu baax njabootu maire Oumy Diouf taalibe Alaaji Mansour si bal xaw mi njabootam yëpp euh, ñoom la ñu dénkoon Pathé suur euh, donc mu xaadam bu mag la euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel Maodo Malick Mbaye allo. kooku defe naa bloqué na ñu xool keneen ku nekk ci ligne bi di nuyu suñu xarit du Mbow. Euh, honorable député ab Mbow euh, moom it sunu xarit la suñu soppe la euh, yàlla na taxawaayam yàgg ab Mbow doomu cees la moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax ndax taalibe Cheikh yëpp kontaan nañu ñu ngi rafetlu jotaay bi on est en train de regarder actuellement itam ce qui se passe sur internet lu ñu yem sax des milliers et des milliers de vues Mamadou Ndiaye muy Twitter Instagram Facebook hashtag bi sañ na maa wax ni maam Maodo la waaw hashtag bi de Pape Cheikh la déjà internet yi ñoom seen bopp yëpp jéggi nañu hashtag euh, QGTFM 2020 dem créer seen hashtag Maodo Mame Maodo moom mi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee en tout cas xool yëpp sedd na message yi comme ni nga ko waxee jóge na fu ne réagir ci réseaux sociaux yi que ça soit mu Facebook Twitter ak Instagram surtout euh, YouTube bi nga xamante ni jàpp nañu bi ñuy doog débuté xawoon na tuuti am benn jafe-jafe mais réglé nañ ko gis nañ seen réaction yi euh, commencé na déjà ñoom nag surtout ñu ngi commencé di laaj ci ci jëmm ji ñoom nag xam naa ne sëñ bi dina ci ñëw jëmm ji surtout surtout euh, waaw rappel <laughs> ci jëmm ji non ndaw ñoom ndaw dañ lay imposer surtout euh, waxtaan bu am solo bi surtout ci ki nga xamante ne mooy El Hadj Malick Sy euh, Mame Maodo moom ñoom nag xam naa ne ci kanam dina ñëw ci question yi euh, rappel bi am na solo comme Pape voilà rappel laa bëggoon parce que bi ñu tàmbalee émission bi internet bi attanatul woon jotaay bi moo taxoon ay bëgg am ci mais voilà du jamais vu la ñuy gis boobu ba tey et c'est normal à chaque fois ñuy waxtaane góor yàlla yi dem ruelle Malmaison Paris maam Sira Konaté magu Pape Cheikh di euh, Mboña Konaté taalibe Cheikh la euh, moom it euh, bég na lool ci guddi gi tey ci télévision Futur Média ñu koy bégal moom itam à travers jotaay bi li nga xamee ni jotaay bu exceptionnel la Adja Alimatu Mbay bu France moom it defe naa fa mu nekk kontaan na Alaaji Xaaye Guèye moom it ñu ko ziar bu baax Moustapha Diop mbokk ndeyu Marcel Diagne doomu ndeyu Pape Sall Fass Bërigo ñoom itam kontaan tey ci guddi gi Seynabou Gaye Touré Euh, président Euh, conseil départemental bu Tiwaawoon euh, nee na moom it euh, kontaan na lool ñu ciy bégal Alaaji Xaaye Guèye donc nañ jël très rapidement beneen téléspectateur balaa ñuy àggali waxtaan bi ci beneen studio bi 88 628 72 86 ak 88 628 65 65 Ajaaro Xaaye Jaxate suma yaay taalibe Cheikh Akhan moom it dafa teel a toilettu def ay berndem ca këram lal si jaadaam di jàkkaarloog waxtaan wi tey ci télévision Futur Média Alaaji Ababacar nag kenn du waxati ay waxam ñu ngi koy ndokkeel moom tamit bu baax euh, Amadou Gaston Faye baayu Pape Laye ak Menge fay Khady Sarr moom itam taalibi Cheikh la euh, Nadoura ak ki xamante ni mooy euh, mbay Diop Dégène Diagne moom Pa Mansour Mbaye moom it kontaan na Adja Dada Mboup ak ki xamante ni mooy Émilie Gomis moom la ñu dénk Serigne Sidi Ahmed Dabakh moom it waaw suñu yaay la yàlla na taxawaayam yàgg ñu ngi koy mm-hmm. ziar bu baax soxna mu xayri euh, moom suñu papa Maodo si nga xam ne ñun moom rek la am yi nga wax ci euh, maam Maodo yëpp dañ ko gis ci moom danga nga koy seeti sax bëgg a toog ci suuf mu ne la jógal man mosuma gis euh, nit ku ma yéeme noonu Serigne Maodo yàlla na fi yàgg te ànd ko ku wér ma Abdou Aziz da baax la bàyyam tudd ku ko mës a dab baax nga yàlla na sunu borom euh, euh, taas ñu ci barkeem waaye bàyyi fi sunu wayjur boobule. Euh, donc très rapidement beneen téléspectateur tonton mag na nekk rek ñu jël ko te àggali waxtaan wi ndax sénégalais yi bëgguñu benn pause ci li nga xam ne nii sañ na maa wax ni Alioune Diagne professeur Alioune Diagne sax laa ko laa ko tuddee Néné Fatoumata Tall madame Mbaye ministre de la jeunesse moom it mu ngi lu jotaay bi ay addiye la ma yónnee waaye duma ko fésal moom nee na ndaw ñi it école baax na ak yooyu yëpp waaye nañu bàyyi xel ci jàngale mag ñi concentré wu ci xeetu jotaay yi euh, loolu neen dina ko def combat donc ne ne Fatoumata Tall ministre de la jeunesse euh, ñu ngi lay gërëm bu baax madame Mbaye ci taxawaay boobu la am na solo allo. allo. kooku. am na Mariama. Mariama def. maa fi. fan ngay woote maa ngi wootee yaa ngi wootee Thiès naka waa Thiès Mariama. ñoo macha allah nu ngeen def mbas mi mbaa yéen ngi moytu. kontaan nga lu tax nga bég. kontaan nga ci jàng yi. bu baax kontaan naa ci jàng yi amul problème. mujj nga maa jot nag ci bi nga kontaanee ci jàng yi. naa la ba pare waaye dama ni maam Babacar Malick jàpp ci rek. wàccoon na maak yow. billaahi ma teral la nga dem. waaw. jeex na comme yaa ngi dëkk Thiès. jox naa la. waaw cent mille. waaw jërëjëf. yal na yàlla may na la cent mille ndimbal la ci mbas mi. yal na yàlla fay. allahumma amiin jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax. merci euh, jëlal jëlal leen ma ko ci ginnaaw mu mën a jot ci xaalis bi euh, di nuyu euh, Maodo Malick Thiandoum journaliste iTélé moom it soppe la waaye turandoom la ñuy waxtaane moo tax mu fuy tey Malick Thiandoum tey dafa fuy <laughs> ndax bég na ba Fall moom dafa teel a yóbbante sànq la ma yónnee ay piis pour ma joxal ko ko sëñ Alioune Diagne yaayu Iba Sëy yaayu Dekko moom ñu ngi koy ndokkeel bu baax ndax Sidi Ajmalik rek la bëgg. radiyallahu taala El Hadj Oman Mbaye Garmi Cheikh maa ngi lay wax ni yaa tudd léegi Thiès. Mamadou Xulle mu baax mi. nee na daal daggal na tubaarkàlla mètre yu bari. ñu ne koo ko jox mu ne ko jox naa ko Alioune Diagne taaliba taaliba Seydou Aboubacar bi. Ah. loolu nag tubaarkàlla yaa ko moom. macha allah. tey xam naa ne tey sunu taataanee wërsëg yi. kàll te mu war a ñëw ci yow. tubaarkàlla war na. wallaahi ñu di wax ne tamit sa benn soppe sa benn doomu baay. bu ñu naan dëgg-dëgg sëriñ Abdou ibnu Cheikh Khadi. bu daaru musti nee na Amadou Mbaye Garmi kontaan naa ci Alioune Diagne de. te kooku soxna Khadee ko jur. bu maam Cerno borom daal ndaamal daaru ca daaru musti mhm. mhm. nee daal dëgg dëgg daal mhm. xam-xam ak fasaa moom la gis tubaar kon ñu def contribution ak ñeneen billaahi macha allah yàlla na yàlla sàmm la allahumma amin allahumma amin yàlla na yàlla sàmm la jeena ba Seydou Ba xam naa duñu duñu question dañuy contribution ndax góor gi jar na waaw waaw contribution la euh, peut-être euh, euh, ci ni mu wax parce que xam-xam lañ fi daal di jëlee mais peut-être aussi avant ñu doon ñëw ci émission bi daanaka def gëstu peut-être bu bu bu bu mais jot nañu peut-être yër yenn mbir yi Cheikh Ibrahima Fall moom fi ñu ñëwoon ba ñu doon waxtaanee euh, euh, barki démb dañoo wax lu jëm ci wàllum suuf dafa bëggoon suuf ñu xool aussi ne euh, Maodo Malick également dafa nekkoon ki nga xamante ni ku bëgg suuf euh, mu mel ni euh, suñu mag yi en plus de valeur yu ñu am dañoo bëggoon aussi joxe yenn yenn ndëgër laay ci wàllu liggéey <laughs> waaw parce que parce que loolu la la ñu gis parce que bu nekkee dañoo ne dafa doon bay da doon wane ne que ne que mun nga am ay valeur mun nga am diine mais aussi il faut nga def li nga xamante ni moom mooy def dara ci sa poste pour mën a nekk nu ñuy wax indépendance su si wàllum koom-koom et important euh, que ne yi xam ko que ne que mun nga am diine euh, mun nga am lépp mais aussi il faut nga liggéey parce que liggéey aussi ci jaamu yàlla la bokk voilà donc c'est un point noté par sëñ Alioune Diagne très important pour que xale yi bàyyi ci xel euh, yooyu yëpp ay prévoyance la yoo xamante ni ñoom mag ñi defal nañu ko ba tey bu ñu bañee échec rek il faut obligatoirement ñu jaar ci seeni jàngale balaa soxna Naata Fall ñu ndokkeel ki nga xamante ni Euh, on reçoit tellement de messages oulala oh euh, suñu yaay euh, maman Adama Fall nekk ca Paris moom taalibe Cheikh la bëgg lool suma mag wàlliw bi bu Diop Ndiaye ñu ngi koy ndokkeel bu baax donc ajatu Adama Fall ñu ngi koy gërëm bu baax et puis Sophie Diop nekk États-Unis doomu njaw ma kodd la joxe na un million àddiya Euh, un million de francs CFA donc merci de faire de passer le message mu ngi jóge ci grand Talla Mbaye borom ba tey ca New York euh, càmmiñu Margot Konaré donc un million euh, yóbbante yëpp nag na ngeen ko matal dès demain bu ko defee ñu teel ko yóot bayalin balaa muy delluwaat fi nga xamante ni moo di Tivaouane donc ñu ngi gërëm bu baax soxna Sophie Diop ci million boobu la nga xam ni akuk barkeelu rek lay doon ci guddi gi nga xam ne ni moom la ñu jagleel sunu maam Sidi Hadj Malick Naata di ko ziar bu baax a baax Serigne Aliou Diagne di ko jaajëfal ci waxtaan wi macha allah euh, buñ fi ñëwee euh, ñun euh, dañ fi dañ fiy jàng lu bëri yaa ngi tudd sànq waati waawoon tamit Abdou Dene sàll ah moom tamit di ko ziar bu baax a baax sama nijaay la hmm. te képp xam na li muy def ci Tiwaawoon ci wàllum social rawatina ci Covid 19 bi ñu nekkee hmm. te waa kër Seydi Hadj ci si tamit xam ko bu baax a baax waa ab Abdou Dene sàll sama nijaay la muy waa kër Maas mi noonu man nag li ma bëggoon def Pape Cheikh benn laaj la rek hmm. ndax sëñ Aliou Diagne euh, boo ko déggee sànq ba léegi ba muy wax li mu wax ci Mame Maodo wàllu maanaam booy xool ab pédagogue la woon. junj nga ko sànq maanaam jàng dafa laaj pédagogie. parce que booy jàngal nit ki dafay fekk xaj na yow li nga koy li nga koy wax mu mën koo dugal ci boppam ba mën koo jëfe te ma dama yaakaar ne ñun suñu jamono ji ñu toll xaj na dañ koo xaw a manqué ci wàllum pédagogie ndax tamit nee nga sànq. Euh, ñun dañoo nekk fi Sénégal tarixa yi bëri macha allah waaye ñun ñëpp ay jullit la ñun ñëpp ci njabootu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mhm. la ñu bokk ñun mhm. ñëpp yàlla mooy ñu sàkk mhm. donc fii nag dafa am yenn saay xañ na ñàkk ay ay réeroo laa ko mën a tuddee xañ na des fois donc dafay baax ñu ñuy leeral pour loolu di bañ di am ci Sénégal parce que Sénégal ñun ñun ñun xamuñu loolu ndax dañuy waati Touba dañuy tibbee Tiwaawan Tiwaawan di tibbee Touba ñuy tibbee ci waa kër Sëñ Abba Sall ñuy tibbee fu nekk ci ñaseen yi lool lépp donc dafay baax ndax euh, maam maam Malick bu euh, sëñ Cheikh Tidiane mi ngi mi ngi may nettali ni benn jour sa euh, borom kii bam waajuram bu dafa demoon seeti bàyyi laat borom beleel dem Touba ba mu demee nag ba ñibbisi Dakaaru mu jël kenn ne ko xaaral dafa am benn yóbbante mhm. yóbbante bi lan la mu jël benn Cadillac limousine boo xamante ni États-Unis lañ ko ko yónnee boo xamante ni sur mesure la mu ne ko na ko jox Serigne Cheikh mu ñëw fii Ndakaaru oto baa ngi fii Fann limousine bi sax dégg naa oto bàyyi laat lañ koy tuddee oto baa ngi fi ba léegi donc pour wan relation yi nga xamante amoon na léegi léegi est-ce que tamit ñun ñàkkuñu peut-être ci ñi nga xamante ñoom ñoo war di leeral ndaw ñi surtout suñu génération bi pour wane ni ñëpp benn la ñëpp ñëpp ñëpp ñoom ñoo ànd Pape Cheikh parce que des fois tamit ñagas ñagas yi daal dafay dafay naqari ci bu naataak euh, yi ñu bëgg mu leeral euh, Maam Faty Cheikh xanaa rek di amati mbégte lool. xam nga sànq yaa ngi koy wax euh, Seydi Hadj Malick ñun ñëpp a ko bokk. Mhm. firnde bi sama téléphone bi euh, tey taalibe murid yëpp a daanu. Euh, ku ci mel ne Aji Cissé taalibe Serigne Fallou waaye dafa bëgg ndax dafa bëgg Seydi Hadj Malick ñoom Dior Gueye delluwaat rek xam ne moom mooy Tiwaawan waa kër Soxna Kantum du ñu taay di ko wax ndax itam suñuy soppe lañ ñoom Mama Lo Aminata Mbaye Fall tey Pape Cheikh ñëpp a kontaan. Mhm. mais man sëñ Aliou bëggoon naa rek mu ñëw ci ñaari mbir surtout waxtaan booy wax naan Maodo day wax naan mujjug jamono ñettay gën ñett hmm. waat ci ñett yooyu euh, beneen bi aussi muy lu jëm rek ci muxaddami Seydi Hadj Malick man nag Pape daf ci am ko xam ne dama ko sopp loolu muy góor gi Alioune Guèye hmm. digganteem ak Seydi Hadj Malick lu mat di jàngale la hmm. donc bëggoon naa nga taxaw ci ñaar ñaari ponk yooyu gën ñett yooyu ngay wax firil ñu ko bu mu gën a leer ci suñu bopp waaye tam taxawaayu góor gi Alioune Guèye ku ne xamoon na bindam ay ay ay ay waxtaanam euh, muy loo xamante ni si daal ñun ñu ngi koy xaar di la jaajëfalaat encore une fois li Pape Cheikh di wax rek moom fan la nekkoon. waaw loolu laay bi bisànq man mooy sànq ma quitté plateau bi euh, leen ñu àggali donc euh, troisième question notée euh, ñu balaa ñuy dem nag ak internautes wala ñu bàyyi réponse yi après dellu si waat pour internautes yi quand même parce que finalement dina dina dina dina dina dina bëri di nuyu mami Hélène Aïda Thiam Aïdou Net Dadouze moom jot daf ñu teel a teral ci bëccëg bi ak borom këram Marie Ndiassé son mari Ndiassé Sall ñoom kontaan nañu Hélène Souleymane nekk Angleterre euh, ak euh, mami Hélène et son mari euh, Ndiasse Sall ñoom itam ay taalibe Cheikh Akhan kontaan nañu lool ci guddi gi nga xamee ni sànq ba tey man damay ragal at yi toll ci ay milliards waaye yóbbante yëpp yëpp yëpp bu ma fesalul it naa koo baaxee ki nga xamee ni mooy sëñ Alioune ndaxte ki ñuy waxtaanee jar na ko Oustaz Adi Mbaye moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax donc ñu jëlaat beneen question ak Mamadou Ndiaye donc ko baaxee euh, sëñ Alioune. voilà euh, beneen question bi kay booy bi nga xamante ni seetlu nañ ni euh, bu dul benn di ñaari nit ci internet yi demande nañ ko mooy Seydi Hadji Malick ak parasol bi. waaw ah. voilà il va répondre il donc. question question bien notée Sidi Hadj Malick ak euh, parasol bi ba woykat bi ne ko borom parasol bi <laughs> euh, euh, Oumou Tall xam naa fa ñi dinañu waxtaane maamam madame Gaydo Oumou Tall xam ngaa sudaatel moo jur Awa Gueye mi yu su woyoon ba jooy Awa Gueye wu yoo moom taalibe Cheikh la bég na mu ngi ndokkeel bu baax El Hadj Mane Mbaye Garmi tey bég lool ci càmminam Oustaz Pape an waaye nag kontaan na ci li nga xame ni le professeur Alioune Diagne def tey ci quartier général bi ñoom Adja Sall ñi doon ci taalibe eh, ci daayira bu mag boobu eh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di eh, ñu ngi leen di ziar bu baax kon Oustaz Pape Hann Oustaz Assane ñu delloowaat leen kàddu gi foofee ci beneen studio bi El Hadj Mbaye Garmi loolu dina baax bu ko defee ñu àggali parce que ñu ngi jëm nag 7 heures du matin Euh, mbay nun kay koor gi nañ ko continuer rek. waaw kese nañ ko birale na bir. Maodo Maodo mi nga fayee sëñ maam Maodo kontaan na sa doom. lool bëgg na lool bëgg na lool. ajatu mi moom moom ajatu liggéey xam naa ne nee naa ko xëdd bi na seet na wàcc jox ko gardien. sama doom bi fii laa tey. wallaay mbay <laughs> kon yaa oustaz euh, ñu dem kon benn bennal. Mm. Euh, doog a dellu siwaat ak yeneen i commentaire yeneen i question ak yeneen i teraangaak ak addi yoo xamante ni bëgg nañu ko séddale. Mm. fii ba fajar maa ngi jot itam yóbbante Abdou Aziz ndeysaan moom it mu ngi insister depuis sànq pour jot ñu dama ne woon euh, euh, ñi bëgg dugg ñëpp dina metti mais bon euh, comme yàlla sax dafa am xarit. kon naa naa ko dugal ndax sunu xarit la di Aziz Ndiaye Aziz defe naa bu Aziz nekkul ci kër gi paas leen ma Baye Ndiaye ndax Aziz ay Baye Baye Baye Baye Aziz Baye Ndiaye. Baye Ndiaye. allo. <laughs> Pape Cheikh. Makhtar bi dina laajte. nuyul ma ko ñu ngi lay ziar bu baax taalibe Cheikh bi. dina ko dégg Diallo dina ko dégg. ca seen i baay ba tey ca seen baay ba tey yéen a ngi euh, yéen a ngi yéen a ngi ci yoon wi te ñaawu leen ci. jërëjëf Pape Cheikh jërëjëf kenn gënu leen ci nag. <laughs> jërëjëf Pape Cheikh jërëjëf. li ma li ma ni li ma ni li ma ni daaw maak Assane defe naa ñooy tooñ Aziz Ndiaye ne ko euh, Aziz Ndiaye daanaka mook Cheikh Bo mook Cheikh Béthio yam ci yoon wi. <laughs> ci ci ci bu màggal jotee ñuy euh, ñuy dóori nag macha allah ñu bàyyi la nga intervenir très rapidement. jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu yéen ñëpp di nuyu waa groupe Futurs Médias ñëpp. jërëjëf. di leen baal wax ci koor gi ñu nekk. jërëjëf. di wax bu baax a baax a baax. baal nañ la. di leen nuyu yow mi jiite plateau bi ak ñoom lu may gërëm ñëpp. jërëjëf. di xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour. yàlla na fi yàgg tànn ak wér. di nuyu suñu Serigne suñu papa suñu waajur di Serigne Pape Malick Sy. Hmm. ak ñoom Serigne Moustapha Sy ñëpp ñu ngi lay nuyu bu baax baax. Hmm. di nuyu Papa Anne bu baax a baax ak Oustaz Assane. Hmm. di nuyu Alhaaj Aliou bu baax a baax. di nuyu waa Tiwaawan yëpp. man nag maa ngi waxee ci kàddu Abdoul Aziz léegi la ma woo téléphone ne ma dañu bëgg nga woote ci télé bi ci nuyu ku baax kooku toog foofu jógee ba rafet rafetlu waxtaan mi waxtaan bu baax a baax a baax ci sedd Hadj Malick ñun ku ñu xam xam ni ay taalibe Seydi Hadj Malick lañu mm-hmm. radiyallahu taala ñu ngi koy nuyu bu baax a baax rafetlu nañ waxtaan bi kontaan nañ bu baax a baax a baax jërëjëf Ndiaye gis nañu lépp lépp lépp Seydi Hadji Malick comme ni nga ko waxee rek xam naa ne xajul sax ci plateau bi. mënul nekk sax c'est impossible. dañuy tënk ci coof tuuti rek. Mhm. comme Abdoul Aziz dafa dégg waxtaan bi muy bi muy tëjji suñu sœur boobu suñu soxla so suñu sëriñ boobu di soxla umu kaltoom. Mhm. ne bi muy ñëw daf ko jox otoom pour mu ñëwee ko ci plateau bi. Mhm. Abdoul Aziz ne ma wooteel nga ni. bu lëndee incha allah na indi carte d'identité am na fi oto may na ko 4x4. ak akamaa leeroon. bu ëllëgee <laughs> buy ñëw ci plateau yi ndax mu bañ jël oto soxna si di ko sonal. Hmm. xam naa ne soxna si sax bëggoon na loolu mais dañ koy jaarle wàcceel ko ko rek. Abdou Aziz may na ko oto. macha allah bu lëndee incha allah bu ñëwee Dakar. bettu ma de Ndiaye. bu ñëwee bu joxee sama numéro incha allah di ko jox otoom ci kàttum yàlla. aw ma benn surprise. alhamdulilah bi des. Euh, Pape Hann moomu toog foofu. Hmm. am na fi 500000 francs bu génnee bu ko neexee mën na maa woo mu ñu jël si ko. bett ma léegi orange mooy nag yëpp a ngi fi toog leen seen kër. yow Pape eh. mi jiite plateau bi ak waa plateau bi am ngeen fi 500000 francs mu ngi nii ci man bu ngeen génnee bu ngeen ma woowee léegi ñu. toog leen <laughs> eh, metti waaw ñu ngi rafetlu ñëpp nag di nuyu bu wënduur bu baax a baax di nuyu Ndiaga. waaw di Mm-hmm. mën naa yónni rapidos ñoom am nañu autorisation couvre fa ñu jël waaw alimenté boo yàlla jeex maa ngi woote léegi oto ko ay mais xam naa ne oto bi moom day xaw a diis kon dañuy bàyyi ba altine rek Malamine Fatim Bakary ngeen doon fekkoo comme nga ñun ay taalibe Seydi Hadji Malick lañu mm-hmm. suñu bunt ci jiwaar mooy Seydi Serigne Babacar ñu jokk ci al Abdul Aziz al Amin kon def nañ ko addiyee Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu si kàttanu yàlla. jërëjëf kenn du moom jërëjëf maa ngi gërëm bu a baax a baax ñu ngi koy gërëm bu baax porte parole la ci euh, Abdou Aziz Ndiaye euh, moom ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ko euh, gërëm taxawaayam rek doy nañu mm-hmm. donc lii mu def rafet na mm-hmm. am na yeneen yóbbante yu ñuy jot waaye dañuy àggali waxtaan bi puisqu'il est 3 h balaa ngaa jàll Baye Cheikh <laughs> jërëjëf balaa ngaa jàll mm. dama góor gu baax gu naan alima bu góor ak mu jigéen ñoo jur ale njaay mu jur Abdou Aziz mii alima moomu Seydou Bakar Masana woote amul benn xeet woo xam ne wii ci nag ci gëléem ci xar ci bëy te du ko dàq ñëw indi ko Seydou Bakar guddi gi neex na kooku nag kon nag kooku moom bu jëfee lii hmm. tubaarkal dafa jaar ci watit wi rek. wallaay wallaay Mbaye. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko ci guddal fan. allahumma amiin kon euh, oustaz Pape Hann. waaw kay jërëjëf seen El euh, Hadj dégg naa loo def ci loo def ci ci mag ñi. suñu borom fay la ko. Ah, wallaahi. xam nga dama dama dama wax barki démb nii. Hmm. rasulullah moom mooy ku sakkan ki. sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ku sakkan ki du jeex du xew wi. Hmm. Euh, nga dégg Seydina Aliou wax léegi. ne hmm. Cheikh Seydil Hadji Malick. léppam Seydina Muhammad la. sallallahu alayhi wa sirruna huwa nuuruna hmm. huwa majjuna moom daal koo ci gis rek bien lay doon. Hmm. ndax euh, ki ki leen uufa tax. kon alaaj Pape sa question boobu mooy mag ñi yàlla yàlla fayal ñu leen ñoom itam kenn du ñoom kenn du ñoom euh, ñi problème bi yëpp ñi koy indi mhm. mooy ñi xamul dund mag ñi mhm. ñooy indi problème bi mais mag ñi ko xam seen dund mhm. ah, topp ci seen dund sa àddina dina jag sa àllaaxira dina jag si naal bi macha allah waaw euh, gërëm bu baax Abdoul Aziz Ndiaye. lii defal na ko mbooleem jullit ñi. defal na ko mbooleem ñu bëgg El Hadj Malick. tey fi mu toll nii. soppee Seydil Hadj gi bu ñu sañoon bala ngaa génn fii ci buntu bi TFM génnaale 3 milliards 500. ñoom yéene boobu la ñoom ci yow. ndax seral gi nga seral seen xol. kenn ku ci nekk mbégte ma nga àndal kenn xamul nu mu waaw loolu it la ñu yéene Serigne Sidi Ahmed Mbaye mii. waaw moom itam ba xam nga fi mu toll nii euh, fi tasu gars yi dañ daan ñëw. Mhm. dañ daan ñëw ci moom. Mhm. moom moom Serigne Sidi moom itam fam famille Moussa Alla yëpp a ngi béggee Serigne Sidi Ahmed mhm. mais Serigne Aliou. manaaxibuhu bu Seydi El Hadji Malick. radiyallahu moom daal. Euh, question boobu. xam naa beneen question bi euh, Sina Sène moo la koy laaj. mais euh, nga décortiquer si gars yi. téléspectateurs yi waaw téléspectateurs yi nu gën a comprendre kanay Seydi El Hadji Malick ndax. jërëjëf balaa may continuer ma nuyu sunu yaay. ñu mm-hmm. ñu wax ne wuute na woote na suñu yaay Émilie. suñu Émilie waaw. di ko ziara di jaar Mouhamed Ndiaye mu sunu baay alhaji Mor Mor Ndiaye. Jaxeer. Mm-hmm. waaw moog Hadji Moussa Ndiaye. sama xarit Mouhamed ñu ngi teewlu. waaw Mouhamed mooy freeru musa waaw Abdou Aziz Samb. Moussa mooy denc suñu maamam di Mouhaddam Sidi Hadj Malick moom itam. dëgg la euh, Mouhamed Mbodj Anta ca ca ca Kébémer. dëgg la ñoom Serigne Babacar Samb tamit ñu leen bokkeel. ñu ngi nuyu Mouhamed bu baax. Mhm. di ko ziara. di mhm. nuyu Moussa di leen ziara ak waa kër ga. di nuyu sunu yaay Émilie. sunu yaay Lalla Niang. sunu yaay Ndeye Mariam sunu mhm. yaay Penda. sunu yaay yu baax yooyu la suñu yaay ndey Fatou Diop bu Pape mhm. Thierno. soxna yaay Amin Tañang bu sëñ mhm. yaay Daara Judo yaay Sofisi yaay Sofisi bu maam Habib waxoon nañ ko mhm. ak suñu yaay Kalambay suñu yaay Gaba suñu yaay Sofiyatu bu Sëriñ Mansour ak doomu soxna bàjjan umu bu Sëriñ Mansour di nuyu alaaj buuba nduur buuba dafa baax sonn na lool lool naan baleen te wax leen waxtaan wi waxtaan wi moom nee na waxtaan wee ko intéressé ñu ngi koy nuyu xaw moon ni lay sonne mën a xib aussi wallaahi di wax di nuyu nag Abdou Aziz Ndiaye ci li mu def du man la ko defal ak ñi def lépp xalifa général lañ ko defal ak njabootu Seydi Hadji Malick ndax man du ma conférencier hmm. man du ma gàmmukat man du ma firikat man outil laa pour kër Seydi Hadji Malick radiyallahu taala ngeen eyoo njoodeen eyoo hmm. kon lu ma nit def ñoom nga ko def. macha allah Abdoul Aziz daal Abdoul Aziz daal kenn amul fay yàlla yàlla yi. Mhm. balaa ma ko tontu ngeen may ma ma ñëw ci manaaqibu maam Cheikh Seydil Hadji Malick. radiyallahu manaaqib nag hadis la hadisul qudsi la. Mhm. yonent bi moo nettali ne yàlla nee na mhm. yab na aadama ati nii takkun rabbaaniyan taqulu li shay'i kun fa yakun yow doomu aadama bi topp ma ba jeex tàkk ci man ma fayala loo bëgg ma fekk la ci moo tax Cheikh Mal daan na wax bu leen ñaan ijaaba dee leen ñaan xabool ñu ne amu ah, ne ijaaba dafa laaj ay conditions il faut nga sell il faut nga te yéen ñi ko mën nitu jamono manu leen ko xabool nag mooy loo bëgg mu dëppoog li yàlla bëgg moo tax Maulana cheikhul islaam wa saadatul anam Baye Niass borom fayda ya bi muy def tawasulam ba mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma ma am xabulu Seydil Hadji Malick ñoo baax xabul maam alaaji malik nag radiallahu taala anhu manaaxibuhu mhm. maa ngi commencé benn mooy yi ko yàlla may mhm. mayam ya daal may bu ñuy wax maam alaaji abdou hamid kan radiallahu taala baal ma maam alaaji amoon taalibe mhm. mooy way juru maam astu muy maamu sëriñ seex sëñ abdou sëñ pape malik dafa nekk Kaolack maam alaaji malik jox ko ndigal wér du wasifa suba ngoon am tubaab bu fa ne ñu di ko wax bolokaa bolakaar xëy bin not maamala jaam doomit kan ne ko xayul xayum jéem a sonal dangeen koy koy arrêté mbaama arrêté la seetal ñaari boo ci bëgguñu ñu arrêté mu ne man duñ ma arrêté te ma arrêté ñu ne ah ne dama am kudd ko am kudd doo lakk jël saxaar wàcc Tiwaawan ne maam Maodo mu ne ah mu ne ko yaa ma joxoon xayul xayum suba ngoon bolakaar nee na bu ma ko bawul mu arrêté ma mbaa yëf yi mbaa ma arrêté te bëgguma arrêté bëgguma yëfi arrêté loo ci xam mu ne ko doo arrêté yëfi duñ arrêté nañuy def mu ne jox leen ma big ak fooy bul way siidi alaa ya rasulallahi hmm. yaa afdalal wara fa nanu fii diqin shadidu tarakubi fa haa nahnu fii diqin walam narju farijan si wallahi walhaadi li subulil makarimi sadaqta ala ma qulta fi awdi diinina gariban kama fil bad ya gayra ilahi fajal ahlana ahla ghurbatin wa ahla tiba bi sunnati taraw na nag na uddu alayha bin wa jism islama na maamam daamit ko mu ne am ah, na ko boo demee lalal malaat man na gaa yi gën a yuuxu mm-hmm. ñu paree boo ñaanee tëjee ko ko suba tëjee ko ko mm-hmm. ngoon bu balakaar waxee nga ñëw wax ma ko ma dajale muqaddami ñu dagg kurusi te xam na jaratu ko allahu akbar macha allah maamam daamit kan dem ñaan ko suba ñaan ko ngoon ci suba ga ba tubaab bi xool kañ la koy convoqué président France benn télégramme ne bolakaat dañ laa soxla benn mission boo ñuy doxali ca Monaco keroog lañ bolake Monaco ca bolakaat ca Monaco ba fii may wax ak yow wa min manaqib bi maam Cheikh Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu dafa jógee ci jàkk ji simi mbubbam wékku ko ci porte-monnaie bi ndeke maam Sofiatou Niang suñu ya suñu maam ju baax ja ma nga jël ma jël ànd ba def ko ci suufu porte-monnaie mhm. mbub ma wadd na bëpp ci kaw xal yi maam soviet na bërit mu ne ko lal la soviet mu ne ko sa mbub maa ngi lakk mu ne ko waxal astaxfirullah fi ma jaar ak yàlla lu mu tere woon ma ba ko lu mu digle ma def ca la ma mën foog naa ne yàlla dina ma rus bay lakk lu bokk ci man mbub mu alaaji maali rakk sol foog naa ne yàlla du ko lakk soviet mu ne ah mu ne ko bàyyil mbub mi ci kaw xal yi bu ci defee 30 minutes ñu yëkkati ko mu lakk ma dagg sama kurus xam na la yàlla woo new ci allahu akbar ñu bàyyi mbub mi lu ëpp ñuy ubbi seen antenne bi maam Safiyatu yëkkatu ko waxuma la lakk waaye doom sax tax taxu ci. allah ilaha illallah. bi ci des góor gi Ahmed Diagne Daayira fii la dëkk. Ahmed Diagne Daayira tey laa lay wax lu ko booleeg si Daaj Malick. radiyallahu ma nga dëkk dëkk bu ñu wax kët seet jaxu. quelques kilomètres dañoo war a dañoo war a diri. baykat la woon. nawet dafa jot mu bay amul. beneen nawet jot mu bay amul. beneen nawet jot mu bay amul benn naar ñëw Saalum. ñëpp naan naar bi ci dëkk bi lu mu ñaan mu nangu mu dem ci ñaar bi di ko listixaarloo naar bi ne ko bul wax yow naa sa problème bay nga ñetti at amoo booy bay ba téeméeri doo am hmm? lu tax mu ne ko sa mbir nekkul ci bay Pape An mën a waaxu xam fa nga jëm a ko gën hmm? nañuy def mu ne ko yow benn sëriñ boo xam ne moo yor ndanooy rasulillahi ci kaw suuf moom la la yàllay booleel dina def ci yow ñaar dina def ci aw xam-xam ba kuy wut xam-xamu baatin ci yow lay ñëw dina def ci yow ijaaba ba looy ñaan mu nangu demal seeti ko mu ne ko fu mu ne mu ne ko xaw ma ko nu mel mu ne ko ku am taxawaay lay doon day ko bi ci des mu ne ah mu ne ko boo koy gis da koy fekk muy jàngale mbooloo mu baree koy wër muy wax ñëppay fottas boo ko nuyoo ñetti baat la lay wax bu la fayee bu ca tegee benn baat du moom allahu akbar dégg nga li ma la bu baax boo laajtee fa mu dëkk ñaari dëkk lañ lay wax ni ñu waxee muhammadun makkiyun madaniyun sëriñ boobee boo demee ci moom ñaari dëkk lay dëkk wër ko muy wër senegal dugg na gox boo xam ci Sénégal sëriñ bu ñuy wax ñii mu fekk leen ñaan sëñ bi daa fatu ñii mu fekk sëñ bi waare ñii ñaan sëñ bi day añ ñii ñaan sëñ bi day recevoir mu dem ci benn sëriñ fekk muy jàngale bi mu ko nuyoo mu naan ko ana waa kër ga mbaa defuñ dara di jàmm santé jëpp mu ne man ñetti baat lañ ma waxoon du kii ñëw ba dëkk bu ñuy wax gii gi neew ñu tegtal ko ne ko am na góor gu ñëw alaaji Malick si ci Tiwaawan demal seeti ko mu ñëw fekk ma moo doon fekk luñ wax góor gi ñu wax góor gi ne ko ah ne ko demal seeti góor gi Tiwaawan mu ñëw fekk maam alaaji Maalik a ngi toog di jàngale mu ne moo mao dana gees xool ne ko waaleykum salaam mbokk mi na nga def ana waa kër ga tafaddal ñetti baat bu la nuyoo ñetti baat la ci teg as waaleykum salaam mbokk mi na nga def ana kër ga tafaddal daa di toog mu ne ah am naa ñaari point dañ ma noon ku ko gis dafa rafet boo gisee da koy bëgg ñaar yooyu dal na ñetti baat la ma tontu naa toog déglu ba pare dërsu bi pare Saaj Maalik waaxu rek dugg ci biir mu laaj taalibe yi na leen waaw kii fu mu dëkk am ku ne ko ah, ma nga dëkk dëkk bu ñuy wax waalo am ku ne noo kii bàyyi ma nga dëkk jolof mu ne waajaani mu ñëw Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu juróom ñaari at la ko téye yóbbu ko Dakar dalal ko fa ci benn kër fii ci benn këru lébu lébu ñu baax la ñu bari teraanga ma laaj mal daano lébu ñooy sama ñooy sama ansaa wallaahi Maodo ñëw boole ko génn góor am na jàkk ci biir kër gi mun ne ko dee leen jiital ku la ñaan loo ñaanal yàlla dina ko nan ama jaan daayira def Dakar ñaari at mënta am cent mu xëy na maa ngi dem si Alaaji Maalik parce que la ma naar ba waxoon du dëj munuma jàng ci Alaaji Maalik tarbiyu ko am xam-xam te munuma am dara trois heures du matin mu jógee Dakar di dox ak tànkam ba puut neuf jot mu gis nit ñi waaxu mu gis topp seen kaw ndax xiif na amulum lekk lu xew fi ñu ne ñii ngénte lañ jëm mu ne bàyyil ma topp ci am lu ma lekk doog a dox topp naaj yu dem Tiwaawan fi ñu toog di waaju tudd doom ji am waaju toll nii nii nii Pape Hann waaju toll nii mhm. ñëw taxaw yor benn bu naan ana Amath Diagne Amath Diagne ana Amath Diagne Amath Diagne oo moom mu ne man fii ku ma fi xam ñu ne ko képp dee na ko da ngaa tudd Amath mu ko mu ne labbayka mu ne yaa Amat Jaay am alaaji Maalik la ko jox. rabbi su muy téye enveloppe bi waa ji ne merci beaucoup. la ilaha mu ubbi lettre bi fekk ci bindu maam Cheikh Seydaaji Malick mu jox ko turu yàlla wi koy ubbi ne ko bul yegg si dëppal te moom waxul moo dana maa ngi ñëw téléphone amul. allahu akbar. déggoo li ma lay wax mu ñëw Tiwaawan mu ñibbi Dakar ci guddi gi la jàpp tur wa mu laal ko yeewu di doxantu ci sëgi ndakaar wi njëkk ya laaj ko magi fañ fañ denc di ñu teedeen ñoom maam Amadou Assane Ndoye fa li muy doxantu dajeeg benn tubaab mu ne ko monsieur mu ne ah mu ne ko yow da may niru kuy ñaan mu ne waaw dama am soxla bëgg ku ma ci ñaanal mu ne waaw bismillah waaye tubaab bi ubbi ko foo jox ko 300000 ca jamonoy maam alaaji ma. mais mooy 300 millions boobu jamono 300000 booba. milliard ne ko suba dinaa ko jël dinaa ñëw nga jox ma nga ñaanal ma. ci suba ko mu ñëw woo ko mu génn ci buntu kër gi mu ne ko li ma doon ñaanloo namm na beneen 300000 boobu namm cët te gisatul tubaab ba daf ko koo jox rek disparaître. mu toog quelque temps Seydi Hadji Malick bind ko lettre na ko Ahmad Diagne bañ may booleeg yow bala bala naar ba di booleeg yow ngay ñëw ci man yëgoon naa ko bis bii nga doon xaar man Alaaji Malick ku ànd ak man ma defar si mbir. allahu akbar beneen bi ci sunu maam Baaba Awa Ndaw dafa toog am jafe mooy mag ñi liñ daan tiitaroo mooy ni ñuy def ba gis yonent moom mu toog jaamu yàlla lu mu xam jàng na ko mënta fexe gént gis yonent bi am ku ne ko am na góor gu ñëw Alaaji Malick ci Tiyaan boo fa dem wàllu yonent bi waxuma la ma Alaaji Malick de maam alaaji Mansour alaaji Mbay dëggal papay Aziz maam Faama mii ci télé ànd naa ak moom ca binti sëggu Tiwaawan di guddi mu jox ko benn dog ci salaatul fatiha Baye alaaji Mbay nee na matul ma di ko wird balaa may pare yonent bi ne jamet na ma bàcc ma xool ko mu ne ma na ma ana rasulullah ma daanu xam mu ñëw maam Mansour ne ko e yow ma laa wan yonent bi wan a guma la Cheikh Tidiane ngaa xam bu ma leen boolee ñaar ñi foo jëm allahu akbar alhaaj Mouhamadou Mansour alhaaj Mouhamadou Mansour bal qawmi baayam Mbay toog naa mu di ko bal kaw ma. yàlla dogal mu ñëw ndakaaru góor googu ñëw Tiwaawan seet si Seydi Maalik Baaba Ndaw bi mu ñëwee ndeke moom soxlaam mooy gis maw gis yonent bi sallallahu alayhi mu fekk Maodo fi muy jàngalee ci jàkk ji mu ne ko man de faa xamoon soxla soxla bi faa bëgg ku ma ko fajal te faa la ko du wax maalaaj maa la ko dugal ci pantere bi may jaamoo yàlla te téere yi ne fi koo fa fekk nga wax ko sa soxla mm-hmm. mu dugg ci pantere bi dekk fa ñaari góoru naar yu xees mu leen jobb loo bëgg ñu ne Maodo ma yónnee nañ ma ñaaral mu ne tàll la loo bëgg a nekk mu ne taalibi Cheikh dafa afale naar bi jàng salaatul faatiha na ko génn mu génn fekk Maodo ci zawiya bi mu ne ko mel nii mu ne ko xam nga ko mu ne ah mu ne a jóg ki ci day mooy rasulullaay ki ci sallallahu càmbooy mooy Cheikh Tidiane dugg ci néeg bi fekku kenn moo ne ko ah da ngaa foog noonu la yombee sama jotaay bii bu ngeen foogee ne caaxaan la da ngeen seen Allahu akbar Cheikh Seydi El Hadji bi ci des moo di Sërif Maxtaar bu xaay lii ma lay wax sama goro alaaji Cheikh Mbay ma dikke moo ma ko nettali nee na Serigne Moustapha Sy Jamil moo ko ko nettali nee na Serigne Babacar Sy moo ko ko nettali nee na Cheikh Seydil Hadji Malick Sy moo ko ko nettali radiyallahu anhu amul weerante Chérif Makhtar dafa bu xaay dafa amoon kastu daan gis yonent vingt 27 fois par bis sallallahu ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar waaye yàlla nattu ko mënta dem màkk yoon bu waajee pour dem màkk am soxla bu ñëw xaalis ba jeex mu dugg xalwa di laaj lu tax mënta dem màkk yonent bi feeñu ko ne am na ku yor sama ndono ci kaw suuf ñu koy wax alxaaju Malick si boo ko gisee mu jox la paasu màkk boole naa la hmm. déggoo li ma waaye ba keroog nga koy gis bu lekk lu lewul mu jël ñaari nagam yu ñuy rat ma nga jóge xaay ca Mali toolam bu mu bayoon mu bojj ko soq ko def ko cere war mbaam war waral taalibeem am mbaam suñu xiifee dañuy ratt ci nag yi defar ci cere ji lekk mu ñëw ba géngi neew hmm. ñu mayaat ko fa fas mu war ko fi mu tëddi nelaw ci suufu garab am lu ko feeñu ne ko kuy seeti ku lay yóbbu ci yàlla donte la sëtub yonent bi nga waloo sorlooy tiitaroo te fas ëpp na ci yow yemal sa mbaam ba gis sa waay mu delloo faso yegg si tuwaan si Aji Malik xool ko muuñ ne mu ne ah, mu ne ko bu ma la ganesi woon nooy def mu ne ko lal bu ma gën a rafet la laa lay jox néeg ba gën a rafet ma jox la ko lu ma gën a baax la jox la ko di la teral ba keroog ngay tàqali ko mu ne ko kii deretu rasulullaay la mooy sama kilifa yóbbul ma ko ndeke ki ko li ko feeñu yonent bi daf ko ne ki lay yóbbu ci yàlla te di la jox paasu màkk yor sama ndono yaa ngi koy xamee ci lii timis la lay jiite premier rakk ma ngay jàng inna anzalnaahu deuxième rakk ma ngay jàng isa zulsilat te du ngeen yëgoo sëriñ boo dem ci moom mu jiitale timis def lool jàppal moo yor sama moo lay jox màkk koo dem ci moom jàngul lool ba ko fa day tardé ci fu mu jaar rek nga jàngale jaar yëpp dem Guinée Bissau <laughs> Mali Guinée Burkina Faso ñu naan aleykum takasur ñu naan aleykum ñu naan amana ñu naan xul yàlla kaawaroon mu naan non c'est pas <laughs> ñëw Tiwaawan si Aji Malick nee na bi mu ñëwee kër maam say batu keroog dafa sonn julli suwul tusubaat julli suwul tàkkusaan timis pare 6 heures mu sañse ñëw toog ci jàkk bi di xaar di xaar timis gi a Alaaji Malick ku ñëw Tiwaawan te ñu di lay tuddee nitu yàlla mbaa sëriñ du la jiite day wut ñu day lay jiital keroog lañ gis nit ñëw Maodo jiite ndeke yëg na communication. billaahi ñun tey lañ toll ci whatsapp mag ñi fa seen whatsapp di kaw. yàgg na yëg na ko saa à dire balancé nañ ko. Maodo taxaw rek ne defal leen sàppe. fekk Sërif Maxtaar si ginnaaw Ahmed nee na ko. nee na ko ki lay jiite te di la ki lay yóbbu ci yàlla te di la jox paasu Màkka te yor sama ndono ci kaw suuf. timis la lay jiite premier rakka inna anzalnaahu deuxième rakka isa subsilat bu ko weddee bu ko moyee du moom ba ko dalay tardé.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 تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر mu ne ah ah première yàq réussir nañ dem deuxième dina leer ba xam moo da jógaat taxaw ne bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahimi malik yawmi diin jàkk ji riib te yàlla mu ne man sama yoon ci faatiha bi dana ñëw rek <laughs> iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله dem bay kàbbar Sëriñ Baxtaar wax ci xelam ne yaa laytahu an yukarrira suurata hatta tahaqqaqa lii bi annahu hu loolu mooy lan ak neexoon mu reprendre saar bi ba mu wóor ma ne du asaar mooma ci xelam la ko wax ci xelam la ko mu fi dellu ne iza zulzilatul mu daanu xam. yàlla xam kay day dee. man la man damay dagg julli gi. aywa aywa aywa nari bi billahi. faridul asri min tuhfi zamani wala sabani ama billahi. xalifa bi sabani sina sabani ama sabani بنائل شيخ كون فريد العصر مرته في زماني زماني ما سفاني خليفة بيا سفاني بيسنا سفاني ما سفاني مصب من لغتك هو الشيخ المربي كل نادر وخاسر والقطب Baay Bakar ak dara man xalifa bi cugul bay sina sabani ama sabani ku sabumu na malik loxo ca kaw wala alamul faqir nazihu ilmin xalifatu shaykhina najat tijani sabani ama sabani xalifa bi sabani bay sina sabani ama الشيخ الدليل إلى الجنان سبان يا ما سبان خليفة بن سبان بيسنا سبان يا ما سبان يا ما سبان لختك وهو العلم الفقيه نزيه علم الجحي خليفة شيخنا نجاة جاه سبانيا ما سبانيا موتنا سبانيا ما سبانيا ما سبانيا لخجك هو العلم الفقيه نزيه علم خليفة شيخنا نجاب تجاني سبانيا ما سبانيا ما سبانيا والله سبانيا ما سبانيا ما سبانيا لخجك هو sabani ya ma sabani ya ma sabani Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu mawdo wa rabbul wara yu'ti Cheikh El Hadji Abdou Aziz Sy Malick sopp da baax Malick Maam El Hadji Abdou Aziz Sy da baax Malick waykat yi nee nañ 40 ans zéro faute ma leen wax leen astaghfirullah ah. diiru dund zéro faute warabul waraayi hubbi da baax Malik mooy amaatal hawa munsu sabiyi li nafsihi wa aasha karimul xulqi ma kulli suudadi waajari alaaji maam Abdou génn àdduna mu ne aqila li aalimul abraari qad afala am qiila lii kawkabu saarina qad afala fa diinu wal ilmu maa jafat uyuunahuma musqaaba abdul aziz al barru wartahala ceerno bokar kan ca kahida ne abdul aziz inna shariata wal haqiqata qaalata abdul aziz lana imamun kaamilu sëriñ Maodo si nee na rat mi nga xam ne moo baax te xam baayam na sama baay ñu ne ah mu ne ko masajidallahi fil fil aqtaari assasaha rusdan liman dalla tambian liman xafala góor gu tedd goo borom jeg saaw mooy bëgg a wax ci baayam maam Cheikh Seydi Hadji Malick wa rabbul waraa yu'ti liman shaa eh, maam Abdou ne ne xëy yéen waa carte générale eh, tey leen li alaaj Aline Diagne di wax ci alaaji Malick bu leen ko yéem sama baay du ay pexe ko ko may du lum sangoo du lum wird wa waraa ki bind jaam ñi te moom leen yooti mooy joxe man saa ku ko soob lu ko neex minal waraa ci jaamu yàlla yi maa yashaa min afdaali maa laa yuhaatu bi fitrati neex lay may ci jaamam yi te yàlla bu dee may lam lay may da rëy ba kenn du ko mën a takk kenn du xam nu mu toll. Seydil Haaji Maari wa annakum haqqan mu ne ko yow de baay yow de baay wa annakum naka yéen Cheikh Al Haaji Maalik Si haqqan dëgg almiimu harfun daalun li jam'in mudakkarin saalimin nafsahu awil muazzamu maahu xayrahu mu ne ko wa annakum waxul wa annaka da koy màggal wa annakum haqqan xaliil xalifata cheikhana mu ne ko ca dëgg-dëgg wóor na ma ne yow yaay xalifa Maulana Cheikh Ahmada Tidiane ci kaw suuf yow Baye Laaj abil fawdi Maulana dafi ne bu lay datee na cheikh mi nga xam ne dafiinu bulaydatin moom lañ dent ca bulayda te ba ñuy laaj cheikh alhaaji malik kan mooy cheikhu tidiane def ne inna tijaaniya taajun la nadira lahu allahu sharafahu fiina wa wallahu cheikhu tidiane allazi ma hadda saahiluhu azban furatan namiran tayiballahu maam abdou nee na góor gu tedd googu sama baay wax loolu ci moom et pourtant dellu siwaat na moo ko doon ayaa sayidi ee eh, yow mi nga xam ne du ma la wax bàyyi yaa sayidi yow alaaji Malick yaay sama sang man alaaji Abdou Dabane xoolee wu ma la bàyyi dëgg la nag yaay sama nijaay lu tax mu ne ko parce que Amady Farimata Mbacke Thierno Farimata Mbacke Ibra mata Mbacke ñoo bokk ndey ak baay Ibra Farimata Mbacke moo jur ngañ moo jur Xari Mbacke mu jur ngañ ñang mu jur sama mu jur Sofiyatu mu jur ma Thierno Mële moo jur Mati Mbacke mu jur Ousmane mu jur Alaaji Malik kon xaali yaay sama nijaay duma jàmbur ci yow. wa Cheikh. yaay sama sëriñ yow da Malik ay Maodo walaali di waaye nag bi yooyu passé yëpp nag ya wawaali di gis nga ni mu ko malaabi a ma kenn ku may wéeru rafetal gi bare na waaye bu ma amee ginnaaw gu may wéeru man da baax Malick Seydi Hadji Malick waxis ni bu ma jàppee fa ma jug ba am sécurité Seydi Hadji Malick bu ma gid bu ma ku ma gindi ba ma ci yoon ba ñëpp ma xam yaa ma jottali teg ma ci loxo rasulillah ilal ma yóbbu mu ne ilal ci buur bi nga xam ne al maabud moom la ñëpp yi jaamu yàlla mi nga xam màgg na jalaaluhoo màggam ga waftali mabuusin ma ci wa afdali mafuusin ci gën ci ku yàlla ma su yónni muy xayrul wara ila xayri ummati ki nga xam ne moo ñuy teg ci yoon wi gën ci yoon yi muhammadin al muxtaar kookaay kan mu andi badal ba ne muhammadin koo koy muhammad al muxtaar ki yàlla tànn mu gënal ko ñëpp nux bani hashim moom la yàlla tànn ci giir bani hashim wa sayidina tijaan yaa ma teg ci loxo cheikhu tijaan ba tey may loxo may xalifa cheikhu aadamu qudwati kookaay kan mu ne cheikh tijaan ne aadamu qudwati sama wéeruwaay yi ci gën a màgg man ta baax maalik mooy cheikhu tijaan باب العباس kookaay kan mu ne kooka mooy Abba Abul Abbas bàyyi borom kanam yi ñetti yi wut yàlla. waari bi sirri. kooka mooy ki nga xam ne moo doon sirru Seexu Tijaan Alaaji ma. xasinati mooy booy wut ndam bu leeru secret Seexu Seexu ne Tijaan bul dagg paas dem faas ñëwal Tiwaawan ki doon secret Seexu Tijaan mu ngi tëdd Tiwaawan. tariqati umdati. tariqa Tijaan ki ko dundalaat ba ñëpp di ko tiitaroo ci kaw Afrique bile Seexu Tijaan a ko fondé rasul teg ko ci loxoom waaye bu naasire ñëpp di ko tiitaroo fii ci Afrique de l'Ouest grâce a maam Alaaji Maalik Si fala shakka anna allah maam Abdou ne fala shakka amul benn sikki sàkk ne anna allah naka sunu borom yàlla xasaka cheikhana xasa jagleel na na xalif euh, euh, Sidi maay wax ne um, euh, lëg loo ko bañ bañ seedeel ko ñaar mën a daw ak sob ak guddi nopp mbaam loo ko bañ bañ ñett kon mbaam loo ko bañ bañ seedeel ko ñett seedeel ko ñama ceew na ñeme ay yet ak caay caay ak guddi nopp waaye maam Alaaji Maalik loo ko bañ bañ seedeel ko ñeenti yi may bëgg xam-xam lool ba ñëpp xam ko seetle ko ba kenn amuloo cay duut baaraam mën a koo joxe ba ku ko yaakaar mu defar la baaxi doom ba ku ne sañoon a jur ay doomam mu ne am yàlla ko may ay may yoo xam ne kenn mënu koo takk ba ba àddunay tukki asayidana xuttal ibada jamiahum asayidana xuttal ibada jamiahum mu ne ko yow bàyyi xettali nga jaam ñëpp mboole seen ilallahi fan xaadoo ilallahi jëme leen fi lallahi jëme leen ci yàlla ñoom ñëpp fan ñu wommatu topp la nga defee ko nag ci nooy wa aadaabin gën leen a yaru oh. wa xusnu siyaasatin di politique bu rafet ak jëflante bu rafet ba taalibe yi bëgg la boo leen wanoon ñagas walaw kunta faddan xalital qalbi lam fatu min xawlika fa bima rahmatin min allaahi linta lahum la ko walaw kunta faddan min al qalbi lam fadu min xawlika mu ne ko kon loola nga doon ci yonent bi ba dangaa nooy ba taalibe yi bëgg ya eh yonent bi Pape ma wax la leen Babacar Sadiq moo ko wax nee na yonent bi dañ daan yendu ba jant bi so ko ñi namaat ko balaa añ bee pare man namaat jëmm ji boo koy tàggu rek di ko namm waaye moom laa ji maal taalibe dañ ko bëggoon ba da nga gis ku ñëw nuyu ko génnaat ci jàkk ji ñëw waat ko génnaat ci jàkk ji ñëw waat ko naat ci jàkk man na noonu laa mel ci ko sant si man bu ma toogee ko sant si du ma doyal Sëriñ Babacar Si Mansour ak Serigne Baye Abdou Serigne Maodo si ku ma ci nuyu minute bu ma la gisaatee day mel ni tey laa lay dugg billaahi man ku sant si bu ma ko gisee dafay mel ni dafa beesaat ci sama te koo ci nuyu mu gën laa yaru ku ci nuyu mu gën laa yaru gën laa bëgg waxam laanaa duna nag nil wa sumaati dooma bàyyi ma continuer murabbin yow yaay defar katu nit bi yaay yéege nit ci yàlla ñeel taalibe bi yaa koy yéege ci yitte ila kulli ma yarda rabbul mamaliki jërëjëf yàlla na yàlla fa yow yaay Malick wallaahi yow yaay xamaa kon jërëjëf waaye sóob nit mu dem ci ya yaay jërëjëf jàmbaar jàngoog Cheikh Seydil léegi nag ñu ne sëriñ léegi nag ñu sériyel waxtaan Pape An sëriñ boo demee ci moom mu jox la wér mbaa nga yaakaar ko ci wàll yàlla te mënalu la ñeent ba ko fi yóbbu puut bu leen daal yóbbu di ngeen yegg oto bu ngeen dugg mu kërëwee maa gii puut gii puut du la fa yóbbu bala yóbbu ci yàlla puut kat sori ñett ñeent la sëriñ di assuré taalibe fii ci puut gii yanquluka mina shakki ilal ilal mhm. da lay jëlee ci sikki sàkk sa digganteeg sa borom fexe ba nga wóolu yàlla loolu yoolu doog gis macha allah ñaareel bi minal kibri da lay ciy jëlee yóbbu la ci ilal tawaadooy Pape An sëriñ bu la mënta jëlee ci rëy wàccee la ba koo gis dee na moo la gën maam alaaji mbër maam mbër bëggoon naa ñëw ci muqaddami dafa ne balaa maa gis Seydil Hadji Malick ku ma gis jàpp naa la maa la gën keroog bi Maodo paree ci man ku ma gis jàpp naa ne yaa ma gën kon sëriñ da lay jëlee ci rëy yóbbu la ci wàcc da lay jëlee ci minal adawati yóbbu la ci ilal nasihati sëriñ boo dem mun la ku jàpp ci bat yaa gën ñëpp ba ko sëriñ da wan na jaamu yàlla yëpp benn la foo fekk lu baaxaytu alxikmatu dallatul mu ay na maa wajadaha axasaha fa in safa fa xuus foo fekk lu baax jëlal julita ko moom lu sell jëlal lu nax ba ko fi mu ne sëriñ da lay jëlee mi na riyaa yóbbu la ci ilal ixlaas oh. sëriñ bu la mënta jëlee ci ngistal yóbbu la ci nga wóolu sa borom si Aji Malik nag jëmm jooju la la jël def ko ci taalibe yi ba nga xam ne ñoom ñëpp dañoo wóolu yàlla ñoom ñëpp dañoo wàccee seen bopp ñoom ñëpp dañoo génnee ci seen xol yi ngi ngistal ñoom ñëpp dañoo bëgg jaamu yàlla yi loolu la sëriñ di mënal taalib mm-hmm. moo tax mu ne isalam yakun fi cheikh xam su fawaidi wa illaa fa dajaalun yaquudu ila al jahl bashirun bi ahkaami shariati aarifu wa yabasu fi bahri lhaqiqati an asl yubaridu lil wuraadi bil bisri wal qira wa yaqdau lil miskini bil qawli wal fi'li fa hada huwa cheikhul muazzam qadrahu jadirun bi tamyiz bi tamyiz al harami wal hilli mu ne sëriñ day am ay qualité du yaama neex moo tax tariqatu tijaaniya boo cay dugg da ngay ñëw ñu jox la condition yi ne yii boo ci manee taalibeeb cheikh nga lii boobu moo tax maam Mansour ne ko yaa jawharat diini yaa yaa ruuxa zamaani wa yaa man yow yaay ki nga xam ne yaay ruuxu diine ku bëgg diine ju sell ñëwal ci maam Cheikh Seydil Hadji Malick ma ñëwaat ci manaate bu maam Alaaji Malick Pape mooy mayam yi may dafa jógee Tiwaawan dafa jógee nag mais Sérif Maxtaar lu mujjee Sérif Maxtaar bu xaay bu xaay daanu xam ñu julli ba julli ga jeex Sadio Malick na indi leen ko ñu indi ko mu ne Sérif Maxtaar mu ne ah mu ne ko bala yónent bi booleeg yow sama toog sama jàkk ji laa ko yow nee na ma naa la jox paasu màkk dinaa ci dolli lenn yëg naa ne man du ma siyaare Seexu Tijaan waaye dinaa la joxaale paas boo demee kër Seex Tijaan nga siyaaral ma ko mu ne wa kab astaki ay dal ilaahi siyaaratan zawayaahu lakkin inaa ni bi xab bi xabdati bëgg naa ko waaye yàlla dogalu ko Chérif Makhtar mooy nit bu njëkk a jógee fii di aji màkk jaar Fass di siyaare Cheikh Tidiane ci ndigalu Cheikh Sidi Hadji Malick foofu la mujj ak Mame Alhaji Malick. macha allah moo jox ko paas. jox na ko paas mu def. kenn du moom bi ci des moo di. Mhm. alaaji taala loo Sébikotane Sébikotane nga koy nuyu Mouhamed Lo nuyu Mouhamed waa kër ga mm-hmm. dafa am mu jox ko wird taalibe ba doom jëkkay dof mm-hmm. ñi di ko jàpp di yeew di jàpp di yeew muy dof taalibe bi ñëw ne maam alaaji taala loo mu ne ah mu ne ko hayul xayum ji ngoon dama cee sonn munuma sama doom di dof ma di ko jàpp di hayul xayum na xale bi wér ñu ayul xayum xale bi wérul ayul xayum moom banam ma ni ci sama doom bu ma rey ma laajtaan ne ko nga chance mu ne ah mu ko alaaji maal dégg naa jaar mu ngi tëngeej dina fi jaar suba am nga chance bu ñëwee ñu wax yàlla dogal <laughs> ma alaaji maal yi wàcc bi mu wàccee rek nit ñëppul fi ko wëree rek dof ba rëcc dekk dañ koo yeew ñu ne way yàqu nañ sëriñ ba ridi ridi ridi ridi ba ci kanam si ajmal maa laaj maa ngi ne ko jàpp loxo dof bi ne ko jàpp loxo mu ne ko yeggal suuf mu yegg suuf yow looy def ni xanaa xanaa looy def dof jógal mu jóg fekk balaa muy nuyu Seydi Hadji Malick ñëpp dañoo daw Maodo ne lan la ñu ne dafa dof mu ne taxaw leen ñu taxaw mu ne lu ngeen bëgg alaaj tàlloo ne ko kii baayam moo fi ñëw nee na dafa dof maa ko jox wird bu xale bi wéree mu xayul xayul bu xale bi wérul mu baax léegi nag yow laa yaakaar mu ngi mu ne ko nañ bokk yaakaar yàlla da ngeen bëgg xale bi wér mu ne ah, mu ne de Fatiha la xam ak salaatu Fatiha ak yiw nañ leen ñu jàng Fatiha salaat faate bokk ko ndax yàlla nangu jàkk jëpp mbooloom yëpp ànd fatiha ba mu jeex salaatul fatiha xale bi wér ci saa si mu ne alhamdulilah ba nga xam ne Maodo bindul saa Maodo jàggul tur jànguma ay siin rënduma xaatim fatiha ak salaatul fatiha yàlla bi ci laa jaan yàlla nangul dafa wér dafa wér allahu akbar moo dal sayyiduna Abu Bakri Siddiq ak rasulillah radiyallahu sallallahu keroog bi nabi duggee ci xunt bi tëdd fa ak Abu Bakri Siddiq radiyallahu taala mm-hmm. radiyallahu dafa am benn jaan joo xam ne def na ci biir xunt bi mille ans junni at ñu xamal ko ne ko fii ki ñi ki yàlla bind mu gën ci nit ñi dina mos a dugg ci xunt bi bu la tee kenn nag tee nga ziyaara bu ñëwee nanga nga saafaanteeg moom jaam junni at jaam ji di xaar rasulillahi ci xunt bi sallallahu rasulillahi dugg ci xunt bi jaam ji ko ndax leer gi mu bëgg koo siyaara génnee boppam ndeke nabee ngi nelaw jël poojam teg ci penku si naaw Bakar Abu Bakar yëgul lu xew bañ jaan ji laa rasulillahi mu fat mu jël bam fat jaan ji jaar feneen mu fatt ba mbub ma jee xamul nu muy def mu teg tànkam jaan ja màtt hmm. yaram yu néew ñaq yu di toq ci kaw na bi yeewu xool ko ne Babacar lu xew mu ne ko jaan ji mu ne lu ngeen jote mu ne dama koo fatt hmm. mu jaar xam nga lu ko nabi wax yaa ko tooñ hmm. yaa ko tooñ ñëw moo moo ku ne ñëpp yam xamoo li xew mu ñëw jaan ji ñëw wër rasulillahi ñetti yoon jël boppam teg ci penku rasulillahi rasulillahi raay bopp bi ñetti yoon duggaat ci biir rasulullah ne Babacar andi jaan ji mu naa mu ne nañ jàng faate ñu jàng jàng faate jaan ji wàcc la ilaha illallah min almuminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila kenn du Seex Seydi Hadji Malick bay jëy sama jarbaat day wax ni ca Thiès mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. kuri tiflit yépp a yem jànd laa séerétéwul dëgg la bi ci des mooy Seydi Hadji Malick jàng fatiha salaatal fatihi dof ba wér dof ba wér rasulullah jàng faatee ci xun ba ma jaan jëm eh, dangar ja wàcc dangar ja wàcc dama lay wan donn gi mu donn rasulillah yi alayhi salaatu wasalaam bi ci des ma tëjee boobu manaaqi boo ñu dem ci xilaas sa hmm. yënga ne Maodo sanc tabax na jumaa ba tabax jumaa jum fekkeewul ah mos ngaa dem Ndar waaw mos ngaa romb Paal waaw am na dëkk bu ñuy wax Fass Ngom Fass Ngom waaw jumaa ja Maodo ko moom waaw paa paa la may dégg. radiyallahu taala anhu. amagul soxna maam El Hadj Rawaan amagul soxna maam El Hadj Malick ne maam El Hadj Rawaan mu ne ah mu ne ko am góor gom na góor gu ñu wax El Hadj Malick Sall mooy way juru soxna Umu Xayri muy juru jur Seydi Jamil ku am cër la ci yàlla wëllu yu la am na ñàkk ñaambee fa ne yëg naa ne bëy yaa ngi ko yàq dama bëgg ñu jóge fii taalibe yi may ma dërsu bi ñu ànd dem bu ñu demee ñu defaral ko ñag ba alxames àjjuma ñu koy julleeg moom jumaa mu ñaanal ñu mu ñaanal nga am barke ñu ànd ñoom ñaar ba toll fi Fass Ngom ak toll garab yëpp xel yëpp a ngi Mamour na ko nañ tëdd fii noppal ñu tëdd quelques minutes Maodo na bërit na ko rawaan jugal jugal jugal mu ne ah ko jumaa ji. jan mu ne ko Cheikh Tidiane fekk na ma fii nee na ma may na ma fii jumaa jox naa la ko yaa ko ma. laa ilaaha illallah allahu akbar waaw góor gi xaala ko jàpp si ajmaay xaal da ko daan jàpp. te maam rawaxaan amul woon sago ci si ajmaay. amul woon sago si ajmaay ko daan jàpp une semaine du wax kenn du ko ñemee jege daan na toog na këmm dërs bi rek ci lay wax Thierno sa Nourou la ñuy woo wala keneen wala maam Sofiatou mu naat xaal bi da ko daan dikkal. ndeysaan. xaal boobu nag bu ko mosaane dikkal ku ko jege sa mbir baax. mu ànd ak moom dem Louga dafa ñetti fan ma maam rawaat ne na ma fàtte wax ji ñëw tiwaawan dem ga dem njaarnde dinañ ci ñëw ci waxtaani bu ñu ko mayee ba loolu weesu ba Maodo faat sama benn taalibe ñëw ñu may ma ay tool ma di ko bay ànd ak taalibe yi bu nawet jotee fa la ñuy nawet ba mu yàgg ñu ne tool yi teñ fee tabax jàkk di fi julli. am ko ne déedéet jàkk ji nañ ko yaatal mën na nekk jumaa comme fi la ñuy xas di ne ñu rëdd ko jumaa maam rawaan di tabax jumaa ja ba jumaa ja yegg ñu inauguré jumaa ja guddi jot mu tëdd di nelaw gént gis Maodo mu ne ko lu ma la waxoon sama jumaa ji tey ngeen ko inauguré fàtte woon nga ko waaye ba ma ko Cheikh Tidiane joxe ci sa loxo laa ko teg allahu akbar yooyu bu ma la ciy jox mën naa la jox jox mille macha allah yoo xam ne yàllaa ko may muy manaaqibu maam Cheikh Seydi Hadji Malick maam Alaaji Iliman Sax waaw maam Alaaji Iliman Sax waaw ñu dem dafa dem Ngappal ñu jugee foofu nag dem ci xilaas dafa dem Ngappal maam Cheikh yaa may dégg daa dem Ngappal maam Iliman Sax mhm. concentration bi mu demee Ngappal fanaan bët set rek am benn sàmm bëyam yi xar yëpp ak nag yi ñu sàcc moom Iliman Iliman moo jur maam Alaaji déedéet benn bël bëy benn sàmm lañ sàcc ay nagam te maam Iliman a ngi ci dëkk bi ñu ne am na ku fi ne nee na sëriñ la sëriñ laa yaay ay sëriñ er laa yaay nañ ko seet ñu ne bisimilah nañ ko seet. waa ji dafa ñëw ci jàkk ja xees pecc. benn sërif ñëw di laaj addiya ñu di ko jox. mu ne comme xees naa naa déclaré man sërif la imaam bi xool ko yàgg ne waa ji de nee na sërif laa yaay nee na de laa yaay lu ngeen xam ngeen def ci moom loolu mooy doo sërif. fu ñu jëm ak moom tey Aliou Diagne. ñu ne ah waa ji de nee na sërif ñu ne ci de nee na sërif la ñëw ne ko kii kat nee a sëriñ nga ay bëyam lañ sàcc biig nee nañ ku ñëw alaaji maaligay sëb sëriñ ñu bëggoon ku ñu ci ñaanal mu ne xam ngeen fi bëy yi doon fanaan ñu ne waaw mu jël big am lu mu ci bind laxas ko ne ñaari sàtt lay am bëy yi feeñ ak xarit mm. ngeen beñal leen mi këyit ak bu borom feeñee ngeen baje koo dóor ñu ne nangu nañ ñu suul ko fa waa ji jël xar ya di leen sàmm ak nag ya romb mbuur dem ba sànjara mu gëlëm tourné bëy yi jëm Singapour jaxasu pour moom mu ngi dugg Kaolack ak Gosaar ndeke moom mu ngi jëm Singapour jëm jógeen topp guddi gi ñëw ba fi ñu yeewoon bëy yi mu gëmmatu tëddi na la bëy yi tëdd muy nelaw ba 10 heures ñu xool bëy ya xar ya nag ya bëy ya xar nag ya waaye sàcc ba mu ne bëreet xool ne way sa yàqu naa ñu ne sulli leen ñu sulli ba mu ne indi leen ñu yët maam Elimane Sakho mu ne teppi leen ñu tepp fekk mu bind ca alxaaji Malick si oh, radiyallahu taala laa ilaha illallah waa narit di narit di billahi ana ana waa kër Cheikh Sidi Hadj Malick billahi yow ku sopp Maodo loxo yi ca kaw ku bëgg Maodo loxo yi ca kaw loxo yi ci kaw jaaraama maam ah te nu ma mel yow la maam ah gërëm ah. ku soxor du gërëm adoona sax du gërëm réew mi di Sénégal ku Maodo jàngalul kala jàngal ka ko jàngal ka mu jàngal kooku Maodo mooy ki ko jàngal yow amel na la na la jukkal ku am leneen leen jëlal sa yëf leeri maam aas turax la doon faam amel na la jukkal faam kenn balan yow la fa yoroo lu dul maam sa téere bi kurus gi ak waaw sa gopp bi fii nga xaroo sa jàngu bi lii nga saxal yow ba ñépp fax jaaraam baam ñun de ndar la nu fexe bani musaale ndar la nu fexe sama maam musaale moo yenu valisu Maodo juge ndar wuti ndar la faam kon amel na la jukkal ko am leen jëlal sa yëf leeri maam aas turax la ndaw ñetti njoo la fi am ñetti njoo la fi am adduniya ñetti njoo la fi am njool Makka ak njool Fuuta ak njool Faama kookoy Maodo yow jaxaay du la tee yow di xàccoy si moom lembeel Sénégal ma Maodo yaa Maodo amel na la jugal man de du ma mel yow la Sénégal loxo maam as ci biir bi Sénégal loxo maam as ci biir bi ay lu ko may gaal gi dootul dafa mu darisan kula ilma si kaana mu darisan dafa baynal ma darisihi daanan wa sudaana kem abidin zaydin طريق جيما كم سالك وصل المنبور لولاك ما كان ما بوي جوي نسي واي جوخ نسوين ñoo fi sa doon ngir sa benn moo di rëyal waaw di moom keneen meneen fi nun dafay forox jaaraama ne nu ma mel yow la ne nu ma mel yow la ku iñaan du gërëm ku gërëm faam bakkan ku iñaan du ku soxor du gërëm faam baanoona sax du gërëm faam mi di Sénégal ku Maodo jàngalul kala jàngal ka ko jàngal ka mu jàngal kooku Maodo mooy ki ko jàngal waaw yow amel na la jukkal Sénégal loxo maam loxo maam as ci biir bi ay loxo maam as ci biir bi ko mooy gaal gi dootul dem maam as Maodo. waaw waaw Seydil Hadji Malick alaaj Pape. waaw yaa Oustaz. borom parasol baa ngoog. parasol bi tontoo ci parasol bi. waaw dina ci ñëw am na am na ñu koy réclamer. ndax parasol ba du ragal tàngaay junj la. Mhm. alaaj Pape kon ñu ñëw ñëwaat ci yow. waa kay. Mhm. ñoom li ñu def léegi moom la américain yi tuddee gospel. dafa gospelé. dañ ko riim rek. mais waa Amérique yi ñu may yóbbante ah. waa ay Aïda Diagne di présidente de association des jeunes Tidiane. wax naa ko léegi na ma Aline Diagne naa ko yónnee di maître Mbazin. ah mu sañse ko. dañu ko benn benn téléphone yi dañuy fees ma nga Chicago. nu baala nee na dina la yónnee 100 dollars. jërëjëf waaw allez El Hadj Kabir Sène ko El Hadj def ko 200. nee na dina la yónnee 100 dollars El Hadj Kabir Sène. ok waaw Adama Sow. Euh, Kabir dafa ca Amérique. di jaal El euh, Hadj Daouda Sarr. <laughs> Kabir daa ca Amérique Babacar Ndaw New York. Kabir <laughs> Kabir daa cag Amérique soxna Yuma Aïcha Ba eh. Eh, soxna Fam Mbaw ah, yaay Daara Alaj Pap daal ñoom ñëpp mais tey jii Alaj Pap eh, waa ITFA président ITFA bu sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib hmm. mois bi passé Aline Diagne moo leen waroon a gàmmul ca Washington gàmm gu mag hmm. gàmm gu mag sëriñ Sidi Ahmed Mouhamadul Habib soxna ma jigéen hmm. président nee na ma Aline ñëwul ndax coronavirus bi ah. waaye gàmm nanu wallaay macha allah jërëjëf Diallo jërëjëf yaa oustaz maa ngi tooñ léegi ma ni Kabir dafa càng Amérique dafa jàng waaw dafa yónnee ay message di ñu ñaanal rek ma ko Kabir Kabir ci lii rek nga mën a am ci di ñu ñaanal rek guddi gu jot mu yónnee message ñaanal ñu ma ko yemal foofu rek yow bul ko bu mu ñëw mu ñëw ma nga Amérique alaaj Kabir Sène sama bi sama xarit bi kenn du moom allahumma amin en tout cas Sénégal yëpp bég te pareeguñu euh, mm. ñu ngi jëm nag ca kanam mm. euh, am na ay question yu bëri yoo xamante ni sunu euh, xarit yaa ngi koy yónnee dinañ ko jox sëñ Alioune Diagne ci biir jotaay bi donc kullu koo xamante ni rek yaa ngi àndandoog ñun ñu ngi lay ndokkeel léegi dama leen euh, yow saas hmm. dama bëggoon paas sëñ Alioune Diagne téléphone koo xamee ni. Ah. xam naa ne bu ko jotee xol bi dina sedd. macha comme mi ngi ñuy rey boobu ba tey. Hmm. man dama dama bëgg fayu parce que dóor fayu. dóor fayu waaw lii lii mu ñuy def nii. ba ma bëgg a jógee plateau bi daw dem fële. dama ko bëgg a bégaleeg loo xamante ni bu euh, bu nee wala man bu ma nee allo ba déggante ki may waxal. Hmm. man leer na ma ne ci barkeb Sidi Aj Malick bu déggee baat xol bi dina sedd allo. allo. yaay waaw. ñu ngi lay ziar. yal na xame naa baat bii de. ah, ah si Malick. ah na nga def. soxna Aida Sy mu Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy ah, mu Cheikh Sidil ah, Hadji Malick. kii woote mooy kan. Oh. kii mooy soxna Aida waaw. mu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh. Eh. mu Cheikh Seydil Hadj eh. Malick. kii mooy kan kii mooy soxna Aida Sy. mu Serigne Babacar Sy. mu El Hadj Mansour. mu Seydil Hadj Malick. kii mooy kan kii mooy soxna Aida Sy. rakki Serigne Maodo Sy. kuñ ko mooy soxna Aida. Eh. Ah, mi ñu dippee bàjjenam. soxna Aida Sy Malick. kii mooy soxna Aida Sy Dabakh. yaay soxna Kantoom yaay sëñ Moustapha yaay ku ñu ko dénk. waaw xalifa bi Serigne Babacar Mouhamadul Mansour. xalifa rek doyoon na yaay jaa ngi nii. macha allah soxna Aida Seyda baax yaay taalibe yëpp. bisimilah bëgg Seydina Mouhamed ba mu jeex. sallallahu alayhi wa sallam. salaamaaleykum salaam wa rahmatulah. Ah, dañu bëgg sànni benn baat rek. si si eh, si. fal ko ci. si waxtaan wi. jërëjëf si. waaw euh, li Alioune ci Seydi Hadj Malick bare na. radiyallahu taala waaye waxul lépp. Mhm. ndax mu wax lépp xamul lépp. Mhm. nit da nga koy déggal ba nga fekkeel ko. xalifa mhm. ko fekkewul déggal ko. boo fekkewul déggal ko. la ngay dégg ci moom moom nga mën a wax. ca yàlla. waaye ñiy fàttali nit ñi nii. li mu wax ci El Hadj ak li muy rëy rëy alaaj Malik benn la ci jaamu yàlla yi te nit mënul doon yàlla mënul doon yonent te yàlla def ko ko benn jaam la woon moom la nangu wax na sànq ni alaaj Malik daan dunde laaxu daxaar alaaj Malik ni mu daan dunde laaxu daxaar laax bi kenn daaw ko ràcc dañ ko daan yekk noonu rek bàyyi ko noonu buñ ci defee buñ ci defee cafaay bi mu bëtt ci ñaari baaraamam rimb ko yëngal ko macc yëngalaat macc yëngalaat macc sant borom ñetti ñetti macc yooyu la ci daan macc waaw waaye ñu ñu fàttalee leen rek ni euh, Seydi Hadj Malick musul nangu euh, euh, tolloom nit ñi waxtuma laa di ëpp nit allahu akbar mosul bëgg tolloo nit ñi di waxtu la di ëpp nit. moom laa li moom li daan wax. Mm-hmm. sànq ni euh, euh, nooy ak wàcc. Mm-hmm. moom la indi fa bimaa rahmatin min allahi linta lahum mm-hmm. walaw kunta fardan ghalida al qalbi. min min hawlika loolu moom mooy li Aliou Ndiagne wax. Ah. ñun dañ ci barkeel rek nii. jërëjëf Pape ndax it xam nga bu buñ dee wax ci Alaaji Malick dañ koy déglu. Mm-hmm. bu fekkee ni wax na ci lu ëpp. Mm-hmm. dañ koy weddi. Mm-hmm. bu waxee lu yam nag ñu xam ne lii Alaaji Malick nii la dundee. macha allah waaw parce que bu mënee wax manaqib bu ñu dee wax manaqib yi war nañu mën a waxaale jikko yi. allahu akbar waaw. ñu waxaale jikko yi mm-hmm. bokk na ci jikkoom nee na mm-hmm. li li yàlla di joxe ku ca bëgg am na melokaan woo war a mel mu ni fa cha'nu rijalillah xamlu azal wara mm-hmm. kada fal yakun man lil ilahi tashammara waaw ci Malick allahu akbar jërëjëf xamlu azal wara kada fal yakun man lil ilahi tashammara su ko defee nag da ngay nangu Mhm. da ngay nangu da ngay boole ci sa jaamu yàlla mhm. ci sa wàcc ci sa suufe lu nit ñi tilim li sànni la ko bul ko faxas mhm. nangu ko ngir yàlla sànni la ko doo doo doo ko doo ko doo ko faxas ku bëgg nag ku bëgg am la ca yàlla foofu la gaa yi jaaroon ba àgg ci yàlla kaza fal yakun man lil ilahi tachammala waaw. jërëjëf. jërëjëf si. jërëjëf si nu ngi lay ziar nu ngi lay ndokkeel bu baax a baax. yal na yàlla nangu nangu yal na yàlla nangu papa am. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf papa ah, eh, kontaan nañu ci waxu Aliou Ndiaye. bi mu waxee ci sartu tariqati. Uh-huh. wax ni tariq bi dafa ni. Mm-hmm. képp koo xam ni kii. Euh, képp koo xam ni ki yaa ngi jël tariqa bi. di xeeb kenn ci nit yàlla yi. bokk doo doo mën a bokk ci tariqa bi. loolu loolu kontaan jërëjëf parce que loolu loolu charte la ci tariqa bi. jërëjëf si Malick. ñi ci bokk tey xeeb beneen këru diine. Mm. wala ñuy xeeb nitu yàlla. Mm. wala ñuy xeeb sax dof. Mm. ci mbedd mi. xamuñu xamuñu lu xew. jërëjëf si Malick. waaw xamuñu lu xew. parce que ku ku bëgg yàlla. Mm-hmm. foog nga foog nga loo gis xool ca yàlla. te hm. loo gis rek loo xoole xool ca yàlla. Hm. waaw. Hm. noonu la ngeen jéggal ñu. baal ñu àq li ñuy dagg seen wax ñi waxuñu lu gën li ngeen doon waxuñu lu luñ toll. waaye xalaat rek. si Malick si Malick doo dem doo dem mukk te ñaanaloo ñu. ñun ñi fi toog ak àddina bi seetaan émission bi ñu tàllal suñuy loxo. waaw waaw. waaw kay. li ñuy ñaan daal. <laughs> Sénégal yëpp tàllal seen loxo ak diaspora bi. guleet euh, li may li may ñaan. Hmm. li may ñaan dama koy ñaan boole ko ñëpp. Hmm. jaamu yàlla yëpp. Hmm. kuy jullit ak ku dul jullit. ndax ndax séddage dafa ñaan ñaan koo xam ni. ñaan ñaar la ko séddale. allahu akbar ku mu bokkal diine ak ku mu bokkal aadama ak awa amul ñetteel. doomi aadama. waaw ñu wax fir lanaa man min baynina nasabun min jihati piini aw fi diini yàlla kon dañuy ñaan yàlla ñu waaw euh, ñaan ñaan nag ñaan nag yàllaa ko digle ñaan yàllaa ko digle waaye wax na ci biir waxam sànq ni seragement yi ngeen ne yàlla loo may teg yàlla na ma ko defal sama bànneex amiin waaw waaw yàlla yi dafa wax ni dafa feebar ñu ne ko ñaanal yàlla mu may la wér mu ni mën naa ko waaye rus naa ko ndax yàlla ma tànn ci biir nit ñi teg ma nattoom ma di ko wax ni ko li nga ma teg neexuma teggil ma ko rus naa ko allahu akbar waaw waaye itam terewul nag ñun ñëpp dëkk nañu suñuy loxo waaw waaw Cheikh Cheikh El Hadj Aziz mii mu wax léegi léegi wax na wax na ci jagsaaw fii maa ngi toog fekke ko mu wax ni euh, dafa tàng tàngaay mu jàmba tàngaay ba mu yàgg mu mu poñe boppam ba mu boppam xottiku Abdou Aziz luy yoon ci lu yàlla dogal ci li mu sañ ci moomeelam nga di ci am xalaat loolu sëñ Abdou def na ko mm. kon li ñuy ñaan yàlla mm. comme comme ñoom seen maqaam àgg na foo xam ne fii ñun suñu bës àgg fa. <laughs> waaye yàlla noppal nañ ne ne uduuni astajib lakum. alhamdulilah. uduuni astajib lakum. alhamdulilah di leen ma ñaan ma di leen may. allahumma amin. yàlla ku ko ñaanul jëppi na la. wallaahi. waaw ku ko ñaanul jëppi na la. allahu akbar li ñuy ñaan. Hmm. yàlla na lii tax. allahumma amin. waxtaane mag ñi. ñu jàng ci dégg ci xam ci suñu bopp. Hmm. ndax ci mag ñi la mën a xamee suñu bopp. Mhm. ki fi jëkk fekke loo fekkewul. déedéet. xam loo xamul. déedéet. boo dee départ war nga ko laaj fooy jublu. Mhm. teg ci yoon. Mhm. kon ñuy ñaan yàlla. li tolloog jamono fii ñu toll. lii fi nekk te di jaamu yàlla yàlla bind ko wàcce ko fi du feebar du jàngoro. balaa la. wobaa la. du jàngoro bu amoon jàngoro am garab li kulli daa waaye nag amul amul ki ñaan yàlla rek tuub ñaan yàlla ak sarax moom rek ko fii jële coow lu bare bare bare ji yëpp waaye itam nag dem ci biir jàkk yi walla feneen wala julli ji bonul waaye du ci jàkk rek la war a ñaan yàlla de hmm. ñii dugg xalwa duñ ko duggee ci biir jàkk hmm. daan nañ ko def sax. Hmm. daan nañ nañ ko def mais li ëpp ci biti lañ ko daan ñaane kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mii borom kàttan day def lu ko soob fa aalun li ma yurid yàlla na ko soob bokk ci la ko soob. Hmm. lii fi xew. jaaxal ñëpp ba kenn xamul foo jëm. wallaahi yàlla nañ ko yàlla teggi. allahumma amiin si Malick. Hmm. te wotte ko nag. allahumma amiin si Malick la mu fa jëlee yàlla na ko delloo si. delloo si fa yiw. amiin ak wér. ak déggoo ci dëkk bi yàlla def jàmm ci dëkk bi. amiin si Malick yàlla dolli barki ci dëkk bi. allahumma amiin yàlla jubale xol yi. amiin si Malick yàlla defaraat xel yi. amiin si Malick dimbale ñi. yàlla boole na xel yi defaru. na xol yi defaru. ñëpp ànd ak bëgg a bëgg a Sénégal dañu am eh, eh, spécialité boo xam ne ñoom seen jago ñoo ko war a jagoo. baal ma xam ne li may wax nii gudd na. gudd na trop waaye maa ngi leen di maa ngi leen di jéggalu ñaan suñu borom ñaan suñu borom euh, mu may diñ koy ñaan hmm. suñu yaakaar yàlla bu mu tase fenn réew mi yàlla na ñëpp bëggante yàlla na ñëpp ànd yàlla na xol yëpp di benn yàlla na xol yëpp di benn yàlla na xol yëpp di benn te diggante këru diine yi nag hmm. ku ci wax ci lu rafet ñaanal de si Malick ku ci wax rek wax ci lu rafet. Mm-hmm. ngir jëm yàlla. Mm-hmm. ku ci wax wax ci lu rafet. Mm-hmm. samp la ñu amee boo xam ne yàllaa leen ko sampal. sampal lañu ko seen bopp. samp yàlla nag ku ko bëgg a daaneel mën nga daanu. waaw diine wax du ci jóg. wax du ko tas. waaye nit mën na ci wax ba yàqu. waaw yal nañu yàlla dolli sutura bi allahumma amiin kon nag fatiha li papa an wax léegi. wala uh, Ali wala Ali Tan wax ko ni yonent bi ba muy ñaan ca xuntuma hmm. fatiha la ñaan hmm. waaye Seydi Hadj Malick ba muy ñaan fatiha ak ca dof ba fatiha ak salaatul fatiha la boole naka jekk mooy ñaanam hmm. fatiha ak salaatul fatiha nag doy na doy na ci ñaan ci ku ko xam taf su pas-pas dëgër yal nañu yàlla nangul luñ ci ñaan. amiin amiin jàng fatiha. jàng salaatul fatiha ngeen jàng papaan nga jiite ko. laalin ngeen jiite ko. ñaan ko yàlla nangu si. bu ñu xeeb tàllal yàlla loxo. bu xaar kenn ci suñu digganteeg yàlla. ñun ñëpp la war a tàllal yàlla suñu loxo fi mu nekk nii. ne jaaxle nga. te pexe laa xawla wala quwwata illa billah. bi ñu ko wóoloo ba ko wax xam nañu ni. pexe jeex na fa ak gën amu ko. yàlla rek ko am. amiin kon lu la jaaxal delloo sa bopp ci yàlla. Mhm. Mhm. Eh, zahara al-fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aydi naas mhm. liyuziiqahum ba'da allazii amiluu la'allahum yarji'uun boobu loolu oh, fa tabaarakallahu yàlla nee na bunt bi tëjuwul. ku bëgg rek dellu si. nit ñi jàng ñaan googu te ngeen jéggal ma nag guddaay bi. déedéet doyelu ñu sax si Malick doyelu ñu sax wax léeg-léeg ma rek <laughs> tuuti. rey na rey na waaye maa ngi leen di ñaan rek jéggal. macha allah ñu jàng Fatiha Salatul Fatihi. amiin ñu def ko ko. amiin waaw na ko kenn na ko kenn ku nekk jàng. waaw ah. na kenn ku nekk jàng. allahuma salli ala sayyidina muhammadin kenn ku ne mën nga ko. Hmm. noo ko waxee baax na. julli ci yonent bi rek am solo. fatiha nag ñu ñu jaar ca. waaw ngeen jégal ma maa ngi leen di jégalu. yal na yàlla mottali. yal na yàlla saxal. may leen wér may leen gudd fan. te koor gi yal na ko yàlla nangu. te ñu àggale ko ci jàmm. bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi nuyu képp ku ñuy déglu. Ah, man def naan guleet guleet tey. mu mës a wax ci lii. waaye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 jërëjëf papa ba jox la soxna ba jox la soxna Aida mu tàggoo ak yéen waaw. jox ñu ko waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw yaay si. waaw Pape Hann Hann. Oustaz Wuyul si. Oustaz mënatul dara Pape Hann mënatul dara yaay. mënatul dara baal leen ñu nag dégg nga baal leen ñu. garaawul kon dafa sedd rek. waaw macha allah. yal na yàlla fay leen. allahumma amin. yàggal seen taxawaay. Ah, allahumma amin allahumma amin yokk seen rajo bi yokk télévision bi. allahumma nuyu ñëpp. jërëjëf si. jërëjëf si. soxna Aida. barke Seydina Mouhamed. jërëjëf si may ko yaa Fatick koy nuyu di ko seet. Mhm. jërëjëf Fatick si maa ngi lay nuyu Alioune Diagne. Ah, ok waa oh. kay dañuy dañuy dañuy jéggalu rek. Baye jërëjëf yaay jërëjëf si. jërëjëf si Baye Cheikh. soxna xam naa dafa dégg bu baax. Amadou Mbaye Gar mi ngi lay nuyu. ah mbay da nga def mbay mbay. si Malick teral nganu nu. mbay mbay. yal na yàlla teral la. allahumma amiin yaa rabbi mbay amiin yaa sagal nga yal na yàlla sagal la. tey képp koo xam ne kile mi ngi lay dégg. wallaay mbay. na ñëpp wax ne sëñ Mbaye yal na fi yàgg lool. yaa rabbi yaa rabbi nii munu terale yal na yàlla dimbilu nu guddal fanam lool amiin bég nanu de lii musul xew jërëjëf si musu ko defal kenn te nu tey tey am nanu quatre heures du matin si Malick yàlla yàlla guddal fanam xool yëpp ah oui ñu ngi nuyu ñëpp yéen tamit ñu ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp jërëjëf jërëjëf. bàjjen wuyul sëñ Alioune. waaw yaay wuyul sëñ Alioune. waaw maa ngi lay nuyu di la ziar bàjjen. Ah, Alioune naa def Diagne. Ndiaye kay si Malick. Diagne Diagne. di jéggalu sëriñ bi ci bu fekkee wax nañ fi lu waxuwul. Diagne. ñu ngi koy jégalu bu baax a baax di ko ziara di kontaan. incha allah Diagne ñu ngi leen di nuyu yéen tamit bu baax leen jégalu. ñu ngi koy ziara bëgg lii rëy na ci ñun lool. waa kay nuyu ma Pape Cheikh tamit ñoom ñëpp rek ñu ci plateau bi. yëpp ñu ngi leen ngi lii rëy na ci ñun. jërëjëf ah, ah, euh, lii sëriñ bi man la ko defal. Pape Cheikh la ma ne lii sëriñ bi man la ko defal. Pape Hann duma bàyyi ma fen nee na man nañ waxtaan ci wilaya Seydil Hadji Malick ma ne ko maa bañ. te kat damaa bëggoon defanteeg yow rek waaye man. <laughs> waaw Pape Hann dafa ne nañ waxtaan ci wilaya gi ma ne ko. xalifa bi du ko nangu. Hmm. bëggul yooyu. Ah. moo tax manaaxi bi sax biñ ci duggee. Ah. mu ne nañ dellu ci jikko yi. Hmm. am na ku ma posé benn question léegi. ci diggante waati nu nuñ mel ak këru diine yi. Hmm. sëriñ Babacar Sy Mansour mii moo ma yóbbu Makka ren daaw. allah. bi mu ma joxee billet bi dem naa ba pour ma dem. Mhm. mu des cinq jours gisuma ko. ma ne naa dem siyaare ji ko tàggu ko parce que bi ma sëñ Moustapha wooye wax ma ko dama dem tàggu bàyyi sëriñ Bay Abdou mu jox ma ci ndigal ba jot billet beeg lépp ma ne naa dem tàggu ko bi ma ñëwee fekk ko mu toog dama ko ne papa ñett ma fi indi mu ngi may dégg. nga ñaanal ma dem ci jàmm ñëw ci jàmm mm-hmm. déglu baax li ma lay wax mm-hmm. wax ma bu ma demee lu ma fay lu ma fay comportoo ak sa jëmm ji tedd jii lu ma lay ñaanal ndeysaan mu wax ma na ma fay comportoo wax ma la may jàng ne ma man nag loo may ñaanal soxlawu ma ko boo demee ñaanalal ñett ñaanalal réew mi ndax amuñ lu dul réew mi mm-hmm. ñaanalal diine ji mooy tax suñu cër ñaanalal kilifay diine yi déglul baax Pape Cheikh li ma lay wax. maa ngi dégg maa ngi dégg te booy ñaanal kilifa yi diine yi bu ma tudd tuddal sañ Muntaxa. Mm. maa ngi moom ci biir néegam saalam mm. Pape Diop a ngi toog ba Pape Diop a nga toog na le ak mm. Malick Sall. Mm-hmm. mu ne ma ñaanalal sëriñ Muntaxa. mu yenu ñu ñun ñëpp yóbbaale bi bu ma fa tudd mag boo demee nel yàlla diine ja dëkk boobu yàlla na nga fa def jàmm. di Sénégal diine ji yàlla na nga ko sàmm. kilifa diine ya fa ne. taalibe yi yaakaar leen lañ yaakaar ci ñoom yàlla nañ koy gis te yàlla na ko yàlla teg ci loxo mun Muntaxa ku ne jot wàlla xoolal ma bii fi xeetu sases lii la ma dénk keroog bi may dem di nit ku yàlla baaxal di nit ku nëbbu macha allah di nit wàcc ku woyof lii ci xeetu woyofam la li ñu doon wax ci maamam yëpp feeñal na ko mbub mi ma sol moo ma ko jox ne ma sol ko te bëggul sax ku ko tudd macha allah bu mu si mi jox taalibe yi taalib dàll bu mu si mi jox taalibe yi keroog bi coronavirus bi duggee Tiwaan ba fii may wax ak yow amul génn kër goo xam ne saa koy ceebam duggul sa kër moom ak mag rakam yépp kon moom amuñu lenn lu ñu koy ñaanal lu mm-hmm. gudd fan amiin amiin ñaanal ko mu yàgg fi ak wér ak mbooleem kilifa yi diine lii symbole la ci ñun quartier général amaat na beneen titre Fapal mm-hmm. dafa jooy ba xamul lu muy wax dëgg la dëgg la bi mu ne xalifa bi man a ko waaw rek ronkañam <laughs> dëgg la kon baay booy ñu ngi lay nuyu di la ziyaara kullu ma sami'tumuhu fi kalamina hadha min al khata'i mm. mm. nastaghfiruhu amamakum wa kullu ma sami'tumuhu min as-sawabi ila jaddikum al-aziz fa min fadlikum wa min karamikum wa min karamikum waaye laysa minna shay'un ila tawadu'i wa tazalluli amamakum baax obligé baax obligé waaw Baye euh, man obligation obligation euh, Baye Assane waaw ma ziar sëriñ bi rek xalifa euh, Ababacar Sy Mansour ndax groupe euh, Futur Média dañ fa def délégation demoon fa doon waajal gàmmu te yàlla ndeysaan ñëpp toog mu woo ma ma ñëw mu ne ma man sa baay laa sa papa dee moo ñu taxale fii groupe Futur Média waru la fi indi da nga wër di ñëw ma lay gis ndax man sa papa laa sa baay dee moo ñu taxale wax boobu réewoon si man lool lool lool mm-hmm. kon lu mel ni su amee wax fa dëgg yàlla ñu fekk ñu si plateau bi jaadu na ñu sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla mooy li ma doon wax sànq rek ne am na ñoo xam ne seen dund si réew mi bénéfice la te moom muy daf si bokk ak mboolem kilifa diine yëpp kon ñu ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla. yàlla guddal fanam ak wér ndax ku ñemee dañ la déy fa tabarakallahu baay cheikh. mënatuñu mënatuñu dara ci jotaay bi. 4 mhm. euh, heures du matin. Mhm. bi ma juddoo ba tey. Mhm. j'ai fait presque je ferai léegi ma def ci vingt ans de ci télé. Euh, toogaguma benn yoon te émission bu ne def naa ko nag. ba général woote. barki Serigne Fallou kontaan na li tax nag Sénégal yëpp kenn mënul téye boppam ba diaspora bi lii nit ñi yëg ci seeni xol la kon sunu sang bi yàlla na fi yàgg rek te ànd ak wér. na ko ñëpp ñaanal. nii mm-hmm. mu ñuy ñaanalee Sénégal rekk ñor ko ak sénégalais yi nañu ko ñaanal ñu ñu ñu nitam. Mm-hmm. nañu wéram rek soxal. Mm-hmm. ak gudd fanam. ndax euh, euh, lii mu def nii ci bëggoon bëggal sëñ Alioune ndax sàng ba tey mu ngi ñuy rey ma bëggoon rek euh, parce que yaay waaye lii xalif bi def tey dëggal na encore ni télévision Futur Média télévision privée la waaye dañoo am mission service public. yii yëpp ay xeetu baraka la yoo xamante ni ñoo ngi ci quartier général te tey defe naa Sénégal yëpp kontaan nañu bëggoon nañoo continuer sax ba midi. sànq rek ñu ngi tooñante ne 7 am ay internet yu ne euh, mën nañoo dem ba 13 mais lii euh, oustaz Pape Hann mënatoo wax waaye sëñ Alioune. yaa oustaz xamatuma lu mu ciy teg. jërëjëf waaw euh, sëñ Pape. waaw kàddu bu gàtt rek. waaw ndax Sida Bakar mii. Mm. lii munu defal. Mm-hmm. sëriñ Pape kii dafa baax. <laughs> bi may door. Ah, dama wax boo jaxasoo moom rek bëgg ko. mënatuma dara mooy jikkoy Sayyidina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam dëgg la. wa man xaalatahu maarifatan. Mm. ahabba moom dafa tedd. Mm. mais lii mënu defal. Mm-hmm. loolu Aline dafa wax man la ko defal déedéet man mii la ko defal. defal na la ko de waaye Aline euh, bi ma waa bi woowee ca moom laa jubali. alaaj Pape ni ko directeur bakat dafa ma woo ca TFM dañu ma bëgg a jël may ñëw di def émission si ma ne ma ne ko waxaguma dara nag soo ma nee demal ma dem soo ma nee toogal bu ma dem booba mi ngi may boole ak Abdoul Aziz Mbaye di ma yónni ay gàmm ak ay ay conférence moom xalifa bi booba mu ngi may yónni ba léegi mi ngi may yónni hmm. ma ne ko waxaguma dara waaye loo ma wax si mu ni ma am na ku nekk këram nekk biir néegam munul dem gàmm munul dem conférence télévision la yoon ak rajo nga yokk diineem yokk cofeelam ci Seydina Muhammad jàngal ko wàllu diine sallallahu alayhi wa fii ci gël tàppe laa ko fekk mu ñaanal ma ma génn jàdd virage kër Serigne Maodo si mu ne ma pap may naa la yow def ak yow émission kon man sama toogaay bii fii mhm. ñi nga xam ni xamuñu ak man ni yàlla féetale ma samay maam ak samay baay ak sama ñëpp samay ndey ak ñëpp. yaakaar kër Seydil Hadji Malick. radiyallahu ma ne ci télévision bii di liggéey Alioune Diagne mii maa ko woo gërëm sama directeur yi gërëm El Hadj Pape Cheikh mii. Mhm. ndax mënoon na quartier général. lu am mu ni mooy wut ay invité ñeneen ñi si ñoom Cissé Bouba Ndour njaga Ndour waaye ku fiy ñëw di waxtaane diine man mi maa lay woo mm. sama loxo bii lañu ko teg mm. ñeneen ñi nga xam ne dañuy jaar feneen ñoom fu nu mën a jaar man la ñuy woo. boo demee ci buuba mën la wol demal ci Pape An. Mhm. Ndiaga Ndour Kazaari El Hadj Pape Sène Diallo mi kon ginnaaw bi ma leen gërëmee gërëm sama sëriñ waaye tey feddalil na ma ndigal gëm ma digaloon. sa cër la. bu fekkoon damaa ñëw fii lu lu dul ci ndigalam. may def lii te lii neexu ko. Mm. sëñ Babacar Sy Mansour du dugg. xam nga ko bu baax. 4 mm. heures du matin. ba ma la woowee nga ne ma Pape dégg naa ko. Mm. xaaral ma dem seeti kilifa yi. nga ne ma gis naa Serigne Babacar Abdoul Aziz waaye gisuguma xalifa bi mu nekk lu ma wax ma def bi nga ko gisee la mu la wax wax la sama diggante ak yow waaye wax la plateau bi it ma ni sama taxawaay fii mm. kon moom njaboote na ma loolu rek doy na ma sëkk woote mbi si mm-hmm. ñun yéen la ñu yaakaar àddina ak ñu ngi lay ñaanal gudd fan. nga yàgg fi lool. te wér lool ni nga mel ci ñun. ñun xam nañ ko bu baax a baax si Malick. ak sa njabootu Seydil Hadji Malick gépp. jërëjëf Alaaji Pape. waaw yow Saas quartier général bi daal. Ah. daan na am de. waaye bii quartier tey ñu ko fee yamale ah, waaw Alioune ah. waaw tàggoo xam nga Alioune dafa duggagul ci xilaas. waaw kay na na léegi nag Alioune. 3 heures et demi la ñu waxante woon. waaw ay léegi mais 4 heures rek 19 4 heures vingt jot na. <laughs> une heure de temps léegi nag xoolal. waaw léegi xam nga man dama xëddul biig. Ndiaye dafa Seydou Ba. man daf ma woo barki biig di jooy ci bëccëg ma ne ko lan la Ndiaye man dama xëddul biig. <laughs> dañuy waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall ba xëdd jot <laughs> ah mu ne ma ma ne ko Alioune incha allah balaa xëdd dina dina dina arrêté la danga génn léegi fu am solo <laughs> ma di la wax ni mm-hmm. nit ki fu mu nekk mm-hmm. day sàmm ngoro mm-hmm. di ko teg ci fulla ak fayda <laughs> ndax xam ngeen ki nu woo léegi <laughs> dama ni gars yi ndax xam ngeen gor si nu woo léegi te jàkkaarloo ak ñun wax ak ñun léegi ci tax Sénégal yëpp jooy nii ba àddina yëpp yëngu koo xam ni clé addina yëpp dañ ko bàkk ne amul dara ci caaxaan. billaahi. addina yëpp dañu bàkk ne daal lépp lu bokkul ci fulla amul ngor amul diine boo ñëwee doo ko ci siin mu jël téléphone bu tedd bi ak cër bi ko yàlla jox woon fii ci émission bu mag bile ay waay waay waay waay waay ndax xam ngeen ku ñu woo ma ne dama jaaxle bu nu bay gar pap pap Cheikh. man mënatuma dara. <laughs> attanatuma émission bi man dafa ma ko bay xanaa ñu jox kon di ñaan daal Alioune. ñu jox seen Alioune rek waaw. nu waay nit mel. nu waay mel nu ay mel. te nii nga mel ci diina ji foofa na nga ko yokk moom daal Pape Hann jërëjëf Mbaye yokku leen ko de incha allah ndax lii ndax lii ndax lii musul xew ci at ñu dem ci parti bu mujj bi kon atan waaw euh, xanaa ñaan yàlla rek yàlla may ñu ñu fekkee ko déwén lu bëri eh. euh, delluwaat ñaanalaat xalif bi rek Mamadou Mbaye euh. Mamadou Mbaw ca Angleterre sa soppe waaw Mamadou Mbaw sa Angleterre ñu ngi koy nuyu di ko ziar am na ñoo xam ne mënul ñàkk ñu ziar leen muy ay soxna ya nga xam ne seen borom kër dafa wàññeeku di association des veuves de la douane Euh, Adja Ndeye Seck nekk sa biir mbooloo ma Adja Ndeye baa ngi noonu association des veuves de la douane yal na yàlla yërëm seen borom kër yi te jéggal leen euh,